1903 waxtu mare basse yaa ngi bu njëkk bi météo nga ko prévoir euh, ca kanam ci xaajo guddi gi bu 3 heures 51 euh, du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am euh, laata takkusaan boori 16 heures 20 et puis jant bi dina xëy ëllëg bu 6 heures 43 jotee du matin bu ñu xëddee ba noppi. ñu baaxee leen tamit waxtu julli yi fajar gi ëllëg daañu ko julli 6 heures Euh, Tisbar 13h07 takkusaan 16h20 timis 19h33 euh, 20h41 la ñuy julli gee donc lii bu dee euh, amu leen ay jàkk yu nodd mën ngeen ko note ngeen def ko alarme parce que ça peut toujours vous servir ñu jàll ci naafile yi naafile yi tey dañ ci ànd ak oustaz Assane Seck yaa oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar joxati la sa wàccuwaay ci guddi gi nga xam ne ni daanaka ñu ngi ci ñaareelu fukk-fukk yi ci weeru koor jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo nuyoo bu baax di la jox sa wàcc wàccuwaay itam di la ziar di ziar bu baax ni ñu bokkal plateau bi di ziar bu baax fa tabarakallahu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp guddi gu jot ci quartier général di wéttala ko émission bi ci biir weeru koor gi waaye ziar bu baax euh, Serigne Alioune Diagne mi fi jaaroon démb doon waxtaane Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu ñaanal ko yàlla yàlla gën ko dëgëral gën ko sàmm gën ko aar ak suñu kilifa gii fi dugg démb si téléphone bi woote di xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour nekk la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla euh, sag bu rëy la ñaa def fi ñaan nga nga xamante ni itam gu am solo la dañuy ñaan yàlla subhanahu wa mu bàyyi ko fi mu gudd fan lool ak mboolem kilifa diine yi suñu borom subhanahu wa taala nangu ñaan yi nangu lépp la nga xamante ni taataan nañ ko fi démb rek si darajay Seydil Haaji Malick radiallahu taala anhu bi ñu waxtaane ziar si taaliba cheikh yëpp yëpp yëpp yëpp fa tabarakallahu ma allah ku mel ni Serigne Abdoulahi Sow Ngom di colonel douane démb animateur bi prévoir na ko pour ñu dinañu dégg def li xew démb ak yooyu yëpp Assane demal ci naafile yi après ñu doog dugg ci point yi xam ngeen yéen ay ay yi yeewi bëy loolu yëpp bind nañ ko ci conducteur bi loolu la ñuy ibbee émission bi introduction bi daañu ñëw ci Alioune Diagne ak xalif beeg li mu def yooyu yëpp démb yaa ngi may tooñ ah, kii Assane. waa ah, tooñ de baaxul rawatina si biir weeru koor bi. Ah. kon kon comme dañ la tooñ ñu ngi jé. <laughs> waaw tooñ de baaxul comme dañ la tooñ. <laughs> xam nga tooñ baaxul rawatina si weeru koor gi nga xamante ni fa tabarakallahu macha allah weeru njëggal la weeru yërmande la comme ni nga ko waxee sànq bi ngay présenté kon ñu ngi lay jéggalu bu baax bu fekkente ne. ah bu fekkente waaw ñu ngi jé. dañ lay tooñ waaw kon ñu bàyyi ma ñu jéggalu rek dem si naafila yi. fa tabarakallahu macha allah ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal ñu defal ñu jàmm comme ni ñu ko waxee euh, fa tabarakallahu macha allah naafi la nag moom comme ni ñu koy waxee chaque fois buñ ko waxee rek la nga xamante nii la xëy na day mottali yi nga xamante ni ay njuumta la yi nga xamante ni day am xëy na si li nga xam ne moo di farata yi wax naa ko barka démb nee naa xaw ma démb nee naa naafi la moom buñ ko waxee du rek euh, julli yi nga xamante ne mooy tegu si julli farata yi waaye xattaa génn si sa poos dimbali jaam yàlla yi si ak yu demee noonu yooyu yëpp ay xeeti naafi la la te dafa nekk la nga xamante ni lu ama am am solo la naafila tey bi nag dañ ne ku ko man rek nga def li nga xamante ne moom moo di bànn euh, fatiha boo defee fatiha ba pare nga def euh, suratul qadri muy inna anzalnahu fi laylatil qadri ñaari yoon boo paree nga def euh, suratul ixlaas di qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad nga def ko ñaari yoon nee nañ képp nga xamante ni matal nga naafila yooyu si fukki rakk ak ñaar muy douze rakk boo defee ñaar sëlmal ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngaloon nee na naafila guddi wala naafila ñaar ñaar ñaar ñaar la ku dem ba bëgg a tëdd wala nga sonn rek man def benn rakk muy sa witar nga daal dee tëdd nelaw kon naa fi naafila tey baa ngi noonu ne nañ ku ko def suñu borom subhaanahu wa mën na la musal si lépp la nga xamante ni luy lore la waaye lépp la nga xamante ni itam xëy na boor la ba nga xam ne daf la diise sax yàlla subhaanahu wa mën na la ko yómbalal wala mu teggil la ko bàyyi cheikh kon lépp la nga xamante ni mën nañ ko si rek na nga ko def ndax nee nañ fukki fan yu njëkk yi njëggal la fukki fan yi ñu ngi si fukki fan yi yërmande kon fukki fan ya nga xamante ni waaw fukki fan yi yërmande mu nekk fukki fan ya nga xamante ni dañ si war góorgóorlu mm. lépp luñ si doon jaamu yàlla ñu yokk ko ndax Seyda Fat Bintou dafa am lu muy wax léeg-léeg lu am solo nee na lii jafe rek mooy fekkee mm-hmm. ndax kenn xamul ndax da nga fekke waat koor wala déet kon bu la yàlla subhaanahu wa taala dimbalee ba nga fekke weeru koor mm. ba pare tegal la si may la wér mm. kon lépp loo man si jaamu yàlla rek bàyyi cheikh baax na nga ko si def ndax nee nañu euh, balaa ngay xam ne def lu baax du doy doomu aadama bi yàlla na yeex mu dugg biir suuf waaye itam balaa ngay xam ne def sofaan amul amul solo nga dugg biir suuf yàlla na yeex kon weer la ba nga xamante ni comme yàlla tëj na bunti safara yi ubbi buntu aljana yi boo déggee buntu aljana yi moo di buntu yërmande yi kon fa tabarakallahu comme buntu yërmande yi ubbi na nañu taataan yërmande yi suñu borom subhanahu wa taala tàllal ko suñuy loxo moom moo ne su ngeen ma ñaanee ma may leen te na wax du toxu mu may ñu mm-hmm. kon nañ ñaan yàlla subhaanahu wa rek li ñu bëgg mm-hmm. yàlla suñu borom subhaanahu defal ñu ko mm-hmm. bañ mën a fekkee kóoru déwén yërmande bi nag wàcc fi jële fi mbas mi ak lépp la nga xamante wax dëgg yàlla xëy diisandina si doomu aadama yi bàyyi cheikh donc ci fukki fan yi période la boo xamante ku ne mën na cee profité pour ñaan ko waaw ku ne mën na si profité pour ñaan ko parce que boo demee si suratul baqara mm. boo demee si chapitre weeru koor boo demee sa verset ba mujj mhm. fa la yàlla waxoon na wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani mhm. fal yastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshudun mhm. yàlla nee na yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama jaam ñi bu ñu la laajee maay kan ak fu ma nekk ne leen man ku leen sopp ku leen jege laa te leen rek laay sa laa bëgg ñu koy def mooy ñu may ñaan ma leen di may hmm. nee nañ yàlla subhanahu wa taala boo ko ñaanulee sax mu mere la xëy na tey ak àdduna bi ni mu tëddee yàlla moo bëgg ñu tàllal ko suñuy loxo bëgg ñu toroxlu bëgg ñu ñaan ko ndax yàlla bëggul ku ko fàtte comme ni ñu koy waxee donte la fàtte ko warul hmm. moo tax xëy na yu mel nii di am parce que xel yëpp yëpp delluwaat na si borom bi subhanahu wa taala nga xam ne moom rek la ñu war a mën a ñaan moom rek la war a tàllal loxo hmm. mu defal ñu li nga xamante ni moom la ñu bëgg ndax dinaay faral di wax na koo yaakaar boo demee si moom tàllal ko say loxo ñaar yi rek lay wax allahumma wala rabbana mooy yow suñu borom wala yow yàlla mayal ma diw ak nangam wala maa ngi ñaanal diw ak nangam ak nangam nangam mm-hmm. kon ñaan googu nag bu ñu suñu borom subhanahu wa taala joxee ay opportunité maanaam jox ñu ay foras ya nga xamante ne nii ay waxtu mm-hmm. yuñ si mën a ñaan yu mel ni surtout si weeru koor mm-hmm. kon buñ ko sàggane waaye nañ si julli di si tudd yàlla lu bëree bëree bëree bëri ndax saa yoo tuddee yàlla rek loo ñaan borom bi subhanahu wa taala may la ko ndax ma yàlla moo ne woon walillahi al asmaul husna fad'uuhu bihaa yàlla nee na man maa am juróom-ñeent fukki tur yi ak juróom-ñeent muy les quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah yàlla nee na bu ngeen ma ñaanee si sama tur yooyu rek man dama leen di may li nga xamante ni moom ngeen bëgg mm-hmm. kon ñu ngi koy ñaan si turam yu sell yu barkeel yu yiw yooyu nga xam ne ku ko si ñaan mu may la mm. eh, mu teggul ñu mbas mi ba yëf yi delluwaat na mu meloon mm. wala si anam ba nga xamante ni sax si la gënee a Cheikh voilà donc nañu góorgóorlu bu baax euh, euh, ko surtout que période bi mm. na ñëpp toog seen kër donc defe naa période la bu baax pour jaamu euh, ma koo bañ a def waaye sunna yu baax yi itam dafa baax ñuy fàttali mbokk yi ne dafa mën fàtt sax ay turu waaw xam nga boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala diggal ko si alquraanul karim jàng naa ko fi démb aaya bi mm-hmm. pour muy naafi la pour yonent bi la waaye pour ñun ñëpp la mm. ndax daf ko doon wax si euh, suratul muzammil yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan mm. nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi mm. waaye wa rattilil qur'ana tartilan keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee gaaru xiraa jaaxle tiit yàlla dafay parce que bi mu jaaxlee tiit moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax zammiluuni zammiluuni hmm. comme ni ko maam Maodo doon waxee wa aba murtaidan mimma raa fazi'an hmm. qaa'ilan zammiluuni tarfa'u ghumami ndax am na njaaxare nee na nañ ko sàng buñ ko muuree sàng ko xëy na njaaxare mën na dañ hmm. yàlla ne ko loolu dindiwul njaaxare de yebal Seydina Jibril alayhi salaam ne ko demal ne ko yaa ay yaa ayyuhal muzammil yow mi sàngu qumil layla illaa qalilan jógal guddi gi ba mu des tuuti nga naafile si jaamu yàlla kon ndekete problème yi bàyyi Cheikh jaamu yàlla moo koy teggi sama ndey du jàmbat bu bari du fu ñu jëm jàmbat bu ñun duñu mën jàmbat voilà du jàmbat bu bari ñu tiitee rek yooxu jàmbat bu bari suñu yaayee ci gën a dee wooy sama ndey rek wooy sama ndey rek te loolu yàlla jàngal nañu si suratu muzammil ne fajul dara ne ko mm-hmm. dëkk xool li nga man nga naafile ko waaye problème jaamu yàlla moom moo koy def moo koy teggi mm-hmm. ñaan yàlla moom moo koy teggi mais du jàmbat ba nga xamante bu bari la mm-hmm. naafile yi nag parce que ñun wóoruñu ndax suñuy farata mat na wala déet mhm. moo tax naa fi la am moo tax ma ni dafa mën fàtt trou waaw pour par exemple tey ji ni bu fekkente ne dafa am ay vide ay trou ya nga xamante fara si yo yi yoo mot yu matul mm. naa fi la yooyu moom la ñuy jël fàtteeka mm. trou yi nga xamante nii xëy na moom nga moom nga manqué la moo tax tey jii boo ne def naa bul ne def naa farata yi rek mm-hmm. naa fi la garaawul est-ce que farata yi mat na est-ce que ni ñu ko defee noonu la est-ce que suñu borom subhanahu nag comme ndax valide na ko wala déet fexeel say la di bari mhm. ndax bari la ay naafi la mhm. moo gën néewle ko mhm. ndax loo bari la ay naafi naafila rek dañuy jël dugal ko si sa compte bale bu fekkente nag compte bi dafa nekk en déficit mu nekkaat la nga xamante ni lu yokk la mais bu fekkente nag dafa looy benn naafila fekk fële am ay trou wala mu vide yaakaar naa di nga yeex am ay yiw wala ay tuyaaba ya nga xamante ni moom moo koy moom moo koy mottali moo tax may wax ne ñi nga xam ne dañu programme woon dañuy umra ji yàlla dogal ne amul am nañ beneen xeetu tawaaf bu ñu def mooy li leen yàlla dimbalee ñuy wër kër yi wër néew di doole yi mm-hmm. yooyu yëpp ay xeeti na ndaa fi la ya nga xamante ni boo ko defee mm-hmm. suñu borom subhaanahu wa taala daf lay yombalal lu bare bëree bëri ndax yàlla moom moo wax si alquran ne li ngeen bëgg rek li ngeen gën a bëgg dee leen ko joxe man ma leen kay yokkal macha allah nit ku nekk li nga gën a bëgg rek ngay joxe yàlla di la ko di la ko dollil bâche voilà tànn quelques questions maximum cinq yoo xam ni dinañ ko jébbal oustaz Assane mu tontu ci euh, euh, loolee euh, dans quelques minutes lay doon donc on vous laisse le soin de nous envoyer quelques questions yoo xam ne ni mën na leen soxal ci diine ji mu tontu ci ñu doog a tàmbali jotaay bi la nga xam ne ni tey jotaayu Cheikh na Cheikh Saad bu la démb ñoo ngi woon Tiwaawan tey daañu dem Nimzaat lu waay bëgg rek ko am tey ndax euh, guddi yi day bëri te wute mhm. euh, góor yàlla yi ñuy waxtaanee nag kenn ku ne am na loo xam ne ni bàyyil nga ñu ko euh, ñun ñun ñu koy ndamoo à travers quartier général di leen waxtaanee di waxtaan mu mag woo xam ne ni dañ ko tàmbali bu ca kanamee tout en vous rappelant que yi ñu leen diggoon itam ba tey wàccuñ ko am na nañu ay ndimbal yoo xam ne ni ci période bi bile dañu koy séddale ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi donc bokk na ci 88 628 72 86. 06 88 628 euh, 65 65 88 628 99 80 ak 88 60 euh, 628 euh, euh, euh numéro téléphone yi euh, am na yeneen yu des waaye man maa tànn yi nga xam ne jàpp naa ni baax na ma jox leen ko donc secret la que ça reste entre nous bu ngeen ci wootee immédiatement di ngeen mën a bokk ci ñi nga xamee ni dañu leen di jox ci ndimbal yi le soit mën na nekk enveloppe bu def ñaar fukki junni mën na doon itam dund bi Euh, ndax euh, am na itam ay mbir yoo xam ne ni euh, dañ leen koy baaxee ay pañe yu def ceeb diwlin meew soble pombiteer café tàndarma saabu gel ak masque bu leen neexee ma def ko xaalis bu leen dexe neexee ma def ko dund bi donc ak fu ngeen mënti woote ci Sénégal yii euh, mooy yi ñu leen di baaxee euh, ci guddi gi tey donc ñu ngi leen di xaar woote leen léegi nii dès à présent parce que séddale moom euh, taamu naa ci kuddu yu njëkk yi ñu ngi gërëm itam partenaires yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal Orange ba CO TQG merci ci confiance bi ngeen def ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal Mamadou Ndiaye il faut rappeler que ñoom partenaires yëpp yi rek leen tax a jóg ci période de crise bi le ñoom itam méngale nañu seen i produits ak yi ñuy jaay ak euh, li sénégalais yi war soxla ci période bi. jërëjëf euh, Pape Cheikh ni ko waxee noonu la demee ñoom partenaires yi nga xamante ne jox nañ confiance quartier général waaye aussi Sénégal moo la ñor ku ci mel ne orange bi nga xamante ni dafa jël suukaru koor di ko jagleel ay clients am maanaam boo jëndee Ilimix bu mille francs di nga am euh, poñi ndogu boo xamante ni am nga possibilité gagné ko ci semaine bi leneen li nga xamante ne orange def na ko ci Ilimix boobu di nga am 24 heures d' appel Ilimix ak surtout 100 SMS di nga am 500 MO yoo xamante ni ci internet la aussi euh, mën na am mën nga ko am ci application bi di Orange et moi ci dièse 144 dièse wala dièse cinquante dièse wax nga ko sànq dañuy gërëm ñi nga xamante ni ñooy euh, les Kandia mi nga xamante ni mooy mais bu am solo la ak TQG Touba. quincaillerie générale NMA avec les pâtes pastami euh, sow ardo savon mais mi nga xamante ni moom la ñuy raxasoo ci période yi euh, Delia et la gamme Jadida sant yàlla boutique ak ñii di Prestige Déco surtout chez Katia mi nga xamante ni am nañ possibilité euh, am seen livraison ci période de couvre-feu bi di ñi nga waxante ni mooy OCIO mi nga xamante ni ndox mu sell la te fii lañ koy defaree fii ci Sénégal <coughs> voilà donc ñoom ñëpp euh, ñu ngi leen di euh, gërëm euh, ci ànd bi ñu ànd ak quartier général li ci neex mooy guddi gi nga xiif couvre fa am <laughs> xamoo fooy jaar nga woote rapidos ñu livré la ay lekkuk kaca wala dibi ak yu baax loolu y a rien de tel tout en seetaana quartier général parce que xam naa ne da ngeen dem ak ñun euh, ba euh, xëdd ñu nit ñu ciy bég lool euh, préparé nañu nag ay sujets yu am solo ci jotaay bi tey bu ca kanamee daañu waxtaane ñi nga xamee ni ñoo amee laago ba noppi itam seenug dund ci situation bile ñu doon ni ay handicapés riposte contre le Covid 19 on en parle tout à l'heure ak ñaatam sekk ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bay Cheikh di nuyu ñi ma bokkal plateau bi waaye tamit di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di ñaan yàlla rek bis bu nekk euh, yàlla ñu yàlla dàqal mbas mi di masaw ñi nga xamante ni ay waay am nañu ñu ci euh, génn àdduna euh, waaye tamit di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni dañoo safoo télévision Futur Média Baye Cheikh wax nga ko léegi dinañ ñëw ci seen rubrique décomplexé jàpp sa fulla dalal ki nga xamante ni mooy Aïssatou Cissé ci kanam tuuti moom nag moo leen taxawal fële ca présidence de la bu ñu fàtte ne ci conseil yi la bokk euh, yaakaar naa ni tey dina ñëw indi tegtal ak ay leeral euh, ci li nga xamante ni mooy mesure yu ñu jël jëmale ko ci séddale euh, maanaam dund bi maanaam li nga xamante ne ndimbali laa ko mën a tuddee ci kanam tuuti mu indi ci ay tegtal waaye tamit indi yeneen i mbir yoo xamante ni am na ci Covid 19 bi incha ci kanam tuuti dinañ ko daral Aïssatou Cissé Baye Cheikh. voilà Aïssatou Cissé que nous apprécions que nous aimons beaucoup voilà on la retrouve tout ci waxtaan boo xamante ne séq na ko ak. ñaatam sekk et puis jaaykatu beñe yi <laughs> euh, rag na ma ba tàyyi ci euh, seen taabal yooyu euh, xawma nag nu ñu nu ñuy def ak période de crise bi heureusement <laughs> bu dul woon nag koor gi ma ni madu mi niroog beñe <laughs> waaye bëggu maa tooñ comme nee naa Assane léegi bu ma tooñ man sañu maa tooñ waaye bu dul woon nag koor bu doon yeewu leen la rek ñu naan leen na madame Nuru Beñe moom def na ci gëstu bu am solo mosuma puula <laughs> du ma la tooñaa ah. waaye coro seetal li ma xalaat rek <laughs> te xale yi te ñu ñoo gën a seetaane sur terre ndax li ma wax dara dara dara reetaan lu mu ci xam ngeen bu baax ni mado nuruwul beñe wallaay tarkalla macha allah <laughs> laa yàq sukk mi kal na mel na naas <laughs> wallaahu yasimuka mina naasi salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi euh, salaamaaleykum ñi ma bokkal plateau yi rawatina Baye Cheikh ñëpp xam nañ ni nag moom sama doomu bàjjen la moo tax lu mu wax rek dañ ko koy nangul rek ndax doomu bàjjen ak doomu nijaay nii rek la mën a demee waaye ci noonu Baye Cheikh rek xanaa mu nuyu rapidement euh, maanaam gendarme yi ñuy faral ci taseet ci réew mi ci mbedd mi ñoom nga xamante ne ils abattent un grand travail daam ku la ci xëbal wallaay xëbaluñ moom dañu baax bay bëgg a dee ndax damay man de saa yu ma leen na ñaar ñaar ñu ma xëbal yenn saa yi am na ci ay tuuti tuuti yu am zel yoo xamante ni boo leen ne autorisation baa ngi ñu ne la uwee la d'identité mais am na ci fukki yu gentil yoo xamante ni sa kanam rek la ñuy xool ah diw avance mbaa kenn xëbalu la wallaahi kenn xëbalu ma alaaji ah kon baax am na ci ñu ñàkk kersa de <laughs> donc ku mel ni Gabriel ak ñoom ñëpp macha allah <laughs> ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax et puis di nuyu nag bu baax comme ni nga waxee rek tey Chérif Abdati Aydara ak ki nga xamante ne moom moo di Chérif Sidati Aydara euh, borom mouvement Sëvinatu Najum nga xamante ne ki ko jiite moom moo di Astou Mbodj suñu magu bopp comme tey ki ñuy waxtaane xam naa ne ku leen ñor lay doon kon maa ngi nuyu mbokk téléspectateur voilà ñu ngi lay fay c'est vrai que chérif yëpp jóg nañu euh, tey boo demee Nimzaat euh, euh, kenn nelawul Euh, ci euh, dëkk yëpp itam euh, fépp fu sang ne rek yaa ngi waaj te tàmbalee guñu 23h rek kay doog jot dañuy bëmëx sujet yi am yu ñu leen mosal rek doog a dugg nag carrément ci waxtaan bi ak borom xam-xam ak xan xam nga Sénégal moom daa bëri ay borom xam-xam macha allah ay chaque fois ñu à chaque fois ñuy waxtaane góor yàlla yi ñoom la ñuy wóolu wóolu wóolu leen ñu ñëw jàppale ñu ci parcours uk ñooñee nga xamee ni wax naa boobu ba tey ni suñu borom daf ñoo beral loxo ñu euh, ñu mel ni Cheikhna euh, Cheikh Sadbou xeertu Euh, donc laataa ñuy tàmbali euh, ci kanam dinañu waxtaane importance suk euh, communication de crise en période de keri coronavirus loolu yëfi journaliste la Corambaar Ndiaye def na ci gëstu bu am solo on on vous propose ça la communication de proximité la Baye maa ngi leen nuyu bu baax ñuy ñëpp ñu nekk ci plateau bi damay bañ na nga wax ma li nga wax Oustaz mais du ñu commencer nag sans pour autant wax leen fierté bi ñu am ci quartier général bu démb bi voilà donc loolu rek laa lay wax. Ah, ci li ngeen préparé ba pare ci njàng laa lay wax. ci eh, télé eh. après nañ nag benn bennal. d'accord. Ah. <laughs> yow man ma nekkee émission animateur. waaw d'accord Baye léegi nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ni nga ko waxee. Euh, dinañu wax lépp lu wàllu communication de proximité. Euh, parce que ku nekk ci ñun euh, tu as ton rôle à jouer dans cette donc tey ñuy waxtaanee njëriñu communication de proximité parce que am na ñoo xamante ne tey Oustaz Assane mi ñu dëkkal moo leen gën a mën a ñaax ci feebar bi que xëj na Abdoulaye Diouf Sarr mi ñuy gis ci télé bi tous les matins on on en reparle tout ñaaxu kenn agréé rek bu ko exemple. kay pare naa <laughs> bu que tey que chef bi kii ñaaxu kenn kii yi ma ko xamal yépp daal dama ko décider ramasse tey. sama ngelaw moom du ko fa bàyyi loolu moom lu ma leer la. xamante ngeen ah? daal. ne ma sama xarit bi ne ma tega fi mu ne am na ay gàllaaj yoo xamante ni bu ma rombee kaas sax mu toj moytu ma <laughs> ma ne ko donc en yooyu moo leen di xaar balaa ñu jàll nag euh, ci euh, question yi nga xamante ni bëgg nañu ko baaxee euh, oustaz Pape oustaz Assane Seck très rapidement ñu jël quand même quelques téléspectateurs bu ko defee ñu baaxee leen ci ndimbal yi nga xam ni jagleel nañu leen ko maa ngi gis Cheikh Modou Mbuub ma ngay waaj moom it bu jamono neexoon ay tabala koy dar mais malheureusement rassemblement bi la ñuy bañ ñaari tabala sax c'est interdit <laughs> rassemblement de tabara moom de tabala mënatul ne waaye sant rek yàlla na yàlla na sunu borom taxawuñu bëy yëpp passé euh, tey nag euh, ñu euh, fas yéene ànd ci waxtaan bi ak ki nga xam ne ni mooy Mohamed Seck Euh, moom it euh, di borom xam-xam euh, mu ngi installé wu ci ginnaaw Cheikh Modou Mboub itam ma ngay wàcc ci ginnaaw daañu jokkoo itam directement ak waa Nimjat parce que am na sunu sang yoo xamante ni ñu ngi wàcc pour ñu waxtaan ak ñoom ci guddi gi nga xam ne ni dañu ko jagleel seen maam di Cheikh na Cheikh Sadbu ma gis itam sëtub Cheikh de Calaw yëpp. ki nga xam ne ni moo àndoon ak Cheikh na Cheikh bu xeertu Euh, ñoom it euh, ñu ngi réagir te dara tàmbaleegul euh, loolee di ngeen ko mën a dund en direct bu ca kanamee ci télévision Futur Média donc très rapidement ñu ñaan ci ginnaaw rek ngeen ubbi téléphone yi ah ubbi ngeen bu yàgg très bien kon na ñëpp ñëw ñu jox leen seen ndimbal yi ñu leen jagleel ci guddi gi tey ci télévision Futur Média donc regardez yëpp ay yu ñu leen jagleel la ay saaku ceeb ay saako diwlin ay astafurla ay saako soble <laughs> ay diwlin ah ay tàndarma ay masque lii yëpp rek pour euh, dimbali leen ci euh, période bi la nga xamee ni période de crise la donc ñu ngi euh, xaar téléspectateurs yi tey nag il faut ngeen defanteeg waa Pout yeeg waa am taay Mboro parce que temps yi moom Daaru Salaam Mbour ak Pout am na nu sens trop man dama foog ni Mamadou Ndiaye moo jox secret bi Nanette mais je me suis rendu compte que Nanette Ndiaye jóge na Pout bu yàgg ma nga ruyel Malmaison ko ñu mbooño ko naate ca France ma nga ruyel mais daa avancé de Pout à Paris moom musul dëkk Dakar xam nga gis nga yooyu yu lu garaaw ngoom am na ay xarit yoo xamante ni musuñoo ñëw Dakar cest à ndox mu sedd sax France dañ ko découvrir moo tax ils sont toujours impressionnés par la France c'est-à-dire Nanat Ndiaye Pout la jóge dem Diass moom xamul Dakar direct Diass moom dafa jóge Pout rek Pout Diass léegi ñooñu ñoo la naan léegi am ngeen kooku mooy def 40 ans France nan la waaye France am na meew mu sedd fekk ñun ñii meew mi dañ ci doon sangu Nanat Pout Paris incroyable <laughs> te sax Pout jege na am naa ci ñoo xamante di fële mbaddaxuun itaali yooyu ma naqar yépp yàlla baax na yaa ngi kule maquillage ma doon <laughs> ay ca gaaw leen donc euh, euh, maa ngi doon tooñ ñi nga xamante ne ñoo am chance di dugg ah lan nga ndogoo tey wallaay ni dem ba tey damaa tawat nag dama leen ko rusoon ragal ngeen quarantaine ma damaa tawat de sooy daal démb li ab démb daal moo ma jàpp ba tey hmm. ah, waaw. loolu la baax na ah te yàlla waxul rek de waaye eh, eh, ni ma koy xoolee. da ni la wax ko xool yëpp. ah. ñaan na. elle est tellement positive. c'est bien Aïcha na téléspectateur yi dugg eh, tonton Mag Eva ci ginnaaw. 88 628 22 22 xaaral ma joxaat leen numéro bi numéro yi am na numéro yu bari de mais yi ma leen di jox nii. wóolu leen ma de 88 628 72 86 numéro bu baax la 88 628 65 65 numéro bu baax la 88 628 99 80 numéro bu baax la voilà donc ay ndimbal la rek yu ñuy séddale euh, tout au long de cette émission allô allô allô allô allô oui. li ngeen di gis yëpp mooy yi ñu jot euh, jox rapidos mu dem yóbbul ko téléspectateurs yi parce que ñu ngeen ñëw euh, toog leen seen kër ñun itam dañu koy respecté euh, puisque ay mesures la yoo xamante ni euh, neexul gouvernement rek mu teg ko ay état d'urgence ak ñoom seen waaw président fi tam tollul foofu jékki-jékki rek mu neex ko rek mu ne état d'urgence loolu waxuma la dictature rek waaye sañut loolu dafa fekk ni dañu nekk ci période boo xamante ni toog suñuy kër rek mooy solution bi donc du ku nekk ci wàll ba nga ne nga respecter mesures yi mooy tax ñu éviter lawuk euh, euh, Covid 19 bi tey moom dimanche bu xaw a doy waar la parce que a ay beaucoup de et euh, semaine bi defe naa semaine bu gën a metti la ci depuis crise bi tàmbali puisqu'on on eu plus de dix morts hein, si je ne me trompe depuis lundi. altine ba tey fukki nit faatu euh, ci feebar boo xamante ni ba léegi am na ci <laughs> ñoom Mbaye Diouf xale wuyu yi am nañu ko ci ay soay af ah, ay ah, ah, li existé wul et pourtant lu existé la donc faites très attention euh, nañu gën a nañu gën a nañu gën a moytu nañu moytu jàmbat loolu la ñoom oustaz wax mais parallèlement euh, bu ñu jàmbatul it nu gën respecter mesure barrière yi allo allo oui kooku yow foo dëkk. Aminata Ndiaye waaw. Aminata Ndiaye. Ndiaye Escate nga dëkkee naka waa Escate Urbam. ñu ci jàmm bu baax alhamdulilah. yéen a ngi ci jàmm yéen a ngi moytu euh, feebar bi di protéger wu sàmm mag ñi ak xale yi ci kër gi. waaw ñu ngi bu baax di jël seen précaution yu mat sëkk. yéen a ngi takk masque yi. ñu takk masque yi bu baax kay bu baax baax. yéen a ngi raxasoo. ñu ngi raxasu toccamikoo gel bi. waaw waaw gel antiseptique ñu koy jël bu baax. mbaa seeti woo kenn yaa ngi toog sa kër. déedéet très bien kon yow dama lay teel a jox sa ndimbal du ma la téye ci ligne bi lu yàgg. Aminata ma jox la dund bi wala njëgu dund bi. waaw bu ma mënee am cent mille francs ak peñe moom dina ma gënal parce que. Eh, Aminata ah, ah, nag gis nga xam ngeen yéen ñun waa TFM dañ leen ko yombalal lool bàyyi ma jox la cent mille rek hmm? bàyyi ma jox la cent mille ma jox la benn comme am na ñu nekk sa ginnaaw voilà bàyyi ma jox bàyyi bàyyi ma jox la benn cent mille rek li ci des yàlla baax na nga taaba taaba cent mille francs weer baax na ñaata ngay dépensé sa kër yow par jour ñaata laay waaw dépense yi day yokku eh nekkuñu feetu gastronomie ah. <laughs> weeru jaamu yàlla la wàññil wàññil dépense bi parce que doo toggu ndékki amul añ amul wax amul ndogu rek am. <laughs> waa cent mille par cent waaw francs par jour ñaata jour la. daanaka weer la de. ah mais ah, eh, Aminata. jëla jëla jëla jëla 100 jëla sant yàlla baax na jëla 100 ba jamono neex. laqar laqartil naa la laqartil naa la cent mille dina cent rek yow tam doom nday ne quitte pas ne quitte ne quitte pas voilà moins vingt jours de dépense ah, c'est c'est quelque chose quoi ah, vingt jours te boo demee sax cinq mille cinq mille sax góomu ni cinq mille lay dépassé dina ci am weccit mm. ah cinq mille da ngeen dugg mille cinq mille baax cinq mille baax na donc vingt mille. cinq ben oui ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm. donc voilà am nañu plus de quarante personnes yoo xamante ni téléspectateurs yoo xamante ni yónnee nañu leen seen dundu ak seen ay xaalis vraiment ils sont peinards. voilà donc ñoom comme Aminata mi euh, kontaan nañu ci euh, télévision Futur Média dimbali leen ay ca gaaw leen ak beneen téléspectateur laata ñuy jàll euh, ci yaa oustaz xam nga Baye Niass fi nga toogee da nga maa nëbboon Ablaye Ndiaye ndeke Ndiaye ngi fi depuis sànq def toilette am bu rafet Ablaye moom saa yu neexee rek day yegg si parce que euh, bi mu déggee riiru tabala yi ni Cheikh na Cheikh Saad bu euh, xayartu la ñuy fas yéene waxtaane euh, ci la préparé guddi gi tey donc Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar tey nag bu doon suñu sago ki nga xam ne ni mooy Abdou Père Cheikh Thierno Ndiaye Euh, day fekke guddi gi mais malheureusement euh, nee na xaw na tawat tuuti yaramam neexul moo tax waaye ñu ngi koy ziar bu baax ndax moom euh, kenn la ci yoon wi alaaji la ca màkk cheikh la ca nimzaat donc bàyyi cheikh Thierno Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax ajat sooda Bousso ku ne xam diggante baayam Baye Mbagnick Seck ak njabootu cheikh na cheikh Saad bu xayartu moom it defe naa tey guddeem la ku mel ni metre joor Diagne ku ne xam baayam ci yoon wi euh, euh, alaaji la ca Makka moom it seex la ca Nimzaat Euh, euh, ñu ngi koy ziar moom euh, ajatu penere ak doom di joor xam ni guddi gi itam seen guddi la waa kër Cheikh Dethialaw yi ñoom maam faatu Seck ca New York nga xam ni seen maam moo sulli néew ya ndar géej dëkkal Baylo Ndiaye ca ma Ngéewul ci tase bu mu tase woon ak Cheikhna Cheikh sat bu ñoomit guddi gi seen guddi la duñ ci soreegum waaye àddina yëpp a ngi wàcc li nga xamante ni moom la ñu nasati fas yéene ko proposé téléspectateurs yi njaay ñu ngi lay ziar di la ndokkeel di guddi gu neex gu nar neex incha allah Cheikh ñu leen di nuyu. loolu. ci dëgg dëgg dem beeg te contentement ñu ubbee yoon yi damay dem coro ala ko ci dëgg dëgg waxtaanee koo xam ne ndeysaan ci dëgg dëgg ko teel a anticipé ba mu juddoo ñuy waxtaan sët Seydina Mohamed ci dégg dëgg ak kan ndeysaan sëñ Modou Mbuub mi toog di sama soppe sama xarit bi waaye nag boo ne Cheikh na Cheikh Saad bu ci dëgg-dëgg sama xel mi day dem ci Cheikh Yaasin Dukure bu Pikine ndeysaan ci dëgg-dëgg bëgg Seydina Mohamed lool ah tey jii ndeysaan ci dëgg-dëgg dana doon guddi goo xam ne ndeysaan guddi gi alaa daw me la du nuyu téléspectateurs yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccu wàccu weeru koor wi di ñaan suñu borom tabaraka taala mbas mi dem ci jàmp nda génn ci suñu réew mi ndax soxlaatuñu ko fii ci dëgg-dëgg jërëjëf Pape Cheikh di dawal ba ci kanam. yii yëpp waxoon naa ko Bijou Ndiaye ak Bouba kii bi quartier général nekkee projet Bouba dëgër bopp lool. lu ma dal ci Ndiaye tey rek moo ma ko yóbbee mais amul benn problème. Pape ci dëgg-dëgg yow yow ñoo far te sama yaram lay daw ci yow. ah baax na. yaay sama soppe sama doomu xol nga. ndax dégg ngeen bi ma koy wax. noonu la koy waxee. <laughs> mu ngoog Ndiaye kontaan nañu <laughs> ci kanam xam naa bu Cheikh Modou Mbuub ne der moom ay maddaawam rek euh, mbégte la yenn saa yi ba ko ne ko Cheikh Modou man maay sa président fans club ci cofeel euh, moom it euh, mu waaj guddi gi lii yéenam la woon depuis plus de trois années saa yi ma wàccee rek guddi gi quatre heures du matin la may waa sawaay Cheikh Ba bu kañ lañ koy sàkkal bés ci quartier général bi donc defe naa tey guddi gi guddi Modou Mbuub la xaj na maa wax loolu euh, daañu ko fekk fa mu ne moom it ci plateau boobu euh, bu ca kanamee fekk ñu euh, tàmbali yaw saas ñu dem ak question yi mhm. bu njëkk bi kii dafay laajte di woor ba noppi mais gént dafa gént am lu génn ci moom mhm. nee ndax bu yeewoo kor gi day yàqu walla yooyu xaw ma ndax xam nga. waaw xam naa xam naa xaw intime moo tax. waaw waaw xam nga diina moom. waaye Cheikh yéen mu neex lool. xam nga diine diine moom amul tabu gis nga loo dëgg ñu ne la tabu la rek si diine mooy wax bu amul yar ak tegin waaye Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ba jàngal ñu naka la ñuy nekkee suñu ay soxna si biir néeg bi mais lépp dafa ànd ak yar ànd ak teggin kon loo dégg ñu la tabu rek mooy wax ba nga xamante nii mooy wax bu amul yar amul teggin te alquran fatiha ba naasi amul benn wax ba nga xamante nii ñàkk na yar na ma yàlla jéggal wala mu ñàkk teggin doo ko gis si alquran doo ko wax si waxu sayduna muhammad doo ko si gis sallallahu alayhi wa sallam ndax moo waxoon ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi nee na suñu borom moo ma yar te dafa rafetal sama sama sama sama yarin léegi question bi mooy ki nga xam ne dafa woor tëdd nelaw gént ba am lu génn si moom moo xam góor la moo xam jigéen la su boobaa loolu yàqul kooram. ah bu jógee day sangu sangu janaba continuer kooram. ah da ngay sangu set rek continuer. sangu loolu ah, bokkul si mufturaatu sawm maanaam li nga xamante ni day tax sa koor dog wala mu yàqu déedéet. Mm-hmm. boo tëddee gént ba cëgu weeru koor. Mm-hmm. boo jógee rek da ngay sangu sangu janaba. Mm-hmm. boo paree nga continuer sa koor. te doo fay bés bi. d'accord waaw ndax sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon na ñett yi kenn du si topp sama xeet. rufi ala ummati alxata wa nisyan wa mastukrihu alayhi. xamante da ko def si njuumte ak bi nga xam ne bi ngay def danga ko fàtte ak bi nga xamante ne dañ na la boo ko deful sa bakkan des si ah. ñett yi nee kenn du si topp kenn ndax jamonoom am na ñaari saxaaba yu àndoon moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi dogaale leen ne kenn ki yow lan nga wax si sayduna muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yàlla moo ko yónni te moom laa gëm mm-hmm. yéefar yi tàqale boppam ak baatam ne keneen ki yow la wax si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen waaye kooku day waxantu rek kenn gëmu ko gaa yi ne ko demal sa yoon mu ñëw si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dey dama àndoon ak diwu yëfar yi laaj ko moom lu mu wax si yow mu ne moom dafa la gëm ñu rey ko man dëkk ñu laaj ma lan laa wax si yow ma ne gëmuma la mais sama xol bi yow rek yaa ko feese waaye dama ko wax rek ngir muccal sama bakkan yonent bi sallallahu alayhi ne ko kañu faat ngëmam moo toll foofu waaye raw waaye yow dégg diine ak rawale sa bakkan moo tax kon kenn la si topp dara illa man ukriha wa qalbuhu mutma innun bil iman am na ñoo xam ne dañuy dem ba seen ngëm la ñuy mettre en danger seen bakkan kon la ñuy mettre en danger mais pour ñu sauver seen bakkan parce que mën nga sauver sa bakkan tuub dem jaamuwaat yàlla te kenn du la andil problème mais pour sauver sa bakkan mën nga mën nga par exemple lu mel noonu bu la arrivé nga dem mais du tee boo paree nga tuub delluwaat si borom bi subhanahu wa taala waxuloo ko ngir weddi waaye da ko wax ngir sauver li nga xamante moom moo di moom moo di sa bakkan kon ku nelaw bëccëgu weeru koor nga gént ba dara génn si yow góor wala jigéen boo jógee sangul ba set sangu janaba ba pare nga continuer waat sa weeru bésu koor mhm. te doo ko fay d'accord entre entre entre euh, ndogu ak euh, julli timis euh, mhm. moom nee na dafay ndogu man daf may dal sax souvent mhm. tayal waaye day bàyyi ba mu doog a fay timis bi est-ce loolu yoon la waaw xam nga boo xoolee waxtu timis moom muxtaaram dafa gàtt lool am na ñoo xam ne neen sax sept minutes la am na ñoo xam ne nee quinze minutes la yàlla rek a xam mais li ëpp solo mooy boo naanee ndox bu dee ndox ngay dogee wala café wala lekk tàndarma timis ndax muxtaar mi dafa gaaw comme ça nga mën a am si tuyaaba yi si ni nga xamante ni noonu la gën a baree parce que comme amuloo ngànta dara téyew la yow lii sa sa lii obligation mooy nga julli timis bi si waxtoom ki ñuy may muy bàyyi muxtaar bi di xaar daruuri bi mooy ki am ngànt boo xoolee daruuri sax lañ wax ki nga xam ne dafa am ngànt boo ko doon teggi si olof tekki si olof mais ki nga xamante ni mu ngi toog am wér deful dara bu dogee lekk tàndarmaam rek naan ndox mën na dem julli ji timis ngir bañ yiwu muxtaar bi daal di koy daal di koy romb te boobaa bu toogee sàggan toog rek parce que dafa sonn wal nangam ma mu romb ko boobaa day fautif waaw entre waxtu dog jot ak cheikh tàndarma bi Euh, ñu ne itam loo ci ñaan. waaw sunu borom defal la ko. loolu maa ngi koy wax ba ba tey mais. Euh, waaw bëggoon naa ñu insister ci surtout pour téléspectateurs yi mën ci profité. waaw Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne ñett ñi yàlla du delloo seen ñaan. Mm. ñu ne ko kan ak kan mu ne ki ñu tooñ. gis nga nit ku ñu tooñ. ba xolom fees mu tàllal loxoom ne allahumma wala rabbana yàlla da ko day nangu ñaanam. Mm. ndax waaja ba mu nangoo jënu jàmbur jaay ko doole. dem ba jën bi màtt ko ba ñu dagg loxo ba mu ñëw seeti borom xam mu ne ko ku la def la def lii mu ne jënu jàmbur laa jëloon moo ma def nii dafa infecté jën bi ma màttoon mu ne ko demal baalu ko ax nga laaj ko lu lu la def ba lii dal la mu ñëw ne keroog bi ma jëlee sa jën bi lan nga ma ñaanal ba tax sama loxo bi dagg ba infecte te boo ma baalul nee nañ damay dee mu ne ko keroog dama ne yàlla yàlla kii dooleem bi mu ma won ba ma yëg ko wan ma sa doole si moom te doole yàlla xajul si kenn moo tax daawatul mazlum ñaanu ku ñu tooñ yonent sallallahu alayhi wasallam nee na digganteem ak yàlla dara doxu si buy ñaan yàlla di ko def kooku yàlla di dolloo ñaanam keneen ki mooy ñaanuk aju tukki ku tukki lu mu ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla daf ko koy may beneen bi mooy ñaan ku woor bay dog saa yooyu dog loo ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala daf la koy defal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale mm-hmm. léeg-léeg nag doone ñaan naa léegi yàlla un million léegi joxuma un million mm-hmm. ba xewuñu foofu mm-hmm. ndax tey mën nga ñaan yàlla un million ay na benn musiba wala feebar wala maladie bu la naroon dal boo xamante ni doon nga si dépassé un million wala deux millions yàlla fànqal la feebar boobu mm. kon may na la un million mais yaa ko yëgul mm. mais yàlla du delloo ñaan mm. du delloo ñaan yaa ngi ñaan un million am na lu la doon dali loo xam ne dinga nga soxla deux millions pour faju yàlla teggil la loolu kon yàlla may na la lu ëpp un million moo tax boo nee ñaan naa un million aw un million rek day daal dee doy waar moo tax yàlla moom nee na moom lu mu sekk dañuy xam rek wala ñu bañ a xam mais ñu ko ñaan rek mu mu may ñu ko moo tax mu ne bàyyi leen maax seen bopp boo leen ma bàyyi seen bopp ma defar seen affaire xam na lépp waaw dafa ma wax sax an tukrihu shay'an wa huwa khayrun lakum léeg la nekk si mbir topp si sonn si daw bay bëgg a dee boo koy jot doo ko nettali léeg-léeg wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum léeg-léeg nga topp si mbir bëgg ko lool fekk sa musiba la léeg-léeg nga bañ mbir lool fekk sa teraanga adduna ak àllaaxira si la ko yàlla lamas yàlla nag comme yéen xamu leen man maa xam bàyyi leen ma ak seen bopp ma programme déroulé sama programme lu jot rek ma def ko comme ça ngeen mucc adduna mucc mucc àllaaxira kon ñaan ku dog buy ñaan lu mu ñaan yàlla daf koy def mais bul na ñaan naa cinq cent mille aw ma cinq suba suba rek avant midi parce que ñoom am may ma cinq cent mille yàlla gisoo cinq cent mille liquide nii mais si si si maanaa si misaal am am nga cinq cent mille yoo yëgul wala lu ëpp cinq cent mille sax te te ko mm-hmm. kon da ñaanu kuy dog mm-hmm. yàlla du ko delloo te Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko jàngal voilà kii moom neena na tout le temps dafay euh, day woor ba pare di seetaan ay vidéo yoo xamante ni vidéo lekk la ay vidéo yu ñu dagg ay yàpp comme dañu ko xewal léegi di ko partagé ay vidéo di bi mhm. ah, ay vidéo yàpp yu baax yu mhm. nooy nepp yu ñuy yu ñuy fulli mhm. mu nooy di saxaar ak yooyu na ndax euh, daraa ngi ci waaw xam nga loolu moom euh, Baye Cheikh bu ñu waxee rek yàqul koor yàqul koor parce que bokkul si li nga xamante moom la ñuy wax muftiraatu sawm ah mais dañu ne bët daa war a woor non waaw fa laa jëm xam nga ah. par exemple buñ ne bët dafa war a woor tey jii nii maanaam bët boobu mm. bu xoolee lu mu warta xool day wàññi yoolu koor ba maanaam par exemple yow yaa ngi woor yaa ngi xool la nga xamante ni xëy na dafa xaraam mm. exemple mm. ngay seetaan film tey ko mu wër na ni film bii lii siy génn dara baaxu si nga focaliser bët bi sa bët boobu li muy gis yow jàppal na yaa ngi wàññi sa yoolu koor mm. boo demee ba am loo yëg nag ba mu génn si yow la nga xamante ni tey ji lu man yu ba génn si yow yow jàppal na moom sa bés boobu moom koor ga yàqu na te yaa ko tey sa koor. ah maanaam boo seetaanee ba mu yëngal la. waaw ba mu yëngal la ba nga am loo yëg ba am lu génn si yow. di ah. mën yu. Ah. yow jàppal ne sa bu yëngalul yool bay wàññeeku. yool bi day wàññeeku mais tey jii nii boo gisee mais nag yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu jàngale foofu lu am solo ne man lam yada qawla zuuri wala amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yada taamahu wa sharabahu sallallahu alayhi wa sallam nee ne ki nga xamante ni dafa woor te kooram terew kaa xool lu ñu tere terew kaa déglu lu ñu tere terew kaa dem fu ñu tere terew kaa jël lu ñu tere terew kaa laal lu ñu tere terew terew kaa wax lu ñu tere nee ne kooku na xam ne kooram googu day yàlla soxlaawul muy bàyyi lekk muy bàyyi naan maanaam bàyyi lekk gi ak bàyyi naan gi dafa war a ànd ak noot sa bakkan ah. yaa ngi dégg parce que loolu la si yàlla bëgg tey jii nii nit bu wooree yaakaar naa dina tal leneen hmm. lu dul dem séq ak ku mu war a àndal wala ku mu war ta àndal nañ ma jéggal mm-hmm. mais koor boo gisee moo tax sallallahu alayhi wasallam jàngaloon ne yaa ma'shara shabab man istataa minkumul baata falyatazawwaj mm-hmm. fa in lam yastati fa alayhi bi sawm mm-hmm. nee na yéen ndaw ñi jeunes yi ku mën takk soxna am ay moyens demal nga takki boo ko mënul nag na nga woor ñu ne ko lu tax mu ne parce que woor googu moo gën a baax ci pëyam mu mën a sàmm boppam hmm. parce que boo xiifee di nga tal leneen waaye itam moo gën a baax ci ngir bëtam bañ a xool la nga xamante ni lu lu lu lu araam la fa huwa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj noonu la ko waxoon moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boo wooree di xool yiñ togg mu neex nga ci naan xaaral ma duufal bët wala nangam yàqul sa koor waaye am na lu ko gën dem ubbi alquranul karim moo ko gën jàng bu fekkente ne mën nga ko boo ko mënul boo tey téléphone yi comme ni ñu koy waxee télé téléphone yëpp ay télé la nga ubbi sa tele dem YouTube déglu déglu alquranul karim moo ko gën déglu waaraate moo ko gën déglu ku mel ni sëñ Hadi Niass ak tafsiram bu am solo bi wala oustaz Mor Thiam wala oustaz Taïb Socé nga yokk sa ay yiw parce que comme ni nga ko waxee sànq weeru yokk yiw la mais di wor ba nga xamante ni da nga siy def luy wàññi ay yiw fi mu nekk nii nag seytaane yëpp jëng nañ leen lu fi waaye def si bakkan nga ko teg waaw kon yaa ko tey lu waaye def si weeru koor yaa ko tey parce que si bakkan dong nga ko teg eh. te waxoon naa la fi dinaa la ko répété bakkan ñett la hmm. an nafsul mutmainna l'âme apaisée hmm. an nafsul lawaama laam ki na cesse de blâmer ak an nafsul amaara bi suu laam incitatrice muy ñett yu bokkul an nafsul lawaama saa yoo naree def dara di nga am benn conscience buy wax ak yow naan laan déet Assane déet Pape Cheikh déet Mamadou Ndiaye bul dem bul def nangam wala nga def ba pare mën a laan xoolal li nga def ba pare lu ko fi jaroon lool la ñuy wax an nafsul lawaama yàlla daf ko indi si alquran laa aqsimu bi yawmil wala bi nafsul lawaama mm-hmm. ak an nafsul Euh, al amara bi suu ak boo xam ne danaa naan waaye demal waaye garaawul mooy laam incitatrice mm. waaye lii du dara ay eh, waaye garaawul amul problème mm. waaye naanal waaye jël ko waaye defal waaye nangamal waaye sàccal al nangam ba nga def ko ba pare nag inna nafsa la amaaratun bi suu illa ma rahima rabbi inna rabbi gafuru rahim sa suratu yusuf mm. yàlla neen nag am na bakkan yoo xam ne day incité doomu aadama pour muy def ñaawteef mm-hmm. beneen bi mooy an nafsul mutma inna muy laam apaisé yàlla nañu ko yàlla defal mooy bi nga xamante ni fexe na ba dominer mm. laam incitatrice ba mënalu ko def loolu ñu waaye itam bi nga xam ne fexe na ba dëglu laam ci na cesse de blâmer balaa ngay dem mu naan la deet attends teeyal dafa ndànk nga fexe ba dominer ko mhm. yàlla ne boobaa yow nga am nga am an nafsul mutmainna boo demee si suuratul fajr yi saf mujjantal ga mooy am na benn tàgge bu ñuy teg Sud FM ñu jéggal ma suñu ay collègues lañ mhm. yàlla na ñuy wax naan yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati mooy seen bande bu neex boobu ñuy takk rek ñu ma neexee yaa ayyatuha nafsul mutmainna yaa am na nu mu koy mbaari daal bande bu neex a ngoog irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati su ma demul juumul Ali Jabir moo jàngoon njàng moomu jéggi na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm si imam màcc yi la bokkoon donc l'âme apaisée boobu yàlla na ne bu ñëwee yomal xiyaam yàlla moo koy gàttal yow yow seetal leen ma bande boobu lool loolu loolu dafa neex de ñëpp ko jàpp c'est comme Salim Touré rek voilà ni ñu jàppee Salim Touré seen national noonu la voilà noonu la ñu moom nu mu tuddati bande boobu sax yaa ayyatuha nafsul mutmainna si suuratul wal eh, fajri la maxu maxu maxu bu ko mën a bind bu doon Pape Samba dina ko bind mais maxu moom suuratul fajri si fin bi mooy maxu waxal boo xal buuba nuur bu bindal la ko boobu comme dem na màkk ba ñëw yaa ay natu xëy yaa ayyatuha nafsul maag tonton mag ñooy am mënuñu yooyu léegi léegi nag léegi nag lam apaisé laay damaa bëgg ñu tegal ma bande dinañ ko teg léegi nag lam apaisé boobu bu ñëwee yow mal xiyam eh, loolu dafa neex de léegi nag l'âme apaisée boobu eh. bu ñëwee nee nañ yàlla moo koy gàttanul boppam ah. imaginel Pape Cheikh lu yàlla di gàttanul boppam ah. ak malaaka yërmande yi ah. nga xam ne kon yàlla bëgg na ku noot bakkanam léegi nag moo tax naan yaa ayyatuha nafsul mutmainna yow bakkan bi nga xam ne fexe nga ba dominer l'âme incitatrice hmm. muy an nafsul amara bi suu hmm. fexe nga ba an nafsul lawaama bi nga xamante ne mooy l'âme qui ne cesse de blâmer hmm. dina laan defal bul def teg nga ko fële kon ay am nga l'âme apaisée kon yaa ayyatuha nafsul mutmainna yow mi nga xam ne indi bakkan bu teey bu sell bu laab si jaamu yàlla kese mm-hmm. irjii ila rabbiki radiyatan mardiya mm-hmm. dellu sel si sa borom mm-hmm. mi nga xam ne moom moo la sàkkoon nga nekk ku yàlla gërëm waaye itam yow nga gërëm yàlla si taraanga yi mu la waajal kon fadxuli fi ibaadi ñëwal nga dugg jannati kon fadxuli fi ibaadi duggal bokkal si sama jaam yu sell yu baax yi ma nangul ñun nag waa TFM ñoo baax te xam nga ne euh, euh, gradu jaamu yàlla yëpp gradu abdu moo si gën moo si féete kaw mooy nga nangu jaamu yàlla ba yàlla nangu ne yow mii jaamam nga Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek ko mooy woon yitteelam moo tax yàlla waxoon subhaanalladi asra mm. waxul bi muhammadin mm. waxul bi nabiyihi mm-hmm. waxul bi rasulihi waxul mm. bi nangam bi abdihi bi abdihi ci jaamam jële ko masjidul haram ilal masjidul aqsa ba mu jeex sara ñaan ga moo tax mu ne waduxuli jannati kaay nga dugg sama aljanna yàlla nañu ko yàlla defal moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne jihaad bu ndaw bi jeex na bu mag bi moo des saxaaba yi radiallahu anhu ne ko yow nafs ñi rey nañ suñuy doom mm. ñii des nañ si ñii rey nañ seen ay jabar mm. ñii handicapé nañ si na dal si mm-hmm. yow nga ne loolu jihaad bu ndaw la eh. kon bu mag gi fu ñu jëm eh. mun leen mooy jihaadul nafs ah. xeex ak sa bakkan yal nañu si yàlla jàppale ah. jàmbaar nag newu fi ah. ku yàlla jàppale rek dimbalee fi nekk de yal yàlla def seet na ma yàpp mbaam ba ndeysaan ñu dibi ko dibi mbaam mu nga ma nga xonk señaa mu ne nooy nepp rafet ma ni xam nga li si gàttal daal jihaadu nafs la moytu ko moo hmm. gën moytu ko ndax sa xel nit lu ah. mu bëtam di tege rek dibi da koy transmettre hmm. xelam hmm. donc loolu si bëccëgu weeru koor am na lu ko gën déglu jël alquran déglu jël tafsir wala nga déglu ji comme jaabir bi ñuy waxtaane ak yu demee noonu nga xam ne daf lay delloo si yàlla dellu si yàlla la ñu nekk ak fii réew mi toll ak àdduna bi baa Cheikh mm-hmm. léegi léegi man li may wax mm-hmm. sama benn xarit boo xamante ni Amérique mm-hmm. la dem dugg ci restaurant bi fekk fa côtelette yu rafet côtelette ya rafet lool ñu grillade ko yow mën yàpp américain yi fogo de cao dem na ma fa ñu côtelette ko bii BBQ lu tudd xaw ma nu ko woowee noonu waa Amérique BBQ. moo la ko gën a xam moo la gën a xam am na nu ñu ko woowee daal ñu lakk côtelette yi ma nga wow koŋŋ nooy nepp daal dafa boole xam nga nekk nekk ci diggante woowu nooy ba pare rafet lool doon côtelette. ñu rañ sele ko noonu ay niin niin def jël seen ay soos yooyu rek xam nga Amérique dañoo bari soos <laughs> Amérique dañoo bëri soos nag <laughs> te dañoo bari mburu xam nga ñun benn rek la ñu am suñu baguette France yooyu. waaye ñun ñu am yu tàppandaar yu tàcc yu bureau <laughs> yu xaw ma nu ñu ko tuddee. te li garaaw ci ñoom mooy il faut ñu boole booleel la ci tuuti mboq xam nga ñun mboq. ci table yi lañ koy jaayee ci mbedd bi ñoom dañuy jël ab mboq diw ko bër. Mm. teg ko ci wet gi. xaw ma berek berek fës la xaw ma <laughs> dañuy mel ni ku ko kii dañuy mel ni daal ku ko brochette léegi mu ñu jël côtelette bi daal wërale ko sama xarit bi ñëw dugg lekk bi mu lekkee ba ci digg bi lekk na waa il a tout mangé ah euh, ba ci digg bi euh, serveur bi ñëw ne ko yow na nga def fan nga dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko yéen Sénégal dégg naa du ngeen lekk lii pa mbaam la yàpp yàpp yàpp mbaam la fekk moom mu ngi doon sax xam sax benn côtelette bi ci gém ah. kon waat léegi moom lan la war a def dafa war a àggali sax mi bi <laughs> lekk lekk na ko ba pare it's not nii ok eh, dafa war a dafa war a dafa war a àggali lekk bi wala daf ko war a arrêté. waa xam nga eh, si cas de ñoo bëri soos. xam nga cas bi nga wax. Eh. dafa nekk la nga xamante ni lu mën a nekk la. ndax suñu borom moom subhaanahu wa taala. Mhm. teguñu dara lu diis. xëy na bu laajte woon avant. du ko lekk mais mais balaa ngay àgg moom day day day day day àggali wala day bàyyi. non day bàyyi. ah day bàyyi immédiatement day ah. parce que dañuy wax ne boo nekkee si dara. Hmm. lislaam tere la ko fa la ko teree. Hmm. nga yëg ko foofu foofu nga koy bàyyi xam nga lu tax. Hmm. sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais benn côtelette rek. ñëw dafa am fu ma yàlla amul problème. maa ngi ñëw dafa am fu ma jëm. dafa am fu ma jëm. yàpp woon nooy nepp. kooku sa xarit la de ah. waaw demal demal. dafa am fu ma jëm. te dañoo am sos bu tudd samuraay boobu jar na quatorze milliards ak sauce barbecue da ko cap fii cap fii mu doon ñaari sauce yow boole rek daal dama fekke foog na caaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek moo ñu mën a sàmm ci gën a nay si àdduna man ci dégg sama tur te julliwul si man mm. moom Seydina sallallahu alayhi wa sallam mm. te guddi tey di guddi altine mm. suñu ay jëf yëpp moom lañ koy dajaleel yóbbul ko ko mu tiñul ñu borom bi si ñaawte fi ñu def ngir yàlla jéggal ñu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi aljuma bu jot ak guddi alxames bu jot dañuy guddi aljuma ak guddi altine bu jot jëfi jaam yëpp dañ koy dajale andil ma ko andil ma dossier yëpp ma traité leen ñii yàlla soxla yërmande ma ñaanal leen yërmande moo tax fu ñu waxe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi boo cas de figure boobu xam nga moom bi yàlla di araamal sàngara ñetti étape la mm. yasalunaka anil xamri wal masir qul fihima ithmun kathirun wa manafi'u lin nas yàlla ne sa gars yi dina ñëw laaj la nu lu si yàlla wax ne leen day bàkk ñaawteef bu bari moo si nekk waaye am na lu muy jariñ par étape parce que nit lu mu tàmm boo ñëwee bëgg ko tere subitement yàlla dafa xam ne jafe-jafe mën na am mm-hmm. mën a ñëwaat beneen yoon ne laa taqrab yaa alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluun yéen jullit ñi ñi gëm yàlla bu julli di waaj a jotati bu leen naanati sàngara ndax bu ngeen di demee di julli ngeen bañ a jaxase aaya ak verset yi parce que nga màndi boobu ak beneen étape ñëw na beneen bi nag mu ne innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani daganalu ko waaye bu ko daganaloon lu baax sax léegi troisième étape bi baaxul pour fii sàngara araame définitivement baaxul fii mu araame définitivement <laughs> boo paree bàyyi ma wut. oustaz bul bàyyi dama damay wax bu bëri ji dawal dawal dawal dawal léegi nag xam nga sàngara si fi mu aram euh, araamee définitivement mooy aaya bi innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali sheytaani fajtanibuuhu laallakum tuflixuun yàlla nag ne na ngeen xam ne li nga xam ne moo di sàngara ak jeu de hasard ak yi nga xamante ni bantal ak yi doon def arab yi bu njëkkoon rijsun min amali sheytaan ak yi demee noonu yàlla ne xam leen ne bés ni ki tey yooyu yëpp dafa nekk si jëfi si jëfi si jëfi sheytaane mm-hmm. na ngeen ko na ngeen ko moytu na ngeen ko moytandiku mm-hmm. bu ngeen ko moytandikoo rek texe boo demee ba si biir innama yuridu sheytaanu an yuqi'a baynakum al-'adaawata wal baghdaa'a yàlla ne iblis li mu leen di defloo pour ngeen di naan sàngara xoolal toujours ñi màndi xeex xuloo jam na ko nangam na si li si ëpp mm. na ma yàlla jéggal si mbedd mi yaa ngi dégg fil xamri wal maysir si sàngara ak jeu de hasard yooyu rek lay demee. Mm. am na ay xale yu fi doon joué benn façon jeu fayuñu leen yu fi nekk fi taal ay pneu rayent rayent lu nañu dugg si. ne dañuy manifeste amoon na fi. <laughs> yaa ngi dégg fi si réew bi am na fi. yàlla mu ne wala suddukum an dikrillah wala waya suddakum an dikrillah ba pare day tex bu tudd yàlla jotee wala jaamu yàlla wala julli di ngeen ko tal. am na xam ne ñu ngay carte xaalis. am ñoo xam ne bu ñuy julli ñu nga sa baar ak yu ñu demee ne wa anis salaati ak jaamu yàlla julli bu jotee daf leen koy tere def kon fa hal antum muntahun bés ni ki tey nag na dakk bu ko kenn naanati kon ñetti atab yi lañ araamale araamale sàngara mm. nee nañ keroog bi biñ araamalee sàngara am na ñoom dañ tey woon seen kaax di guux bi aaya bi wàccee noonu lañ ko tuuree pour wax la booy seex yàlla aaya ñëw rek bàyyi ñoom dañ koy woon seen kaas di naan bii aaya bi wàccee noonu lañ ko tuure ah, foofu moo tax ma indi exemple bële na na na arrêté mhm. am ñoo xam ne dañu amoon ay stock yi sàngara seen biir kër mhm. dañ ko doon génn di ko tuur barigo yi mhm. am ñoo xamante dañ si amoon ay bouteilles dañ ko génne di ko am ñoo xam ne dañ demoon jëndi biñ ko déggee lañ dëppaat donc aaya bu dabee jullit rek li ko war mooy mu conforme wu ak aaya boobu automatiquement kon boo yoree euh, yàqu boo xamante ni di seeñu yàpp boo xam ne l'islam nangu ko ñu ne ah, ah lii kat nangam la. arrêté te nga am leneen booba bàyyi ko fa. nga xamante ni lan sa jot a lekk nag. Mhm. afallahu ah, amul salaf yàlla la li weesu. macha allah waaw mi ngi noonu yàlla yàlla nag dafa bëri loolu euh, jàng nañ ko ci yéen macha allah. Oustaz mhm. euh, ci tontu yu am solo yooyu le mhm. euh, bu leen fàtte ndimbal yi ba léegi dañu koy séddale laataa ñuy tàmbalee guddi gi on va enchaîner ak sujet yu ñu leen préparé bokk na ci place su ñi nga xamee ni ñoo amee ab laago ci situation bon dama dëpp. dama dëpp ni nga ko ni nga ko bindee <laughs> euh, place des personnes en situation de handicap. waaw euh, dans la riposte contre le Covid 19. dëgg la Baye Cheikh euh, may nuyu ay du ay du net bu baax a baax Dada Dayman jot na yóbbant bi waaye tamit ci ndimbalu ñi nga xamante ni ñooy soppey ñi nga xamante ni ñooy soppey télévision Futur Média ñu daal di dem rek ay dëcaam. maamam la ñuy waxtaanee xam nga ni shérif la. waaw moo tax xam naa mu génnee Ellen eh, Thiam Ellen Ellen Deyman mu bokkal ma nga Angleterre. dëgg la nit ku baax nit ku baax. sa pañe ñëw na sama pañe ñëw na. man yónnee na ma barki démb. waaw nit ku baax ba pare pañe yu amul fenn lay defar nag macha allah. <laughs> di sargal bu baax waa kër eh, Cheikh na Cheikh sat bu wax xayaatu di wax ni rek lañ jëm seytaan yi ki nga xamante ni mooy eh, Aïssatou Cissé daal di dellu si waat mm. Covid 19 bi président Macky Sall euh, taxawal ci réew mi pour jàppale euh, couche vulnérable yi nga xam ne ñoom ñoo gën a impacté tey euh, ci pandémie bi déjà ministère de l'équité territoriale ñoom ñoo ko ñoo ko chapeauté mais dafay jaar ci loxo commandement territorial bi commandement bi ci gouverneur bi ba ci suuf ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy gérer te niñ koy gérer dañu basé wu ci registre national unique bi ba pare euh, bu ñu demee gox bépp bépp gox bu ñu dem euh, pour euh, xool personnes yi koy soxla dañu déjà identifié xool ci liste bi personnes yoo xam ne ñu ngi ci gox bi te dañoo impacté ci kii bi pandémie bi nekk ñu ci registre bi ñu inscrire leen bu ma jëlee exemple Sicap Liberté Euh, sous-préfet mu ngi fa woon ak autorité Sicap Liberté de sorte que bu ñu ñëwee list bi ñu yore ñi ñoo xam ne nekk ñu ci liste bi dañu ñëw ak seen photocopie carte d'identité ñu ajouté leen muy personne handicapée muy personne euh, euh, vulnérable tout simplement nga xam ne tey liggéeyam sooxe na ndax ci mbas mi personne handicapée yu bëri ñu ngi may woo bi ma ne nee ñu ñun bokkuñu ci parce que amuñu carte égalité des chances wala ñun bokkuñu si parce que euh, nekkuñu si registre yooyu ma ne leen noonu seen gox bi ngeen dëkk ku nekk gox bu mu dëkk bu commission bi nekkee foofu da ngeen di dem jege gox bi ak seen papier carte d'identité nationale ba boo leen amee carte d'égalité des chances ngeen boole ko si ngeen dem ngeen inscrire nañu tey ñu xam ne ne euh, vraiment. Euh, président bàyyiwul kenn ginnaaw pandémie bi ñëpp la laal am na ñoo xam ne ñu ngi doon yelwaan ñu yelwaan parce que il faut ñu protéger leen aussi ma saluer sama yenn partenaires yi déjà euh, atelier 221 ak tuuti ak tuuti bu ma doon waxtaan ak moom ci suñu beaucoup de projet yoo xam ne dañ ko am en commun mu ne ma euh, am na financement uniforme et c'est pour faire des masques mu ne ma tu vas en donner mu ne ko mieux est-ce qu'on peut pas faire travailler les personnes handicapées mu ne ay surtout on va faire travailler les personnes handicapées euh, DER aussi da koy financer pour masque de sorte que loolu yëpp la ñuy mutualiser jox ko ay personnes yoo xam ne ñi ay handicapés lañ ñii dañ doon ñëw seen activité taxaw et on va profiter man je vais lui faire la proposition que ñu profiter si lancement bu la femme def euh, kii une femme un masque pour protéger la population parce que jigéen moom moo am prérogative vraiment euh, protection njaboot bi single bi artiste handicapé yi di def euh, di bi ñu def déglu naa ko vraiment c'est magnifique c'est magnifique il faut que euh, nit ñi di ko teg maison de presse yi di ko teg tout le temps parce que day wane seen jàmbaarte aussi par rapport ak lii Euh, ils ont montré que ñoom ay citoyens la ñu ce sont des citoyens comme les autres citoyens su yeneen rappeurs yeeg mbalaxmaan yeeg yooyu dafay seen euh, appui single ñoom tamit génne nañu et ils ont tapé fort parce que c'est un son magnifique je voudrais vraiment euh, lancer un appel aux personnes handicapées leur demander de continuer à parce que ñu respecter mesures barrières yi lañu dañ ko respecter nañ ko continuer respecter ba pare dans tout ce qu'ils sont en train de faire nañu préparer après Covid parce que ça risque d'être chaud. force. voilà donc Aïssatou euh, Cissé euh, bokk na ci ñi nga xam ne ni euh, ñooy conseiller président Macky Sall moom it nekk daanaka ambassadrice ci ñi nga xamante ni ñoo ngi dund laago mais am fulla lool doon jàmbaar. Mhm. ku ñu respecté la ci réew mi. dëgg la Baye Cheikh nekk na koo xamante ni ku am fulla la représenté nag li nga xamante ni moom la doon ndax bu ñu fàtte ni numéro ba la ñu génnoon dañu invité woon maam soxna di koo xamante ni mooy vice présidente ñuy dund ak handicap entrepreneur maanaam ñiy liggéey ñu doon posé wu nag question yu bëri par rapport ak Covid 19 bi nga xamante ne dal na ci suñu kaw Aïssatou Cissé nag mooy la personne bi nga xamante ne moom laa dem seeti pour mu répondre ci tontu mu tontu ci li nga xamante ne mooy ay question yu jaaxal ñu bëri euh, Pape Cheikh tey àdduna bi li nga xamante ne dañ ci war a bàyyi xel mooy booloo da mooy doole tey ji dund ak laago euh, du tax également bu luy amee nga dem toog dans ton petit coin daal ni non damay xaar ñu woo ma wala woo nañu diw man kenn woowuma yooyu yëpp dama bëgg gars yi ñu koy génne ci seen ci seen xel te xam ne tey ji euh, ñun ñëpp bu ñu booloo rek euh, maanaam li nga xamante ne moom la ñuy xeex muy Covid 19 bi danañ danañ ko danañ danañ ko am maanaam dinañ am victoire jëmale ko ci ñoom parce que ñoom nee naa leen ñoom ñoom ñoo gën a yelloo ndimbal bi rawatina ñi nga xamante yooyu dal ba pare euh, ñu daan liggéey liggéeyatuñu euh, tey ji euh, ki nga xamante ne mooy Aïssatou Cissé nee na riposte bi nga xamante ni maanaam riposte Covid 19 bi jàmmaarloo bi nga xamante ne dañuy jàmmaarloo ak moom ñiy dund ak handicap tey ji ku ci nekk jëluñu benn ndimbal jox ko benn association pour muy leer parce que ñu bëri dañoo defee ne dañoo jox ñi bàyyi ñii joxuñu ko kenn bu ñu demee ci quartier yi boo demee ci chef de quartier bi ñi nga xamante ne ñoom lañ ko jox mooy waa ministère de l'équité territoriale commande euh, waa euh, ci commande euh, commandement wu territorial bi gouverneur ak ki nga xamante ne mooy préfet ak ñi nga xamante ne ñooy chef de quartier yi ñu gox yi ñoo ñu ñoo yore liste yi liste bi bu dee ndimbali ñëw na ci sa quartier demal ci ñoom soo demee ci ñoom sa tur bu fa nekkee ñu jox la ci ndimbali bu fa sa tur nekkul dinañ ko bind loolu waxoon nañu ko waaye tamit économiquement parlant ay satu tey dem nañ ba am benn maanaam financement boo xamante ni waa une femme ñoo leen ko defal ànd ceeg atelier 221 tuuti ci ndimbalu tuuti. Bijou qui est en train de l'encourager d'ailleurs. Exactement. Euh, elle elle encourage Aïssatou depuis sànq am di jàmbaar la. et puis elle est adorable Bijou tuuti. dëgg la tuuti moom moo nangu nag euh, pour nag defar ay masques. joxe ko ministère de la femme dañ ne. benn jigéen bu nekk ak benn masque loolu la ñu lancé donc actuellement commencé nañ ko ñu leen di ñaanal bu baax a baax ñu am ci li nga xamante ne mooy ndam di mm. ay surtout di ko encouragé bu baax c'est pas facile beaucoup de questions nit ñaa ngi koy posé euh, di ko jaarale ci moom waaye itam di ko jaarale ci man wax naa la ko léegi euh, ku ci nekk yaa ngi xaar waaye ñu def ndànk rek te xam mm. ni réew mi ñun ñëpp a ko bokk te bi yoon amul xaaj seen mm. dangaa am laago amoo laago ndimbali yaa ko moom te dinañ leen ko jox incha allah ah oui Aïssatou euh, Aïssatou aussi écrit écrivain wala hmm. écrivaine. bien sûr euh, def na ay livres yu bëri. yu bëri euh, nous tellement. Euh, ci njàmbarteem. elle est très adorable. voilà ñëpp ko ñëpp ko fonk boo ko gisee da nga koy bëgg. et je pense que icône la pour ñi nga xamante ne ñooy dund laago. parce que suñu borom moom ak lu mu la mënti teg. Hmm. dalay dalay da lay da sama benn xarit daf ma daan wax ni. Hmm. yàlla bu la mayee li nga gën a bëgg. daf la ci tegal. di nga gën a bañ loo xamante ni voilà mooy loolu mooy mooy mooy nattu rek bàyyi cheikh ah. xam nga suñu borom subhaanahu wa taala dafa waxoon ne euh, alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku amanna wa euh, hum laa yuftanuun hmm. wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yaclamanna allaha alladina sadaqu wa la yaclamanna alkaadibin euh, yàlla dafa wax ne ndax nit ñi dañu jàpp ne dama leen wàccee si kaw suuf bàyyi leen rek ñuy dox seen ay yitte di dem di ñëw di dox comme bon leur semble mm. te duma leen teg ay nattu mm-hmm. te comme ni ma ko tege woon ñi nga xamante ni ñoom leen ñoom ñoo leen fi jiitu woon te dafa am la nga xamante ni xëy na sax ñun ñoo koy tuddee waxin si waxin laago mais comme li ñuy wax laago si xel la laago si xel la ndax boo demee si am na benn scientifique bu mag ba nga xamante je pense que anglais la woon tur bi laa moo ma rëcc faatu na si fauteuil roulant la doon toog te li mu doon wax si xam kenn doonu ko nattable kon yëf yi nekkul si li nga xam ne moom moo di moom moo di yaram yonte yàlla Moussa alayhi salaam yonante la yàlla daf ko yónni woon waaye am na cëram ba nga xamante ni na mu waroon mel melu ko mm-hmm. woon mm-hmm. muy làmmeñam moo tax yàlla ba mu koy yónni mu ne ko boole si sama frère bii Haaruna fa arsil ma'iya axi Haarun ab ah, boole maag sama frère bii Haarun ñu ne ko lu tax mu ne yàlla af huwa afsahu minni lisaanan moom moo ma gën a setle làmmeñ kon te yonante la woon yàlla ne ko kon ñaan yëpp mën ngeen dem wax ak Firawna kon loolu li ñu siy déggee mooy suñu borom subhaanahu wa taala ak koo mën a doon mënoo fexe fexe fexe ba yow toujours ni nga ko bëggee muy demee noonu mais moom ni mu ko bëggee noonu lay demee ñi nga xamante ni rek suñu borom subhaanahu wa taala xëy na daf leen teg ay nattu nañu xam ne ay doomu aadama lañ amul dara dara la nga xamante ni doomu aadama mën na ko am mu mu mu mu jomb leen li may faral di wax yàlla bi mu ñuy wàccee si àdduna bi nag waxul woon problème du am mais dafa waxoon ne dinaa jàpp si combat bi ba na mu waroon mettee du ko xëy na du ko du ko méttee kon ku mel noonu dañ ko war félicité féliciter encourager ko ak ñi mel ni moom itam ñu góor góorgóorlu ñu xam ne suñu borom subhanahu wa taala wax naa ko fi démb dinaa ko répéter tey ñun ñëpp laa wax mm. ñu jàppee ay personnes yi nga xamante ni dañu mat si waxin mm. am na loo xam ne mu ngi ñuy dàq mu ngi suñu gannaaw te tôt ou tard daf ñuy jàpp muy télé télé waaw yàlla moo ko wax. kuli àll ala kuli àll. waaw yàlla nee na. ñëpp dinañ fa àgg. waman mu amirhu. nu makkisu fil xalqi afalaa yaqilun wala afalaa taqilun ñaari baax na si suuratu yaasin yàlla nee na képp ka nga xamante ni may naa la gudd fan. wala àdduna bi mu ngi si kanam ngay dund rek. du jaas tôt dina am lu ma la joxoon danaa ko rocci. danaa ko nangu am ñoo xam ne tey jii nii à bas âge doon gis. dem ba si biir yàlla rot ci seen gis ah, ah, am na ñoo xam ne doon dox mm-hmm. yàlla téye seen ay tànk damay jël exemple Zipra rek mm. Zipra mi nga xamante ne daf ko dab mm. actuellement ci loolu sax laa ñëwee ni génn nañ benn single collectif mm. woykat yi nga xamante ne di dund ak laago yépp dañu génn fi mu ne benn son boo xamante ni euh, dañ koy teg nañ ko vidéo bi la ñuy xaar pour présenter ko nit ñi ci télévision juste pour terminer pour euh, exemple bi nga jël mm-hmm. ku ñuy wax Abdullah ibnu Umm Maktoum doon ànd ak Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu silma xala woon xam nga lu silma xala woon pour wax la yàlla daf leen jox cër bu rëy dafa am bés yahudi wala yéefari ñëw seeta Seyduna Muhammad ah, am xel di am di am ay di ay kilifa ñëw di wax ñëw di wax ak yonente sallallahu alayhi wa sallam bëgg leen convaincre pour ñu dugg si diine Abdullah ibn Umm Maktum jóge ba këram ñëw di laajte si mbiru diineem sallallahu mel ni ku ko xaw a fenatal nañ ma jéggal si kàddu gi ngir bëgg na kilifa yi dugg si diine ji Abdullah ibnu Umm Maktum am lu ko naqari daal ndax nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam concentré wu si ñële mm. te xawu ko bàyyi xel mm. nañ ma jéggal mm. mu albatiku di ñibbi yàlla na ko abasa wa tawalla an jaahu al ama wa maa yudrika laallahu yazakka aw yazakkaru fa tanaahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa maa alayka allaa yazakka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yaxsha fa anta lahu tasadda ba ma rek naka kallaa innaha tadkira yaa ngi dégg ne kon lii rek c'est un rappel am na ku ñëw si yow di silmaxa maa wàññi ay bëtam mhm. ngir mu xam diineem mhm. bi mu ñëwee am na noo doxale mhm. rafetul fas nga sa kanam am na noo doxale ba moom dëpp na mu ngay ñibbi mm. bu yeggee këram rek ah boo moytuwul dina am mbir mu xew dama sallallahu alayhi wasallam woo ko ne ko kaay xam nga nu ma ko doon woowee ana sama xarit bi nga xamante ni moo tax yàlla yedd ma macha allah waaw kon ñooñu jaru ñu xeeb ñu jara fonk lañ ñu jara jara cër lañ mhm. waaye itam surtout ñu jara bàyyi xel lañ bàyyi Franklin Roosevelt mhm. nekkoon président aux États-Unis handicapé la woon mhm, euh, scientifique bi ngay wax léegi nii je pense qu'on a on a même sa euh, euh, ngi wax ni mom Euh, jël nga exemple léegi ci moom je pense qu'il s'appelle Hawking Stephen Hawking on a mis photo si possible on euh, moom tamit borom xam-xam borom xam-xam la non maara day taali tukkal ah, ak amul lu ñu doon def si wàllu ah science ah. te toujours ay waxam dafa nekk la dañ ko doon jël mm. en considération buñ la génneloon photo bi léegi nga gis ni mu meloon mm. li nga xamante ni ndekete yëf si xel la te xëy na du wax sax si kàddu nit di ko dégg mais lépp il travaille avec sa machine et ses appareils di génne xam-xam ba nga xamante ni mu ngi si xelam donte la yàlla téye ne làmmiñam donte la yàlla téye ne tànkam donte la am na lu ko suñu borom subhanahu wa binde mais am na lu mu def si xelam mooy que ne mën na jëriñ boppam mën na jëriñ réewam mën na jëriñ toute l'humanité ba lépp la nga xamante ni njëriñ la mm. daf ko doon génne di ko partager ak nit ñi c'est très important voilà euh, am solo boobu lay bu leen fàtte euh, voilà il est là merci Euh, mais tonton mag bi muy ñëw fekk na ñuy dem ci coro euh, pour euh, waxtaan ci leneen lu dul lii nga ñu proposé mais amul benn problème de façon man sax damaa jum man itam daanu naa dafa fekkoon ñu waroon dem ci Mado doog a bifurqué ci Coro voilà donc on passe Mado pour parler de beignets e de jaaykatu beignets ah des beignets et de jaaykatu beignets am na ñoo xamante ni peut-être li ñuy jaay ça fait rigoler par exemple quand je vois euh, suba gi su ma ki kii jaay ndékki euh, ñoom ndambeek omelette ñëpp wër ko man nit ñi waroon nañoo toog seen kër waaye man li may bëgg ñu toog seen kër yëpp sama xel bi yëpp day nekk ci ndambe gi Euh, mais euh, yàlla baax na alors organisation des vendeuses de beignets. Mhm. en cette période de pandémie naka lay demee beignet bi. oui Baye Cheikh euh, xam nga loolu dafa am solo parce que gis nañ ni boobu ba léegi. bi koor gi jotee nit yi de soit dañuy jënd mburu waaye am na ñenn ñoo xamante ne. bañe nañ ci taamu bañe ngi am ba tey. donc bañe mi ngi am ba tey. am na ñenn ñoo ñu ay bañe dugub. en période de koor mais si si ak bëgg bañe parce que léegi li ko waral kenn génnatul ci mbedd bi di jaay. foo maaw dañuy ànd sax bu seere foo jëm mu moo bëgg beñe bi ñuy wis waaye nu nga bëggee beñe asal moo ñuy andil par matin yeewu leen doo ko gis sax ñun fële maquillage yeewu leen fa lañ koy nekk ba mu non ci beñe yow day fekk fii muy jaar Mao daa bëgg beñe tonton mag la moom moom beñe lay dunde la fi yow donc jaaykatu beñe yi dañuy changer trop maanaam changer li nga xamante ne moo ba cher parce que comme ni ñu ko waxee gis nañu que bi Covid bi amee ku ci nekk na doon doxalee changer nga ko tere nañ jaayum beñe bi ci mbedd bi ñii nga xamante ne dañu doon jaay pan gis nga ni ñoom tamit changer nañ li nga xamante xamante ne moom moo di seen doxalin di defloo kër nit yi di jëfandikoo li nga xamante ne moom moo di gel yeeg yooyu maanaam norme yi ñuy wax joxe pour nit yi respecter ko pour ñu mën a euh, bañ a propagation wu euh, Covid 19 bi de ce fait ñu dem seeti kenn koo xamante ne moom tamit dafa siiw ci jaayam bañ a ñëpp dañ ko xam mu doon drainer monde bu bare donc ñu dem ne xool moom itam ak Covid bi naka lay doxalee est-ce que jaayam mi ngi dem wala demeewul noonu ñu dem xool yi élément bi ñëwaat Baye Cheikh sama loxo mu set ma def benn alcool ba pare a ma jël gel bi def sama loxo ma ñëw def sama masque su ma ñëwee balaa may dugg fii damay njëkk raxasu ba pare ba ma kii ma fomp sama loxo ma daal di dugg ci fii jënd waaw ma xol dundu mel ni say làmp leeral sama ru euh, sooy jaay vraiment nga jël sa matukaay yi nga xam ni moom yëpp mat na surtout tous les plans fii kiy beñe bokkul ak ki nga xam ni mooy jaay bokkul ak ki nga xam ni mooy taxaw di encaisser parce que kiy jaay moom loxoom ñaari loxoom yëpp dafa war a set sell day jël def ci beñe jox borom te kii ñëw ci loxo yi set lay ñëwee ndax day raxasu ki nga xam ne mooy beñe moom mu ngi à l'écart sol maskam donc bu toogee mu ngi beñe beñam tranquille ki nga xam ne mooy encaissé aussi day sol maskam di jël di delloo musuma liggéeyee ak loxo ñun gant la ñuy liggéeye gant en vinyle mu ngi nii moom la ñuy liggéeye ñuy xooyal ci kaw moom la ñuy defare ñi nga xam ni ñooy toog di saaf moom la ñuy saafe parce que en général bu yàgg ba boo daan beñe da ngay dugal sa loxo ci ndox di kii pour bañ a coller gants yi boo koy bañee du coller set dafa am solo omo ngi fi javel a ngi fi gant a ngi fi serpillère a ngi fi ndox a ngi fi soo jëlee sa matukaay yépp def li nga war a def beñe bii ngay jaay bul ko def ci journal kayit yu bees yaa ngi fi set na nga jël ko def ko ci say kayit def ko ci say sachet yu wóor jox ko nit ki bu loolu amee rek jàmm. voilà donc beignet on peut dire que c'est un plan euh, bu fekkee amuloo mburu mën nga dem jëndi beignet et puis mhm. beignet dafa bëri façon mhm. et puis ay jigéenu jàmbaar ñoo koy jaay ay jigéenu jàmbaar ñoo koy jaay mais Baye Cheikh xam nga ni ku ne beignet xam ne que d'habitude ak loxo nga koy defee te saa su ne dañuy wax nag lépp loo xamante ne moom moo di virus bi parfois dina nekk ci loxo pour euh, walla euh, pour mu gaaw a wàlle gémmiñ aussi dañ koy faral di utiliser booy def li nga xamante ne moom moo di beignet boobu parce que da ngay ñam de ce fait ñu ne xaaral ñu dem seet ñi nga xamante ne dañuy jaay parce que la plupart dañuy drainer monde te wax nañ ni que dorénavant dañuy éviter lépp loo xamante ne ah, moom moo di ay mbiru dajale voilà jàkkatu beñe bi table dañ koy wër xam nga donc ce qui nit yi euh, ne moom moo di rassemblement de ce fait ñu demoon xooli ki nga xamante ne moom moo di euh, soxna Mariam Thioune moom itam mu woon ñu que euh, dafa changé bu baax li nga xamante moom moo di comportement yi la queue la première chose dañu def ay ligne de barrière yoo xamante un mètre nit yi ko war a respecter mais balaa ngay dugg sax donte yow jóge nga sa kër jël sa matuwaay donc dafay exiger nit ki raxas loxoom parce que ci bunt bi def na fa lépp loo xamante ne mooy jumtukaay pour raxasu bu ci jógee aussi sa masque tu es obligatoire nga takk ko xaar léegi nag li ci gën mooy boo leen toppantee wala ngeen tase fa da ngeen di def seen distanciation da ngeen di ko watandiku waaye aussi di bàyyi xel ki nga xamante ne moom mooy encaissé xaalis bi ak ki nga xamante ne moom mooy jaay ak kiy defar bañe bi ku ci nekk dañuy am distance boo xamante ne da ngay séparé wu leneen loo xamante ne ñi ngi koy wax aussi ñu gis ko ci c'est très important comme waxoon naa leen ni beñe ku koy def da nga koy dank ak sa ne c'est des gants en vinyle nga xamante ne non seulement du collé te boo ci peree da koy jël sànni ko ci poubelle bi de ki de ce fait yow doo indi euh, benn problème ah. leneen li ci am ku xam beñe aussi da koy def ci li nga xamante ne moom moo di këyit ñu bare dañu faral di jënd ay xeetu journal ci nañuy def li nga xamante ne moom moo di beñe yi la te d'habitude y a beaucoup de mains qui touchent ça donc on sait virus bi mun na kolewu ci li nga xamante ne moom moo di këyit yooyu nga jël beñe bi def ko ki ko lekk tamit mun na ko indil problème de ce am na ñenn ñoo xamante ne dañ lay naan pour nga dem wuti de papiers yoo xamante ne c'est spécialement pour euh, beñe yooyu nga def ko ci de ce yow ki ko nar a jënd aussi du am benn problème amaat na leneen loo xamante ne dañ koy faral di utilisé mooy xeetu jus yi ñuy naan la plupart da gis nit yi nan nañuy def dañuy jël ay bouteilles yoo xamante ne jëfandikoo nañ ko ba pare ñu raxas ko éviter xeetu bouteille yooyu li ci gën am na ay xeetu bouteille yoo xamante ne dañ koy jaay centaine yi mun na la dikkee 12500 ce qui veut dire que 1200 wala 125 euh, sax donc nga am ci cent def ci sa ay jus tëjaat ko mu tëju hermétiquement nga xamante ne nit ki bu ko ñëwee jënd du am benn problème éviter këyitu euh, maçon yi ñuy faral aussi di ci jël di ci def beñe donc looloo taxoon ñu dem xooli soxna si nga xamante ne euh, loolu la def di lancé waale message ñeneen ñi nga xamante ne dañuy def comme comme moom liñ ci mën a jàngat mooy nit booy liggéey je pense que il faut nga tàmm di organiser wu organiser mooy c'est vrai que jaayu mbedd bi baax na mais li gën mooy nga nekk ci sa biir kër te lekk barkeel na barkeel boo xamante ne bu ko nit lekkee mu set mu sell donc je me dis que publicité bi dina gaaw autour da nga naan ah demal ci diw donc nit yi dinañ la fekk si fekk si la ñu wóolu la lekk loo xamante ne dina ànd ak euh, xel bu dal du ànd ak xel boo xamante ne day tey ba nga xamante ne ëllëg doo ñàkk sa client nga xamante xeetu jàngoro bi nga xamante ne moom moo di Covid donc di ñaan yàlla mu sàmmuñu et puis soxna yi ci yëngu daal ku ci nekk nañu gën a góorgóorlu changer habitude gën a defaraat seen bopp yokku yokku yokku yokku cet gi surtout c'est important voilà parce que euh, seen njaay yooyu quand même ay njaayu ndimbal njaboot la ah. waaye euh, jëfandikoo njaayu ndimbal njaboot leneen lu ko gën mm-hmm. euh, jamono dafa soppeeku nanu gën góorgóorlu ci euh, ceet ki ci ay dëgg la de coro yaa ngi ci beñe bi ba tey mais c'est vrai loxoo koy jàmb donc yow mi koy jàmb di ko defar di ko jaay mm-hmm. na nga fexe ba set mm-hmm. takk gant euh, yi ñuy toggee raxasu ak omo yooyu yëpp on sait jamais ba pare mado yi buñ ci jógee covid 19 bi day jeex mais su jeexee am na yoo xamante ne ñun buñ ko bàyyee ci parce que topp ko parce que am na yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy tere nii nii ci feebar bi mais su feebar bi jeexee aussi suñu ndimbal la effectivement ñun ñu koy utiliser di ko def mu metti ñu def ko mhm. ñu suñu kaaraange. je pense que bi pa dina yee bu baax askan bi je me rappelle ndeysaan bateau le Joola li mm. fi xewoon on en a mm. tellement parlé quelque euh, temps après les gens ont repris li nga xamante ni euh, mooy euh, voilà donc je pense que cette fois-ci baax na nit yi duggaat ci seen rukk manakan changer de comportement il est mm. grand temps parce que discipline loolu je pense que gën a jàngat ci lii discipline mm. changer comportement mm. ba pare gën jegewaat sunu borom très bien c'est important merci euh, Mado euh, gaaw leen euh, ñu ngi bëgg a dem nag ci parti bu am solo bi fas yéene waxtaane waat mag ñi Cheikh na Cheikh Sadbu ci ëttam la ñu fas yéene dugg bu ca kanamee tuuti ñu ngi waaj oustaz Pape Anne ngi doog a yegg si waxtaan wi dañ ko tàmbali Euh, bu ca kanamee tuuti mën nañ cee profité nag ci temps bi balaa ñuy dem ak Sophie euh, bay euh, proposer itam sujet bi Corombaar Ndiaye préparé mën nañu jël tuuti téléspectateur bu ko defee ñoom it ñu joxaat leen seen i wàll ci ndimbal yi nga xam ne ni ñoo ngi koy séddale ci 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 72 86 xaalis a ngi fi am nañu fi itam ay. Euh, pañe yoo xam ne ni def na dund euh, pour weer euh, donc bu téléspectateurs yi duggee rek maxu ñu jël leen en attendant ñu ñëw importance su communication crise en cette période de coronavirus mais d'abord ñu jël ki nekk ci ligne bi allo allo allo kooku allo amatul allo dégguñu ko bu baax euh, kii woote 88 euh, 628. Euh, allo 76 la Assane Gueye. yow dégguñu ko waa Assane Assane nga tudd. Assane yow xanaa xale nga. waaw. an sa pap. waaw. an sa papa. bon na mag ñi jël nañu bàyyi xale yi nii gis nga stratégie yi ngeen di def nii leen ci yii dañ koy maye rek di dugal ay xale pour am sama yërmande du ko jaar ko dugg di nga am wooteel wooteel wooteel wax ko man la man la asa doom Bachir sawa yooyu yëpp jaru ko bàyyi leen xale yi xale xale mag mag nu ko ne am place am na mag ñu dugg ñu dimbali leen ñu ñu ñu ñu joxe lii du concours du gañaay kii la rek maye on vous offre voilà ay enveloppe la yi <laughs> cent mille yi <laughs> ay paye yoo xamante ne non mais c'est vrai xale xale mag mag ah li daan fo góor ne te góor ne jigéen ne si jigéen ñaa mbay jëf ne déedéet nañ ko def papa ak yaay Eh, garaaw léegi yow Coro euh, balaa ñuy jëlaat beneen téléspectateur tu disais que wàcc nga lu jëm ci importance su communication en crise. Euh, communication de proximité. communication de proximité voilà. ça veut dire quoi communication de crise bi soxal na la. Ah. Euh, dinañ ci ñëw mais en attendant aujourd'hui on parle de la communication de proximité Pape ah, Cheikh. yaa ma bindal crise de. ah. damaa juum man la dara soxaluma fi mu ne nii yi may wax yëpp ci yéen laa ko bindee yaa laa ko jëlee dara intéressé ma. période de coronavirus. waaw ah man tamit communication de crise bi nekkoon sama xel. ayca kon waxal. kon yaa juum maa juum kay maa mais pour moom teel naa def nii balaa ba ko ci mboole ma. <laughs> dafa jël gàllankoor ku ko ramasse lay bañ wax na dëgg. xamul ni maa ngi ñëw ci moom mook ñaari copain ci ginnaaw beru de seen barket rek dugg na la ñuux ba mu jeex tàkk foofu seen tuñu. gémmi ñëw taxaw. maa ngi ñëw ci ñoom voilà euh, xam nga Pape euh, communication de proximité dafa am solo ci lu mel nii euh, parce que gox boo dem am na nit yu nga xamante ne mu néew ak mu bëri am na ñu leen di déglu y a des jeunes yoo xamante ni tey ni ma ko waxee woon sànq Oustaz Assane moo leen gën a mën a accroché que xëj na ministre bi ñuy gis ci télé bi wala Marie Xemes bu ñuy gis télé bi wala keneen adduna moo mel noonu am na tey benn Pape Cheikh xëj na tey il préfère déglu Diouf Sarr mu wax ko wala professeur Daouda Ndiaye parce que jàpp nañu ñooñu ñoo nekk sur le terrain mais am na xale yoo xamante ne ñooñu accroché wuñu leen loolu moo tax njëriñu ñi nekk ci ASC ñi bàjjanu gox yi euh, chef de quartier yi am solo ci jamono bu euh, mel ni euh, dañuy dem xooli élément bi daal di del siwaat actuellement ak multiplication cas communautaire yi je pense que état bi war na change tuuti la communication wàcc à la base bu ne base nag c'est par rapport ak euh, ak les ASC les bajenu gox au moins pour communication bi gën a gën a jaar yoon waaw c'est ça loolu taxoon nag pour pour ñu ñëw euh, wàcc ci terrain bi distribuer ay masques distribuer ay gel Euh, euh, population. rek am na ñoo xamante ne ñoo gën mun wax ak waa fa ñu dëkkee pour ñu dégg leen. Euh, bien sûr xam nga ñi tey ay ASC yu nga xamante ni xam nga ni période bi ci la équipe yi doon préparer pratiquement nawetaan bi donc ñoom tey seen ay doole dañ ko mobiliser pour wàcc ci mbedd bi wax ak ñi nga xam ne ñoom lañ mën waxal non seulement après distribution wu masque yi ak lépp lu jëm ci gel antiseptique ak yooyu parce que loolu lépp dafay participer ci communication leen di euh, topp ñun ñëpp xam nañ ne am na koñ boo euh, am na ci koñ yu bëri sa doom sax bu defee dara dañaa woowal tonton diw wala woowal tata diw donc yu voilà moo ci mën dara yu mel noonu la ñuy xëj na négligé mais dafay am solo euh, ci jamono bu mel nii tey bàjjanu gox yi ni koy waxee boobu ak léegi ils ont leur elles ont leur rôle à jouer dañu am rôle boo xamante ne moom la ñu a jouer ci ci li nga xam ne moom moo di xeex bi ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi ci koñ bi très dégourdi également ak ñi nga xamante ni xëj na euh, euh, li may wax chaque jour que euh, état c'est tout le monde ku nekk ci ñun tu as ton rôle à jouer surtout ci période de crise bi la nga tey dafay neex xale bi boo woo ko bu amee dara lu xew ci koñ bi nga mën ko ci dugal ba mu def ci li mu war a def lu mel nii itam bu amee dañu soxla ñooñu noonu donc tey bëri na gox yooyu dem ci dakaar ak ci biir réew mi euh, ñi nga xamante ni euh, ñoom la ñuy woowee peut-être les citoyens lambda ñoom ñooy gën a euh, takku ngir waxtaan ak xale yi nga xamante ne ñoom la ñu war a sensibiliser ci xeex bu mel nii dama koy wax am na loo xamante ne dafa dafa étatique wala dafa protocolaire de trop mën na bañ a xale bi nga xamante xamante ne il est inconscient mais tey ku nekk ci ñun euh, sa doom bu nekk wala sa rakk bu nekk wala sa jarbaat bu nekk dafa am pédagogie boo war am pour mun a wax ak moom am na ñoo xam ne ni ma ko waxee euh, tey xëj na Oustaz Assane ci biir jàngal leen alxuraan bi dina leen mun wax euh, man ci biir jox sama doom mu colorier wala mu def exercice am dinaa ko mun wax ba mu imprégné wu ci coronavirus bi aujourd'hui boo duggee ci kër gi elle di dit je te serre pas la main parce que y nekk ci ñun encore une proximité bi kenn waru ko euh, ñàkkal fayda parce que c'est tellement important euh, ba nga xamante ni ñun ci gox yi la ñu gën a mën a euh, waxtaanee xëj na que ci yeneen ni bërëb donc ku nekk ci ñun encore une fois dafa am rôle boo xamante ne moom nga war a jouer ci xeexu coronavirus surtout ci jamono boo xam ne tous les jours on se réveille li may naan ni que cas communautaires yi moom qu'on le veuille ou pas la communauté donc ku yaa war a taxaw ci xeex boobu jëm ci xeexu Euh, cas communautaire yi euh, ba nga xamante ne coronavirus xëj na ascension bi nga xamante ne euh, moom la nekk di jël dina mën a dellu ginnaaw tuuti parce que aujourd'hui réew bu mel ni Sénégal 1000 cas de coronavirus acquis teg xaju fi malheureusement parce que même su fekkee ni ci lim population bi xaw na bëri bu ñuy wax ci wàllu am-am wax ci wàllu koom wax ci wàllu plateau médical ñun mënuñu gérer euh, feebar bu mel ni coronavirus donc encore une fois on appelle tout le monde ci li nga xamante ne moom moo di euh, xeex bi ak ñëpp ñi nga xamante ne seen gox am nañ fa baat mu néew ak mu bëri parce que benn nit rek boo conscientiser conscientiser nga tout une chaine mm-hmm. parce que tey benn nit boobu ñaata nit la nekkal en contact tey da nga gis benn cas bu positif wàll euh, plus de trente personnes ñi ngi fàttaliku cas bi ñu njëkkoon am Touba à lui seul il a contaminé vingt six personnes donc kooku tey buñ ko conscientiser woon vingt six personnes yooyu doonoon nañ mucc euh, ci coronavirus donc bu kenn xeeb benn nit bi nga xamante ni tey moom ngay sensibiliser euh, ba mu mun a mucc ci feebar bi. voilà moo tax euh, am leader d'opinion am porteur de voix. Oh. voilà xam nga ñun d'habitude dañuy wax ay porteur de voix mais du sax porteur de voix porteur de voix moom mooy mooy kii wut ay voix pour ki ñuy woteel leader d'opinion mooy voilà. ki nga oh. xamante ni am na baat. te mën naa wax waxam am na fu mu mën àgg am na ci ay koñ nag yoo xam ne ni waxuma rek leader d'opinion mais dañ leen di déglu donc ñooñu itam seen taxawaay day am solo mm. euh, ci xeex li nga xamante ni moo jëm ci lawuk Covid 19 bi donc important suk euh, communication de proximité euh, jëm ci xeexuk coronavirus merci beaucoup Thioro pour ce mbokk yi minuit mooy doog a jot Oustaz Pape ñu ngi lay nuyu ndokkeel la joxati la sa wàccuwaay débrief nag li xew démb Euh, kenn euh, dootu ko euh, fàtte ñu ci ndokkeel sénégalais yëpp tey ñaan sunu xalif bi nga xamee ni bi 4 heures du matin jotee ci la dugg ñaanal Sénégal yëpp mu yàgg fi lool te ànd ko ku wér yaa Oustaz. jërëjëf El Hadj maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ñaanal la yow itam yal na yàlla yokk la dëgëral yàlla dooli la sàmm ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, di nuyu bu baax a baax euh, Oustaz Assane Seck di sunu xarak di sunu xarit di sunu soppe moom itam di borom xam-xam bu mag di ko ndokkeel moom itam nuyu sunu jigéen ñi euh, ñoom itam ndokkeel leen ñaanal leen yal yàlla gën leen a barkeel nuyu Mouhamed Ndiaye Ndiaye nu ngi koy nuyu alaaj Pape am nañu mbégte ñaanal la ñoom itam ndokkeel la ñun ñëpp yow la ñoo ndokkeel ndax am na ci loo xam ni mbaax moo koy jiite léegi colonel Malick fay mu ngi lay nuyu sa soppe la nee na ma euh, nit ku baax boo ne ko jàkk kanam gi rek day wane ni kii ku baax la waaw am na koo xam ne mi day mer kenn du ko def dara mais am na koo xam ne laaj pap mbaax gi na ci moom même boo amee lu ko naqari sax du feeñ loolu nag mbaax la waaye jikko ju tedd la moom la na Seydina Muhammad waxoon ni mbaax mooy rafet jikko al birru xusnul nee na mbaax mooy rafet jikko kon loolu euh, bu la ko nit ñi seedelee euh, sant yàlla la yal na yàlla la fa la cat di la ndokkeel bu baax a baax ndax sa émission la émission démb la xalif général des Tidiane si Babacar Sy Mouhamadul suur ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ca ngay euh, yëgee ni bi may door la ma waxoon ca moom nii boo ne ko jàkk da ngay tiit ndax dignité ga ak personnalité ga moom Serigne Babacar Mouhamadul suur waaye boo jaxasoo ak moom da koy bëgg ndax mbaax ga démb nag euh, mbaaxam nga dafa feeñ alaaj Pape démb donn gi mu donn Cheikh Seydil Hadji Malick donn ko Serigne Babacar Sy alhaaji Mansour Mouhamadul Habib Cheikh El Hadji Abdou Serigne Sidi Ahmed ba démb feeñ na donn gi mu donn Serigne Mansour borom daara ji sëriñ Cheikh Tidiane si Serigne Abdoul Aziz Al Amin loolu feeñ na démb euh, démb wan na wane ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp ndax bëgg Serigne bi Serigne bi bëggal la ko nag moo ko gën a neex alaaj Pape kon ñaanal xalifa bi yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér sëriñ Pape Malick Sy mu sëriñ Babacar Sy sëriñ Maodo Sy mu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh sunu sëriñ sëriñ Babacar Abdoul sëriñ Mansour Abdoul ak sunu sëriñ sépp yàlla bàyyi leen fi nu yàgg fi lool te wér alaaj Pape démb ak tey daal mboolem ëttu këri ji kenn ku ci ne mhm. am na loo yëg wallaahi waaw nga xool sëriñ bi fi muy daanelee moo mooy mhm. na di waxtaane mag ñi mhm. te am na ñu doon wax ni euh, bàyyi leen di waxtaanee mag ñi xeex la. Mm-hmm. fekk mag ñi xeexu wallaay xeexunu fekk waxtaanee mag ñi mbaax rek lañ ci jublu. mbaax rek la kenn ku ci nekk yëg sa cofeel ci góor yàlla bala yàlla booleel. Mm-hmm. ndax nit mënoo nekk murit nekk tiijaan nekk xaadir nekk laayeen nekk benn rek nga ciy ne mm-hmm. waaye nga fonk ñëpp. moom et puis oustaz baaxul. baaxul ñun rek ñoo ko tàmbali woon. après ñeneen fekk fekk fekk si ñu ci. kon ñooñu sax ñoo xaw indi. waaw du ci bopp xelu nit yi dul réfléchir. Mhm. ba ñu foog ni ay jaxasee tax. Mhm. ku ne di def. wallaahi xaw ma ndax dégg nga fi may waxee. dégg naa la ba dama ne. waaw bi ñuy créé quartier général bii. Mhm. bu weeru kon mosaan jot. ab animateur du toog ci télé wenn des heures. rek lañ ci daan gis. wallaahi matin ba soir. conférence émission religieuse. télévision Futur Média ya y a quatre ans. changé donne yi. fu deux h jotee mu jël animateur bi nga xamante ni en dehors de corps musique lay def. Mhm. ak ndaateel ak ndaataa talax. Mhm. ñu jël ma boole mag képp koo xamante ni yaa ngi ci tele bi di nekk ci domaine bu ne ñu changé donne yi. bu doon mhm. ñun kott ñoo ko def. kon xëj na dut du am. dëgg après toppandoo yu juddoog yooyu yëpp moo indi peut-être doute ci xelu ñenn ñi. Mhm. ba ñu jàpp ni ñun sax. Mhm. dañuy concurrence ak ñoom seen mais objectif yi du loolu. Mhm. intention yi du loolu. te defe naa démb feeñ na. à travers kaddu yi nga xamante ni moo jógee ci xalif général bi xaw ma ndax li ma wax comprendre. dégg naa la baax la dégg naa la baax. mooy yéene bu sell ba nga xam ni moo ko lal. voilà yéene bu sell boobu nag boo ca nekkee ak ku ñu tëkkale waaw yéene bu sell boobu alaaj Pape boo ca nekkee dëggal ko yéene la ñu nekk euh, résultat bi moom borom bi subhanahu wa taala moo koy joxe kon li ñuy ñaan rek mooy euh, xol bu laab ak xol bu yéene bu sell bi ñu am hmm. mooy bégal nit ñi kenn ku ci nekk fa nga hmm. toog hmm. ca ka nga bëgg ka nga sopp ñu gën a gën a fexe nga xam ko gën a fexe nga sopp ko gën a fexe nga xam nitu yàlla bi nga am ndax waxtaane nitu yàlla yi yërmande borom bi subhanahu wa taala moo tay wàcc kon ñaanal sunu mag ñalaaj pap yal na yàlla yokku leen allahumma euh, amin dëgëral mboolem xalif généraux yi di xel yi jaxasoo en yàlla bàyyi leen fi la yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi mm-hmm. lool te wér lool nag mm-hmm. waaw euh, dina ci ndokkeel bu baax a baax nag ndax boo ko tàmbali woon te it euh, na nga ko tàmbalee mm. tàmbali woo ko ci fulla mm. tàmbali woo personnalité mm. tàmbali woo ko ci li la yàlla defal ndax kenn ku mm-hmm. nekk la la yàlla defal mm-hmm. bokkul ak sa morom la ko yàlla defal mm-hmm. tàmbali woo ko ci ngëm-ngëm xol bu laab xëy na euh, fii mu àgg du fa àgg mais da nga koo li la yàlla defal tàmbali koo xol bu laab xol bu sell nga bëgg mag ñëpp waaw ñëpp na ñi sëriñ Fallou Mbacke mooy sa sëriñ waaye mboolem turux bu ñëw fii ci bi da ngay euh, da ngay sax jooy waaw kon yow ñi nga bëgg mooy nitu yàlla yi Muhammad bëgg borom bi subhanahu wa diaspora mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñooy asatise yi nga xam ne ñoo lay fekk si ñoom itam mm-hmm. ak sunu jigéen yi nga xam ne ñoom itam ay jàmbaar lanu mm-hmm. bis bu ne ña ngay daw di xooli luy jëriñ nit ñi ñu koy indi kon nu ngi leen di ñaanal ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yi Muhammad suñu maam cheikhul xadim radiallahu taala anhu waxoon ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju aw yaqulu laa ilaha illa allah mhm. nee na bu leen noonoo mukk ku ngeen mës a dégg wala ngeen dégg gémmañam baatu laa ilaha illa allah di si génn te Serigne Babacar Sy Mansour wax na ko démb li ñu boole lépp mooy kaddu laa ilaha illa allah maam Abdoul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu Baye Cheikh daan na ko wax nee na ñoo xamante ni ñoo bokk benn penku bokk benn yàlla bokk benn téere bokk benn alquran bokk benn pas amul dara la nga xamante ni moom moo leen wutale daf fekk ne suñu borom subhanahu wa moo bindee Sénégal defal ko jagle ba nga xamante ni defalu ko yeneen yeneen gox yi wala yeneen réew yi suñ ko sañee waxee noonu waaye ku si nekk wala gox bu nekk si réew mi suñu borom subhanahu wa taala wàccee na fa mag moo nga xamante ni mu yiw la mu sell la mu baax ngir ñu mën a taataan si moom li nga xamante moom moo di diiney lislaam ak alquran ak sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax boo gisee lislaam li koy taaral lépp mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag ñi nag teel a xam loolu teel ko décortiquer ñoom ñëpp ñu jël seen lépp jébbal ko sayduna muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk fii ñi nekk fii ñi nekk fii fu waay jàpp rek fa ngay jëmee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que moom mooy daj dëpp gi moom mooy objectivité ku si nekk si ñun ak mag ñi nga xamante ñoom ñoo sanc turuq yi oustaz Pape Hann wax léegi ñoom ñëpp seen mëbët lan la mooy ommat ñu wommat ñu ñun ñëpp teg ñu si doxal Seyduna Muhammad sallallahu rek moom moo leen si tax a jóg mm-hmm, mm-hmm. télévision Futurs Médias comme ni ko waxee ñëw innové mm. ndax boo xoolee euh, euh, li nga xam moo di euh, devise télévision Futur Média mooy le miroir du Sénégal mhm. ngir sénégalais bu seetaan télé bi gis sa bopp si mag ñi sénégalais bu seetaan mag mu ñu fi indi waxtaane ko waxtaane jaar-jaaram waxtaane ay jikkoom ak fii jamono toll ak àdduna bi ak réew mi nga mën a roy si mag ñooñu nga xamante ni seen yitte yëpp mooy woon baax seen yitte yëpp moom mooy jub seen yitte yëpp mooy fexe lépp la nga xamante ni gàkka-gàkka la wala tilim-tilim la wala la nga xamante ni xëy na day sooxel diiney doomu aadama bi ñu fexe ba bañ fóot ñu ci ba ñu set wecc mm-hmm. ndax ñoom ñëpp wax nañ ñu dégg wala ñu bind ba fi wala ñu bàyyi fi ñi nga xamante ni seen dono si seen si ñoom la ko borom bi subhanahu wa taala teg ndax dem démb message bi nekk na message ba nga xamante ni bu foor la kon niñ koy waxee rek sàmm yi réeréew ñu waaye jur gi ñoo fexoo loolu moom mooy lan njaboot gi ñoo war a xoolaat seen bopp wala ñenn si njaboot gi ñu jéggal ma suñ ko soñee waxee noonu ñenn si njaboot gi ñoo war a xam seen taxawaay waaye ñenn si njaboot gi itam ñoo war a xam lan moom moo tax suñu borom subhanahu wa taala wàccee fi mag ñooñu ndax loolu exception sénégalaise la amul fooy dem si àdduna fekk fa li nga xamante ni moom moo am Sénégal boo ñëwee Yoff fekk fa Seydina Limaamu nga dem Touba fekk fa maam Cheikhul Khadim Tiwaawan Cheikh Seydil Hadji Malick nga dem Ñaseen fekk fa maam Ibrahim Ñas alkawlaxi radiallahu taala anhu borom fayda bi ki ñuy waxtaane léegi Cheikh Saadu Abihi di sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa xayartu kon ñun dañu am la nga xamante ni valeur la dañu am la nga xamante ni trésor la dañu am la nga xamante ni dañ ko war a fonk richesse la mm-hmm. ndax richesse bi ñu am Baye Cheikh moo gën pétrole moo gën or moo gën jamaa moo gën li ñut di wët mooy li oustaz Pape Hann wax mm-hmm. mooy mag ñi fexeel nañ ñu mm-hmm. ba def ñu wala bëgg nañ ñu nekk ñun mm-hmm. ay nitu jom ay nitu diine ay nitu valeur te la waykat ba arab waxoon foofu lay daanale dina woon innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu askan wu baax bu yiw bu sell buñ koy xool ay valeur ñoo tax buñ demee ba valeur yooyu amatu fa ndëkk askan wa moom daanaka ay garab la yoo xam ne amatul xob wala amatul ren dara desatu macha allah daañu dem Nimzaat bu bu bu ca bu ca bu ca kanamee euh, mais di xalaat ku mel ni euh, Père Abdou Aziz Mbaye euh, Abdou Aziz Mam Fama Oustaz moom xam naa xelam yëpp mu ngi woon ci jotaay bi démb càmmiñal ajot ndaak mbay moom maam Seyni démb Père Abdou Aziz Mbaye bég na mm-hmm. ndax taxawaay bi ak mm. euh, euh, diggante ak njabootu Sidi Hadj mm. euh, donc moom ñu ko ci ndokkeel ndax xam naa ni fa mu nekk xolom sedd na lool moom Abdou Aziz Mam Fama di ko mm. ndokkeel di ndokkeel njabootam te xam ni jotaay bi démb bég na ba ñun fii ñu ne ñu yëg ko donc ba tax mënuñu ko baña a ndokkeel démb gar mi dafa dafa dafa daanu ba ni sang bi ak téléphone bu tedd bi <laughs> Eh, sëriñ bi téléphone am dafa tedd ndeysaan ah, ci ci ci ci ci internet xër rek xër rek kay te loolu dara newu si wala dara nekku ci nit ku tedd lu mu laal day tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oustaz dama lay wax benn affaire maa ngi wax ngeen koy reetaan gis nga teenee dafa jafe xale yi football ci terrain leen dee seetaan mu yen refaay ñu ne waaye waroon defee nii la ko waroon defee ah, voilà ku wala ku ci wax dara jëwal toog fii ba xalifu wala nga xool sallallahu nit am na fu muy toll <laughs> man paalu laa yóbbaale sallallahu alayhi wa defe nit am na fu muy toll bu xoolee moom dootu moom yàlla mm-hmm. moo xool mm-hmm. bu waxee mm-hmm. yàlla moo wax bu dégloo yàlla moo déglu bu doxee yàlla moo dox lu mu laal suñu borom la subhaanahu wa taala yàlla la neex te fa tabaarakallaahu suñu mag ñi toll nañ foofu kon ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér lak ndax nit ku tedd moom lu mu laal mu tedd ku tedd lu mu laal mu tedd kon bu waxee téléphone am bu tedd bi wallaay wax na dëgg jógul oustaz Pape Hann tey ñu fas yéene dem Nimzaat Nimzaat fu ñu jëm tey. jërëjëf alaaj Pape tey jii ñu ngi seeti seex na seex Saad bu wa xayartu tey jii ñu ngi war a seeti njabootu seex na seex Saad bu bun Mouhamad Fadal Maamin taalibul xayaar bun jili Muxtaar tey jii ñu ngi war a seeti. Seydina sëtu Seydina boobu le ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni wax ñu ko ñun jullit ne bàyyi naa leen ak ñaar rikk bu leen ko sànq taraktum fiikum am rey mi lan tadillu ma tamasaktu bihima kitaaballahi wa itrati am ñu wax ni dañuy kitaaballahi wa sunnati waaye kitaaballahi wa itrati bàyyi leen nag téere borom bi subhanahu wa taala nga xam ne lépp nga ca ak sama njaboot ñoom la Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu anhu waxoon ni ñoom waa kër Seydina Muhammad nañu leen fonk ala nabi ihtarimu xurmatahum wa azimu aradahum wa sallimu lil mustafa jaddihimi alaj Cheikh El Hadj Abdou dani ala nabi yéen waa kër Seydina Muhammad yéen ñi nga xam ne yéenay deret rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam mu artunu ñun mu ni ixtarimu nañu leen xormaal mm-hmm. ñu leen xormaal ala nabi ixtarimu xormatuhum wa azimu mu ni mm-hmm. seen xorma nañu ko màggal araaduhum wa sallimu mm-hmm. mu ni sëtu Seydina Muhammad yi seeni der nañu ko muccal nañuy wax ci ñoom lu baax di defanteeg ñoom yu baax nekk ñoom ci lu baax ñu ni waaw góor gi ñu màggal leen ñoom waa kër Sidina Muhammad ñu xormaal leen ñoom waa kër Rasulullah seen i der ñu ciy wax lu baax ñoom waa kër Rasulullah lu waral loolu mu ni ndax lil Mustafa jëddi ci mi Sidina Muhammad ay seen maam ki nga xam ne bu nekkuloon nag moom dara du am te mag ñey wax ni ci rey njaboot boo ca bëggee da nga naan doom ja yaa mooy ku ne bëgg na yàlla bëgg la yàlla nay Seydina Muhammad waxal sa gaañu ni bu nu bëggee man yàlla ma bëgg leen nañu la bëgg topp la yow rasulullahi te bëgg njabootu Seydina Muhammad nag mooy bëgg rasulullahi alaaji Pape tey jii nu ngi war a dem Nimzaat tey jii nu ngi war a ñëw fii ci réew mi ndax kat ah senegal li nu am ci Seexna Seex Saad bu hmm. senegal fi nu àgg Seexna Seex Saad bu hmm. boo wëree àdduna bi boo demee Mauritanie boo demee ni mu Nimzaat gi mu tëdd. foo mën a dem ñoom sura faa yi xam nañu ni bu wér ne seex na seex saat bu li mu jànkoon li mu li mu li mu defar fii ci réew mi alaji Pape seex na seex saat bu li mu am fii ci Sénégal bari na réew yoo xam ne amu fa kon tey jii euh, ñu ngi war a waxtaanee góor yàlla booba tey nag lañu ñu war a xam martabaam kan moo war a ñëw alaji Pape Mouhamed Seck. waxtaan wi daan ci ànd ak Serigne Mouhamed Seck. Serigne Mouhamed Seck. baayam moom bi muy gën a àddina baayam a ngi tàgg Rasulullah. Ah, waaw waaw. moom doomi doomi leer la ndax kuy sa baay nga ni Cheikh Baye Seck kuy kooku mu Cheikh Abdoul Aziz Aydara mm-hmm. Cheikh baay Seck nga xam ne dundam yëpp da koo seeyal kër seex na Cheikh Saad bu moo meññi jëmmu ji tedd ji moom nag olof fay wax ne doom bu nduróo baayam doon xaritu bàjjanam mag ñi wax ni magum waxkat bu amee doom ju góor mu luu yaakaaram tas ñu ni addam mu dasaasa deret dafay rogalaat nga toog la nga daan wax ak di ko taxawu nga am doom ju koy wax di ko taxawu mbégte ëppul loolu Mouhamed Seck di jàmbaar mhm. borom xam-xam la mhm. jàng fa mu war a jàngee mhm. bari xam-xam macha allah allahuma la adduru yàlla ba lor jóge ci sama gémmiñ ñëw ci yow yàlla na yàlla barkeel la amin waaye mu am xam-xam ba noppi am yar lool ba noppi di intellectuel bari xam-xam nangoo jàng nangoo gëstu tey kooku kilifa yi tànn. Mhm. pour mu ñëw waxtaanee Cheikh na Cheikh Saad Bou. xeertu ànd ak sëñ Modou Mbuub. Cheikh Modou. Cheikh nga xam ni moom ambassadeur la. ci tariqatu xaadiriya. Cheikh Modou Mbuub. boo nee Cheikh Modou Mbuub mu Cheikh Dee Calo Seck mhm. daañu gën a xam kan mooy Cheikh Dee Calo nga xam ni Cheikh na Cheikh Saat boo ko defar mhm. moom nag moo war a bégal nit ñi mhm. alaaji Pape bu ñu tàmbalee ba ma joxee digal ñu war a tàmbali Mouhamed bu nuyoo ba noppi ñeenti question rek laa koy laaj tey kese kese kese Cheikh Saat bu kese kese waaw ñeent kese ñeent rek laa koy laaj kon jeena waaw ba ci kanam ñu fekkaat la foofu incha allah euh, bu ko defee ñu tàmbali guddi gi nga xamee ni moom la ñuy jagleel euh, Cheikh na Cheikh Saat bu wa xayartu yàll na euh, sunu borom fayal ñu mag ñi du ñu doyal ci di ko wax mag ñi rek la am yàlla na suñu borom fayal ñu leen yéen ñu ngi leen di xaar xam naa ni ku ci ne euh, waajoon nga yàkkamti woon nga ñu waxtaanee euh, Cheikh na Cheikh bu daañu dem Nimzaat xalif baa nga fa sunu shérif yaa nga fa dinañ dinañu jokkoo ak ñoom bu ko defee ñu doog tàmbali euh, waxtaan bi euh, di xalaat euh, Cheikh Ousmane Diagne ak njabootam di xalaat njabootu shérif yëpp nga xam ni fi mu toll tembe ñoom ñëpp dékk nañu seen i nopp fas yéene àndandoo ak ñun ci guddi gi shérif jouet na ay dara moom it sunu wayjur la xam naa dañ ko fekk Nimzaat loolu mënul ñàkk ala àll shérif Alwali Njaay mi nga ni waykat baa ni ko woon yow la ñuy Euh, di euh, xalaat shérif yëpp ku lim juum mais daal euh, tey Cheikh na Cheikh Saad bu rek la ñu jagleel bis bi di xalaat ku mel ni maam Sira Konaté corps commissaire Euh, euh, moom mooy madam càndum maam maam Thiandoum takk nañu ko. Euh, moom ku ne xam ne digganteem ak Cheikh na Cheikh Sadbu xam naa ni tey xolam dina sedd. di xalaat Chérif Mamin Aydara. moom it xam naa mu ngi toog di xaar ak ki xamante ni moo di Chérif Baxayda moom it sunub sang la mu ngi toog di xaar tey daal li ëpp ci jotaay bi. Euh, dina ñu euh, nekk diggante Ngourane ak fi nga xam ne ni euh, moo di Nimzat ci télévision Futur Média xanaa profito ci rek laata ñuy dem ci publicité yi gërëmaat Kati création ak borom këram ci jàppandalam toilette yu rafet yi ngeen di gis fan yëpp ci ay ñetti xob moom la bërki démb laxasaay démb bëla bi euh, baxa xam nga mooy bëla baxa lever de soleil yooyu euh, lever de waaw waaw waaw <laughs> waaw naaj buy doog yeewu rek yeewu <laughs> lañ ko ci démb lever de soleil laa def uh-huh. ah, tey ma def tey ma def euh, ma def blancheur de paix waaw ci barkeb Cheikh na Cheikh Sadbou yooyu yëpp bu ngeen ko bëggee mën ngeen dem kati création wala ngeen woo ko ndax toog leen seen kër la ñu wax donc da ngeen di woote commande rek yónnee ko mesure wala mesurer leen livraison de voilà livraison de mesure léegi moom la tailleur yi xewal euh, kat yi kat yi moom rapidos la yónni rek ñu mesurer la mu defal le ci laxasaay yeeg ñetti xob yu rafet yi 77 631 52 52 donc kat yi merci mm. euh, pour cette belle collaboration ainsi que tous les créateurs qui accompagnent animateurs yeeg journalistes euh, yu génn ci quartier général en même temps bu leen fàtte Euh, dañuy joxe ay cent mille cent mille euh, ndimbal yi dund yi lépp rek ci quartier général numéro téléphone yaa ngi noonu bu ngeen ci woote jot ñu en direct en attendant Sophie euh, la ñuy fekk fanu nu ko ber jamono neexul moo tax ñu ber ko te waañ dafa xaw a sensible laboratoire kër la donc Sophie rek fa ne respecter di d'hygiène yëpp pour xëdd bi mu ñuy toggal Sophie ñu ngi lay nuyu.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 defal leen nag xëdd boo xamante ne nii di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër euh, tey nag bàyyi comme ni nga ko gisee dama andi nag li nga xam ne mooy macaroni o fromage blanc moom laa andi tey Baye Cheikh boo gisee sama table ji rek xam ne am naa fromage blanc bi nga xam ne waa ardo ñoo ñu ko andil am na ñu nag euh, émincé de bœuf am nañu persil coriandre oignon tomate poivron vert maïs doux am nañu sauce grenadine ak li nga xamante ne ni mooy sauce barbecue pour relever li nga xam ne mooy suñu goût euh, macaroni bi nga xamante ne ni mu ñoom it waa NMA ñoo ñu ko andil muy macaroni pastami bi moom laa nar la utiliser ci kanam bàyyi nag du ñu def nag lu dul rek jaajëf suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy accompagner fii ci suñu biir waañ waa NMA andil ñu pasta vermicelle pasta macaroni pasta mu xam sa spaghetti andil ñu tamit vermicelle grand format ak rôle coquillette bi nga xamante ne 3 kilos la moom la ñuy su suñu xew yi ak bu ñuy togg ay grande quantité ànd aussi waa Sénico la qualité garantie ñoom nag tamit ñu andi ñu chocolat délicat la délicieuse euh, margarine euh, bi nga xam ne mooy euh, jadida mooy beurre jadida bi nga xamante dem suñuy gâteau comme suñuy petit four ak mayonnaise jadida bi nga xamante ne mooy tout simplement le meilleur am aussi huile jadida bi nga xamante ni dañu ko enrichir ak vitamine A ñu defaree ko nag huile de soja ñu ànd aussi ak waa ardo ñoom boo nee laax caakri wala fondé rek sa xel day dem ci ardo ñu andil ñu format kilo pour suñuy tudd am nañu ardo riz au am nañu ardo nature ardo càkkri bu nekk ci sachet am nañu ardo càkkri aussi bu nekk ci pot ardo yaourt euh, pot bu ndaw bi am na mooy goût vanille bi am na aussi pot bu mag bi ak fromage blanc bi nga xamante ni tey moo nar a doon suñu base plat du jour ak macaroni pastami bi ñu nar a defar tey bâche euh, waa Kandia gis nga ni grand lait ñoom it ñu andil ñu meew boo xamante ne nii comme ni ñu koy waxee à chaque fois pendant nag mois de ramadan bi dafay laaj ñuy naan meew comme ça daf ñuy gën a fortifié déjà bii rek dafa riis en calcium ak euh, protéine déjà am na bu entier bi am na demi écrémé moom foo ko yóbbu rek euh, mu dem déjà nag li ñuy def rek ba Cheikh mooy ñëw rek commencer li nga xam ne mooy suñu préparation plat du jour tey. au fromage blanc bi nga xamante ne ni waa Ardo ñoo ñu ko andil déjà rek gis nga ni sànq wan nañ leen nu ñu ko defaree am na viande am na mais du oignon ak poivron bi ñu ko xam ni moom lañ ko tourné fi mu ne nii nag damay ñëw rek daal di defar benn assiette bu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 dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Euh, jotaay bile euh, ci euh, guddi gi ñu fas yéene waxtaanee Cheikhna Cheikh Sadbou bu ñu noppee ci ginnaaw xeertu ñu tàmbalee jokkook waa Nimzati laata ñuy xuus ci beneen studio bi et puis Cheikh Modou Euh, mooy euh, tàmbali ak euh, madda bu ndaw rek ak nuyoo lay doon laataa nag waxtaan wi ñu koy développé di xalaat nag njabootu Cheikh Modou Guèye saar yëpp ay taalibeem ca Sagata ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ñoom Babacar Niang ñoom Tuuti ah ñoom ñoom Ndey waa kër sunu yaay jateer a dem ajatu ñu ngi leen di xalaat bu baax foofee ca Sagata di xalaat itam waa New York yi di xalaat itam Euh, sunu sunu xarit suñu euh, jigéen su fi jaxate kor Pape Mbaye étincelle euh, sunu xarit yooyu yëpp ngi àndandoo ak ñun tey ci guddi gi ci télévision Futur Média xanaa profité ci rek fàttaliwaat leen ni ndimbal yaa ngi mën nañu leen ko baaxee à tout moment ci 88 628 22 22 am ngeen possibilité non seulement seetaan ñu ci télé bi muy lu normal te naturel mais am possibilité itam àndandoo ak ñun en direct Mamadou Ndiaye ci réseaux sociaux yi en aussi voilà ni nga ko waxee noonu la amee mën nañu euh, suivre ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter ak Instagram bu groupe Futur Média wala sunu plateforme yi nga xamante ni euh, groupe Futur Média teg na ko fi ngir euh, dara bañ leen rëcc ci li nga xamante ni mooy xew fii ci quartier général surtout tey bi nga xamante ne dañu fas yéene waxtaane Cheikh na Cheikh Sadbou mu wax xayaratu tey hashtag bi déjà commencé na QGTFM 2020 ak ci Twitter ci Facebook di mën nga def Facebook live def slash TFM wala Instagram euh, arobage GFM SN mën ngeen ñu suivre aussi ci YouTube ak euh, suñu plateforme yëpp Pape Cheikh ngir seen réaction ak seen question ngir ñu fas yéene ko partagé tey ci QG bi incha allah. mu ngoog donc loolu euh, euh, rappel la rek bu ñu leen doon euh, proposé pour sunu xaritu internet yi merci encore d'être fidèle ci programme yu télévision Futur Média donc tout le temps yéen a ngi àndandoo ak ñun ak fu ngeen mënti nekk ci programme bu exceptionnel bi damaa bëggoon nag Oustaz papan Anne Oustaz Assane ñu njëkk a jokkoo ak waa Nimzaat mu doon ubbite ñu doog a jox kàddu gi. Euh, euh, Cheikh Modou Mbuub euh, bay dem ci li nga xam ne ni mooy waxtaan wi tey ñu jagleel ko Cheikh na Cheikh bu wa minaa ay dara ñu ngi lay xalaat Minatu ay dara moom itam sët la fa mu nekk bég na te tàmbalee guñu donc jokkoo bi la ñuy organiser noonu ci ginnaaw ak ñoom Cissé Euh, boo ko defee ñu njëkkee euh, fi nga xam ne ni euh, mooy Nimzaat Oustaz. waaw suñu borom. yi mhm. pare fu fu fu amul dara du fa def dara. déedéet Pape suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk ka nga xamante ne ni lépp lu muy def rek hasard amu si lépp lu muy def daf ko programmé waaye itam allahu yajalu xaysu allahu yalamu xaysu yajalu risalata la yàlla waxoon si alquran nee man yàlla subhanahu wa maa xam kan laay confier sama mission maa xam kan laay jox ay cër maa xam kan laay dénk li nga xamante ni moom laa yore kon suñu borom subhanahu wa taala bu xoolee si ay mbindeefam ak ni mbindeef yi baree min ladun aadama ila yawmina hada boo jógee si maam aadama alayhi salaam ba suñu jonn yàlla tey jii ñi fi jaar ñëpp si ay mbindeef yàlla séddale cër yi xool ñi nga xamante ni si euh, wax ñoom ñoom ñoo ko soob ñi ko neex mu jël leen jox leen cër yi nga xamante ni moom moo ko soob loolu yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko def moom moo ko sañ waaye itam dafa am la nga xamante ne ni yàlla daf ko wax si alquran inna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim Baye Cheikh am na nangam il faut ma am ko Baye Cheikh mel na nangam il faut ma mel ko déedéet dépendrewul si yow si suñu borom subhanahu wa taala la dépendre dépendrewul si Baye Cheikh si suñu borom subhanahu wa taala la dépendre kon mag ñi li ñu am ak ni ñu mel tànneefu suñu borom lañ subhanahu wa taala mu jël la ko soob jox leen def leen ni nga xamante ni noonu la bëggee moom yàlla subhanahu wa taala ba tax tey ku leen gis bëgg leen ku leen gis sopp leen ku leen gis fonk leen ndax seen taxawaay ndax seen melokaan waaye itam ndax seen jikko ak valeur yi nga xamante ni làmboo nañ ko te yooyu yëpp jëlewuñu ko fenn rootewuñu ko fenn tibbewuñu ko fenn fu dul fenn muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam olof nag am na lu mu wax euh, doonu sa baay doon sa baay moo ko gën te saa su nekk ñu ngi lay dégg nga naan la sa maam sata koy jël kon ku ñuy waxtaane di cheikh saadu abihi wa xayartu di xafidun min ahfaadi rasuli sallallahu alayhi wa sallam wala sibtum min absati rasuli sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne sët la si sëti seydina muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam kon nañu jàpp ne tey quartier général daal waxtaane ñu kon ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku waxtaane moom nga waxtaane oustaz Pape Hann wax na ko léegi si li maam Dabbaax waxoon si njabootu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ leen war a fonk dañ leen war a wekk dañ leen war a bëgg dañ leen war a sàmm waaye itam warloonte ak ñoom li nga xamante ni moom moo di jox leen cër bi nga xamante ni moom la leen yàlla subhanahu wa taala jox ndax képp ku naan Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fi nekkoon su ma ko gisoon nii laay doxale ak moom te tam nekk fi doxale wax ak moom noonu kon yow li ngay wax du dëgg si yow mm-hmm. kon ku gisul Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàppe ci mel ni nga xamante ne ñoom la fi bàyyi yaakaar naa ne loolu ëllëg boo dajeex rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi cheikh doorus mm-hmm. kon yàlla mooy joxe ngëneel yi te jox na leen ko mm-hmm. te dafa bokk si ponk gëm yàlla bi su mujj xam nga mooy ban mm-hmm. nangu dogal yàllaay dogal bu yàlla dogalee boo bañee am problème lu lay naqari wala mettitu xol wala foo toll rek di am lu la metti rek nangul li yàlla dogal moo xam lu la neex la wala la nga xamante ni neexu la ndax dafa bokk mooy juróom benneelu ponk bi nga xamante ni dafa bokk si gëm yàlla mooy al imaanu bil qadaa wal ndax mhm. kañ naan fonqul muur yàlla mooy maye nii mhm. ni ñu mel defuñu ko seen bopp yàllaa leen ko def mhm. nangu leen ko rek am jàmmi àdduna am jàmmi àllaaxira mhm. bëgg nitu yàlla nag ak nangu dogalu yàlla day tax loo bëgg rek suñu borom subhaanahu wa taala mhm. daf la koy defal ndax naa naan kii mhm. nangu na sama dogal te ku nangu dogalu yàlla nag yàlla mooy nekk sa ki nga xamante nii mooy nekk sa biir mooy nekk sa biti nekk sa kanam nekk sa gannaaw loo ñaan rek yàlla defal la et puis teel a nangu euh, euh, day noppal day noppal sax gor waaw voilà donc euh, dama bëggoon wax dëgg yàlla laataa ñuy tàmbali ñu njëkk sàkku ñaan ci ki nga xame ni Euh, sunu sang la di Chérif Jouet na ay dara. Mhm. Oh, te te dañ ko bëggoon fekk Nimzaat ñu ngi jéem nag. Euh, xam naa réseau bi waaye dañu bëggoon rek njëkk ko jot. Mhm. mu ñaanal ñu ñu mhm. doog a tàmbali waxtaan bi. Euh, ndax defe naa tey Cheikh Modou Mboub ñu ngi lay nuyu di la ziar lépp ci jotaay bi dinañu ko hommagel ki nga xam ne ni mooy borom gëléem gi sunu xalifa bi dem nga xam ni bu fekkee woon lii kon. voilà kenn dootu ko kenn dootu ko waxati euh, euh, di euh, Cheikh Al Khalifa voilà xeertu donc tey daal réew mi dina nu bëgg ci ki ñu fas yéenee waxtaane di Cheikh na Cheikh sat bu wa xeertu ma bàyyi la nga màddaal ñu wala balaa muy màddaa bu fekkee Nimzaat ñoo ngi en ligne ñu dugal leen ñu njëkk a sàkku ci ñoom ñaan. oustaz Papane doog a tàmbali waxtaan bi ndax loolu itam yoon la xam nga bu ñu la joxee dissertation moom à la kuluyal di nga introduction amener le sujet développer doog a conclure te mag ñi ñoom defe naa dissertation ci ñoom conclusion bi day jafe ndax xajuñ ci ay programme yi xajuñ ci ay émission xajuñu ci alaaj Pape déedéet xajuñu ci euh, dañuy jël lenn ci ñoom rek waxtaane ko mm. boo ko defee ñu dundaat ci ba déwén mm-hmm. waaw kon euh, comme surafa yooyu nga xam ne yaa ngi leen di xaar mm-hmm. surtout Seydina Mouhamed yooyu nga xam ni mm. euh, ñoom ñooy suñuy sang ndax Seydina Mouhamed mooy mooy seen maam mm. waaw kuñ ci jot rek mu léemu ñu jotaay bi waaw kay léemaay waaw waaw baat boobu ma réeroon waaw kay xam nga aku gaynde sax boo ko séenee di nga ko ne salaamun xaw ma lan jak sakka jaa makka jaa waaw tey yàlla baax na yëpp waxoon naa ko buubu ak biisu <laughs> mu ngoog donc bu fekkee noppi na ci ginnaaw ñu mu ngoog euh, ñu ibbi waxtaan wi euh, fekk sunu way jur bile Euh, fële nga xam ne ni euh, moo di euh, Nimzaat di Chérif aleykum salaam Chérif Aïdara ñu ngi lay ngi sant yàlla bu baax a baax. am na nu mbégte lool fekk la foofu ca Nimzaat Aïdara Chérif. jazakumullahu xeeran. jazakumullahu xeeran. maa ngi tam maa ngi am mbégte bu baax a baax ci jokkoo ak yéen. Mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mm-hmm. balaa dara di xew parce mm-hmm. que gi képp ku ci sujoodal yàlla mm-hmm. ku mar te yàlla tax ku xiif te yàlla tax mm-hmm. yàlla yàlla nangul ñu nangul leen teggil ñu teggil leen tiis yi nga xam ne moo ne ci kaw suuf eh, wéral jaamu yàlla yi nga xamante ne moom moo leen teg nattu bi eh, waa nim seen lépp Sénégal la. Cheikh Cheikh Saad Bou. xeertu jaamu yàlla la boo xam ne. li mu doon doon doon si rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dafa dunde taqwa ndax dafa déggul waxi Seydina Ali mhm. karamallahu wajhahu bi yàlla wàccee inna akramakum inda allahi atqaakum mhm. dafa ne baax na sëb góor yàlla yi fi jaar yépp ragal yàlla rek moo leen tax a jaar sunu sang bi nekk ci eh, yitte mooy ummat sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ndax man lam yahtam bi umuri l-muslimin fa laysa minhum sunu yitte ñun si ñe fii ci waa Niger mooy yàlla wéeral bépp ji jaamu yàlla boo xamante ne ci Sénégal xam yàlla defee mu ñëw fii dafa tukki ñëw Sénégal jaamu yàlla yu baax yi yàlla def mu am fa ay taalibeem defar leen ba ay wali yu kamaal te lépp rek moo la ko moo la ko ci la koy hmm, jaamu yàlla yu ragal yàlla ne moom. te jaamu yàlla yu fees dell ci yàlla moom alhamdulilahi benn yoon rek la macha allah ndax tariqa alqadiriya tariqa tijaniya tariqa laayaniya wal muridiya yëpp yoon yi jëm ci yàlla subhanahu wa taala wallahi ay dara benn boroom rek la ñu am mm-hmm. benn yonent rek la ñu am sallallahu alayhi wa sallam benn sharia la ñu am mm, islam benn alquran la ñu am karim ñoom ñëpp ay julli mhm. ñoom ñëpp ñoo woor weer wi ñoo bokk lépp te bu ëllëgee incha allahu ci baaxu yàlla mhm. ñoom ñëpp la rasulillah sallam di ràmm te ñoom ñëpp ñooy nekk dëkkandoo sallallahu alayhi wa sallam ci wérdoo loolu lañ jot rafet nañ ci njort macha allah macha allah ñu ngi ñaan ci yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla teggil ñu teggil leen tiis boroom ñaari réew yi ñu ne fii ci Mauritanie ak ci Sénégal. allahumma amiin def ko ci sunu xalif généraux yi ak sunu xalif général cheikh na cheikh Aya ataaya allahu baqaahu wa ammarahu muaafan. Aydara Chérif. dafa xaw a guddi. wallaahi. dégg nga waaye munu ma leen gàmm. waaye maa ngi ziar bépp nit buy buy déglu. maa mhm. ngi ñaanal bépp nit buy déglu ak buy dégluwul. macha allah. yàlla ngay nattu. Euh, mbir mi nga xam ne teg nag suñu mu indi ko suñu moom doom na ko mën indi mhm. waaye it maa ngi ñaax bépp jullit ne yaa rabbi yaa rabbi rek ko fi jëlee yaa mhm. rabbi yaa rabbi yaa rabbi rek fi jëlee yaa rabbi waaw mhm. ñu dëkk yàlla xol loxo yi dëkk xol yi te kennal ko ci nguuram te xam ne moo fi kenn mënu ko fi indi te moom rek fi man jële kenn mënu ko fi jële déedéet waaye ñu saxoo suñu loxo tàllal ko subhaanahu wa taala mhm. jël suñu wasila mooy ngeen ji mu def mu tàll ay loxoom yàlla mhm. te yàlla du loo dara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangul ko amiin ñaanam moom mu nangul ñu sunu ñaan teggil ñu sunu def jéggal sunu ñaawteef yërëm ñu sunu dund ak sunu dee ak sunu bëgg ak sunu dekki ak sunu taxawaay ci kanam moom yàlla amiin ay dara yàlla bu ñu taxaw ci kanam yàlla mu mere ñu mm-hmm. bis bu ñuy taxaw ci kanamu yàlla yàlla nañu fekk yàlla gërëm ñu allahuma amin ay dara njam baal maa jërëjëf ay dara dafa xaw a guddi wallaay wallaay xam ngi ziyaar xay généraux yi fi ne macha allah ziyaar na Cheikh Sexaya. yaa sama xarit Cheikh Mouhamed Badara wulu maa min Kébémer. wallaahi. di ak sama ak Cheikh Anta Saadu ma ca Kébémer. macha allah. asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. waaleykum salaam. duñ ci teg dara Cheikh Modou yow la ñuy bàyyi rek nga euh, tàmbali mu doon introduction ci kaddu yi nga xam ne ni jóge na euh, ci Chérif jouet na ay dara foo ca Nimzat ci guddi gii ñu jagleel euh, Cheikh na Cheikh Sadbou wa xeertu.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 ñaanal Cheikh Sadou Lébi bayu Cheikh gi silaaxuna hayla lan tukarraru góor ci meedeel gi kaala gu jëkk geeg góor gi juddu ci biir waliyoo turam jóg Cheikh Saadu Lebi Cheikh na nee نعمة ما خلاقة شقي لكن ما فاز بها كل تقي بوي وهي لا إله إلا الله من غالها فخولها كفى دعم الشيخ محمد فلان maam taalib alxayaar doomu jël muxtaar Cheikh Sadul Ebi wa xayatumi góor ga nee na rabbi bi laa ilaaha illallah ñun xaatim ñun waa kër Cheikh naa Cheikh Sadul Ebi ñun dey sunu cër ji diine mooy baatu laa ilaaha illallah ñu de bu tiitee la ilaha illallah ñu de bu nu jaaxle la ilaha illallah bu nu bëggee suñu aajo faju la ilaha illallah kon nag rabbi la ilaha illallah habli xaadal ilaahi neena rabbi bi la ilaha illa allah habli maqaman la yurasaru asalal ilaahi neena rabbi bi la ilaha illa allah لا إله إلا الله أكفينا شر كل ما نخشاو غورغينا لو تسالخينا برم كوديغي شيخ سعد النبي وخير دبي ربي بلا إله إلا الله أكفينا شر كل ما نخشاو ربي بلا إله إلا الله كملنا جميع ما نرضاو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 déglul jàngale yontu yàlla aadama yontu yàlla aadama nee bi ma yàlla solee ruugi ca xudduraa ma ni fojjet jóg la ma njëkk gi ca buntu aras mooy laa ilaha illa allah nee na waaye yàlla teg ca muhammadu rasulallah ci laa xam ne buur boobee di yàlla su jëlee aw turam dendale ko turu jaam mu ñaan ci barke jaam boobee mu wàllu la jaam boobee jaam boobee mooy maami cheikhina cheikh saadule bi kon boo noppee nag nga teg muhammadu rasulullah boo tax déggal ngay زينب كصالحين سيدنا yaa ngi ni ubbeeku xabra xalabaaw fa quli laa ilaha ذكري بواسط الإياه فقولي لا إله إلا الله شانا شاسان لبيننا ديسان رب كريم ما لنا سواه فقولي لا إله إلا الله لا تلدي الخلي بما سواه فقولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله

zikru la tamarta balaa rawati Cheikh na Cheikh Saadu Abi. wallaay la wa xeer. waa Sénégal way nañu Maodo. way xaadi mbokki Maodo. ak Cheikh Omar Serigne Maodo ñi soppoon maami Saadibu. wa xeer seen jëfaray kemtaan. ku ne naw leen ndax limaam. ñu jow sala boole ixsaan jàppale maami saadibu ey ey kay déggi nelaw ci saalixiin bismillaahi maa ngi koy way cheikh na cheikh saad bu mi boroomi may yal na ko yàlla buur bi fay ci barke saari alxuraan ngewam ndeysaan ku mel ni moom mi dootu fi am waaw ci weer wi la nu bindoon aw turam wali wi yëpp di ko ñaan Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal Cheikh na Mouhamed Fadal ba nu maamin mooy baayam soxna Mariama mooy maamam ki rasuulillaahi moo di maamam sëriñ si mooy seen ilimaam presialet moo eh. badaas yaay seen gën kon na laa arrêté amul problème. l'islam bàkku naa l'islam bàkku naa l'islam bàkku naa lu ma tax a bàkku. Ah. maami Chérif Cheikh Mouhamed Lamine doomi Cheikh Cheikh Ibata. kooku nga xam ne yaqulu saadu leppi najulu faadili. ndeysaan dégg loolu. حول الجلال إلى السر والحسد إني إني إني أحب رسول الله سيدنا حب التحاسر المال والولد وليس يبلغ المشهار ما بته حب الحوالي لها لؤلؤ والجدد أفإلى نفسي من ليلى ودرتها ولا تقارب جملة ولا دار فريسي على النور <laughs> macha allah Cheikh Modou Mboub seddal nga xol yëpp te tàmbalee guñu ubbite la rek ci guddi gi euh, Cheikh Mohamed Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar gërëm la ci euh, taxawaay bi ak nangul bi nga ñu nangul ñëw ñu fas yéene waxtaane sa maam sunu maam Cheikh na Cheikh Saad Bou wa xayartu Sénégal yëpp doon taaxeer lu guddi gi tey ñu fas yéene ko tàmbali oustaz Pape Anne oustaz Assane Seck ñu euh, tàmbali ak ki nga ni euh, mooy euh, Cheikh Mohamed Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar gërëm la ci teewaay bi tey ci quartier général Seck. naawuzu billahi samil alim min sharri shaytaani rajimi bismillahi arrahmani arrahimi munawir absaar alcaarifin bi nuuri macrifati walyaqin wa jaazibi azimmati asraari almuxaqiqina bi jazabaati alqurbi waltamkin fatixi afqaali qulubi almuwaxidina bi fatixati altawxidi wa fatxi almubin alladi axsana kulla cheyin xalqahu wa badaa xalqa alinsaan min tiin summa jacala naslahu min sulalatin min main mahin arrahmani arrahimi العزيز الحكيم العلي العظيم الأول القديم خاطب مسلكلم بخطاب التكليم wa sharafa nabiyuhu karim bi nasi sharifi wa laqad ataynaaka sabaan min almasaani wa qur'aanil azim maliki yowmi ddiin qaahiri ljabaabirati walmutamarridina wa mubidi tugaati ljaaxidiin dalikum allahu rabbukum fa tabaraka allahu axsanu lxaaliqin fa yaa man laa sharika lahu wala muin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain muctarifina bil ajzi an ilqiyaami bi xaqika fi kulli waqtin waxiin yaa baacisa riyayn aqimi yaa muxil awlaami wa hiya ramim ihdina siraata almustaqim siraata ahli alixlaasi waltaslim siraata alladina ancamta calayhim siraata alladina tasallaw bilhuda wa farrixuu bima ladayhim gayri almaxduubi calayhim hab lana allahuma minka mawaahiba siddiqin washhidna mashahida shuhadaai wala tajalna dalina wala mudillin wala taxshurna fi zumrati zalimin amin allahumma salli ala man jacalta qalbahu baytul asraari wa arduhu limaanu wa samaa'uhu lmacrifatu wa shamsuhu lshawqu wa qamaruhu lmahabbatu wa nujuumuhu lxitaabu wa carshuhu lhimmatu wa racduhu lxawfu wa barquhu rajaau wa gamaamuhu lxilmu wa mataruhu lyaqiinu wa shajarahu lwaqaaru wa misbaaxuhu lxikmatu wa dihnuhu lilmu wa diyaauhu lfiraasatu wa layluhu haybatu wa nahaaruhu yaqadatu wa lahu arbaatu arkaanin ruknun min al insi wa ruknun min al tawakkuli wa ruknun min al sidqi wa ruknun min al wafaa'i wa lahu arbaatu abwaabun baabun min al ilmi wa baabun min al xilmi wa baabun min al tuqa wa baabun min al maarifa wa alayhi qaydun min al rida wa ala alihi wa saxbihi wa sallama tasliman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura yàlla na leen ko yàlla defal di leen ndokkeel ci weeru tedd wii nga xam ni mooy shahru ramadan al mubarak alladi unzila fihi al quran hmm. mooy weer wi nga xam ni ci la yàlla wàcce al quran na cheikh Saad Bou ni wa alhamdulillahi ala da shahri hamdan yaduumu bi dawaami dëhri hmm. walhamdulillahi ala imaani bi chehri jaa nassan fi quraani hmm. muy weer woo xamante ni par fukk fukk fukk la ko yàlla séddale yii fukk yërmande la hmm. yii fukk jéggal la yii fukk goreel sa bopp ci safara la yàlla nañ yàlla may ñu woor ko ba mu jeex ndax li ci nekk ci teraanga daa bëri teraanga yàlla subhaanahu wa ta'ala wax dëgg yàlla da koo dëxëñ ci weeru koor waaye ngir jullit ñi waaye oustaz Pape weeru koor ñun xaadir yi dañ cee am particularité jagle ji mooy yàlla dafa ñu may cheikh na cheikh Abdul Qadir Jilani mu judd barki démb ba quatorzième jour du mois de Ramadan. Mm-hmm. judd woor. yàlla may ñu ci ki ñu war a waxtaanee tey mm-hmm. mu saado bi wa saadul xalqi xaatibatan vingtième jour mu génn ci àddina vingt deuxième jour du mois de Ramadan mm. maanaam ñaar fukki fan ak ñaar ci la cheikh na cheikh Saad Bou génn àddina mm-hmm. mu mel ni balaa ñoo xuus ci waxtaan wi dafa am ñaari pilier ci diine lislaam yu mag yoo xamti kii dafa feeñ ci weeru koor ki génn àddina ci weeru koor muy cheikh na cheikh Abdul Qadir Jilani ak cheikh na cheikh Saad Bou ñoom ñaar ñépp nekk ci tariqatul xaadiriyati mhm. ñu ciy sant yàlla nag ñun ñi ndax kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar bay nga sawaar ci làmb ji nga xamante ni làmbi lislaam la mhm. ba sayidina muhammad gërëm la yàlla subhanahu wa taala teral la moom abuna cheikh na cheikh abdul qadir jeylaani dafa ni jàppal wérdu wi boo ko jàppee balaa nga dee jubook sa borom ak lu mën a def jàppal wérdu wi wérdu xaadir wi jàpp ko boo ko jàppee balaa ngaa dee jubóog sa borom ak loo mun a def ñu ni ko lu tax cheikh na cheikh Saad bu bind ni yuxni an kulli wirdin wala yuxni anhu wirdun wa saaxibhu laa yamuutu illa bi xusni alxaatima walaw faal ma faal xaadir bi wérdi bi mu jàpp di xasbuna allahu wa niamal wakiilu di astaxfirullah al azimu di laa ilaha illa allah malikul xaqul mubin di salaatu ala nabi cheikh na cheikh Saad bu nee na day remplacer bépp werdu te benn werdu du ko remplacer nee na nag loo mën a def foo mën a jaar balaa ngaa dee boo koy werdu da ngay jubóog sa borom maanaam da ngay am xusnul xaatima da ngay dee naan laa ilaha illa allah wala ngay dee naan astaghfirullah wala ngay dee di julli ci sayidina muhammad sallallahu ci kaw loolu oustaz Pape Hann dañuy tàllal loxo képp kuy deretu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci Sénégal ak biti réew ndax ñoom dañoo bëgg Sénégal waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou seen maam mun naa ne sénégalais la or à Nimjat et il se réveille ici au Sénégal maam Cheikh na Cheikh Saad Bou Nimjat lay fanaan waaye fii lay doxantoo ndax amul benn benn dëkk bu nekk Sénégal fii te Cheikh na Cheikh Saad bu samp fu wëliwu ba pare bàyyiwu fa njabootam kon li mu ne woon wajal ilahi dawlati dawlati izzin tasbuti wa qawwi fii ka sawlati yazdaadu fii kulli sana am na ñu war a waxtaane Oustaz Pape Hann góor gu mag gu baax góor gu tedd góor goo xam ni góor yàlla la walliwu la ku sayidina muhammad reconnaître la sallallahu waaye ku yàlla subhaanahu wa taala reconnaître la mhm. waaye ginnaaw ba mu nuyoo waa kër sayidina muhammad rek dama ciy jukki sallallahu alayhi wa sallam cheikh na cheikh aya ibnu cheikh na cheikh taalib buya xalif général des xaadir di xalifa sayidina muhammad sallallahu alayhi may nuyu bu baax dëgg yàlla euh, Cheikh Mouhamed Lamine Cheybate lii ma sol moo ma ko jox ni ma demal waxtaane Cheikh na Cheikh Saad bu ñëpp xam ko maa ngi koy ndokkeel di ko gërëm di ko ñaanal yàlla jàmm ak sutura waaye kër Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Haydara ma leen di beral nuyu di nuyu xalifa ba Cheikh Naama doomu Cheikh na Cheikh Abdoul Aziz Haydara mhm. doomu Cheikh na Cheikh Taalibiya di nuyu ay rakkam chëbbu taalibu ya xamdul maalum di nuyu bu baax adrame ak cheikh atqaana ak cheikh na cheikh Mouhamed ma leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla may jàmm ak sutura amiin amiin Oustaz Pape may nuyu ku fonk ku baax ci man di Chérif Ëlwali Maane Njaay daf maa yóbbante ci Pape Cheikh Diallo papa la waaw nee na bëgg gi ko bëgg yàlla la koy seddeel nee na mi ngi lay ñaanal yàlla fi nga teg sa tànk ci diine ji yàlla la ko yàlla fay nee na yóbbante la te yóbbante àq la moom laa am sama lépp la nee na mi ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax a baax allahumma amin allahumma may nuyu bu baax Cheikh Mahfou borom Ansar wallaay Cheikh Mahfou di doomu Cheikh Hadrame mm-hmm. di nuyu Cheikh Cheikh Mouhamed Vadel mm-hmm. borom Kébémer mm-hmm. suma papa suma sëriñ suma xarit di nuyu Chérif zone nag muy dugg léegi di rakkam waaye di nuyu seen rakk muy cheikh na cheikh saat bu imaam raati bu Kébémer may beral nuyoo nag soxna su baax di ku tedd di jigéen ju mën góor di soxna maam ma doomu cheikh Saad bu taqiyullah maa ngi koy ñaanal yàlla jàmm ak sutura yàlla na ko yàlla defal. bu ma ko nuyoo damay nuyu Oustaz Pape Hann sa xarit sa soppe. ki nga xam ni li nekk ci man moo ko def ci man di sama sëriñ di sama di sama lépp jàngal ma yar ma muy sama baay cheikh baay cheikh Seck doomu Mohamed Abdullahi sekk di xalifa cheikh Yirim Ndumbaan Seck alqutbu rabban maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla may gudd fan ak wér. allahumma amin nuyu nag képp ku cheikh na cheikh Saad bu cheikhal samam. ndax sànq Pape Cheikh da wax ci sa wax lu doy waar danga ni ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla wërsëgalee Cheikh na Cheikh bu fii ci Sénégal wallahi bu ñu demee ba ca kanam hmm. dinaa la expliquer bu baax a baax a baax ndax loolu nga loolu nga wax du yow rek la dal hmm. ñu sant yàlla ginnaaw ba ñu amee Cheikh na Cheikh Sadbou fii ci senegal bëri na kon mooy nuyu sama soppe Oustaz Pape Hann di sama xarit di ku ma bëgg ma bëgg ko lool sopp ko lool faa ko ndax li muy tagg ci Seydina Muhammad kon di nga bokk ci suñu fan club bi ah kon mel ni kon di nga bokk ci suñu fan club bi carte de membre 1500 la <laughs> ndeysaan ñun Cheikh na Cheikh Sadbu xeert Pape Cheikh dafa ñu yar ci ñaar macha allah Cheikh na bu Sadbu daf ñu yar Oustaz Assane ci laa ilaha illa allah waaye daf ñu yar ci bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun Cheikh na Cheikh Sadbou ci ñaar yooyu la ñu yar mm-hmm. noonu la demee barakallah sëñ macha allah jërëjëf oustaz waaw euh, oustaz Pape euh, yaakaar na mm-hmm. euh, introduction bi rek maa ngi naan si biir bi laata muy daaneel mu duggee si fatiha bi ak yi mu si dugal yëpp ñaan boobu moom bu dalee mm-hmm. yaakaar naa ne fa tabarakallahu macha allah kon li muy wone mooy kii ñu dalal di Mouhamed Seck boroom xam-xam la mhm. te fa tabarakallahu macha allah boo mhm. dégg déggee ni mu ubbee rek mhm. nga xam ne ku maîtriser li nga xamante ni incha allah moom lañ fa yéene woon a wax moom lañ fas yéene waxtaane tey di cheikh saadu abihi wa xayatu nga xamante nii wax naa ko sànq sët la si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam pape cheikh junñu na ko sànq mag ñi bu ñu leen di waxtaane ak ñu mel nii ngir jàngee si ñoom ban taxawaay lañ amoon waaye itam yan valeur lañ ñu fi bàyyil ngir ñu mën si ngoy ngir bu ëllëgee bu ñu dajeek ñoom si kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun nga xam ne ñoo nekk seen njaboot du ñu ñun du ñu sëgg du ñu rus waaye ñoom itam dinañu siggi si kanamu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad wax na ko léegi lii leen yitteel yépp mooy wommat ñu teg ñu si loxo sayduna muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam kon incha allah comme dama lay bàyyi nga ubbee ak moom question yi mhm. ñu waxtaane kenn si nit yàlla yi rajulun min rijalillahi mhm. di cheikh saadu abihi wax xayartu oustaz pap jërëjëf Sina Sène am nañu mbégte yal na yàlla gën la barkeel yow itam. amiin amiin alaaj Pape ah, tey nag ñu ngi bëgg a ñu ngi bëgg door. door na ñu ngi bëgg a door ñu ngi bëgg a dem Nimzaat ñu ngi bëgg a dem ci borom saalixiina. ñu ngi bëgg a dem ci Saadul Abihibul Muhammad Fadal maam. waxal yàlla waxal yàlla kaala ma ne ki ñuy waxtaane kaa la kaa lu doy waar lu doy waar mu dugg bul wayegum waaw bul way bul wayegum mudu xaaral man ki ki nga war a waye la ñu nii ngi bëgg a dem nag jàmbaar ja Cheikh na Cheikh Saad bu ki nga xam ni euh, tey damay waxtaan damay wax ne alaaj Pape bis mu ne ma ni nit pour nga bëgg ko faa nga xam ko ba noppi mm-hmm. waaye tey ngay xam ni sunu mag ñi kenn du ñoom te def na fi jun des na fi des na fi junniy mag yu ne ci biir réew mi mm-hmm. yoo xam ni waxtaana guñu leen mm-hmm. te li ñu bëgg mooy leen waxtaane ñoom ñëpp nag macha allah yàlla nañu yàlla nañu yàlla may ñu dund junniy at ah? xam nga junniy mag at mu jot junniy at la yàlla nañu yàlla may ñu dund junniy at ah? ci darajee rasul xam nga loolu mooy la sallallahu mooy ñun bu ñu demee suñuy doom ñëw di leen waxtaane mm-hmm. ñooñu bu ñu demee suñuy yeneen doom ñëw di leen waxtaane mm-hmm. ba keroog ñu dajeeg rasulullah ñu dajeeg nag ki ko mën a waxtaane di borom xam-xam mm-hmm. euh, di Cheikh Mouhamed Seck di jàmbaar arab moo wax ni takkallam tu arab waxal nu xam la wax yëpp amul benn problème Mm-hmm. waxal rek nu xam la. Ah. waxal rek nu xam la. Ah, kon Cheikh Mouhamed. Ah. nu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk la dëgëral. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla sàmm la yàlla aaral la boppam. macha allah tey jii na àdduna bépp a ngi toog di la déglu. wallaay su rafaa uy njabootu Cheikh na Cheikh Sadbou gi nga xam ne ñoom comme li nga wax cosaan seen cosaan ca Nimzaat la. Mm-hmm. waaye seen xol a ngi fii Sénégal. Mm-hmm. kon ñu dëkk ñoom ñu suñuy dëkkandoo. waaye cofeel gi nu am ci moom am ci ñoom ñu am ko ci ñun mu rëy lool suñu bàyyi ceer Ceerno Njaay moo waroon toog fii ànd ak yow ci question yi nu ngi koy nuyu mm-hmm. tawat moo tax ñëwul mm-hmm. sànq woo naa ko wax naa ak moom waxtu ne ko di ñëw maa ngi ñëw jël si la maa ngi woo buuba ak njaga ju jël si la mu ne ma damaa feebar soxna mm-hmm. saa ngi nii ba pass ma soxnaam looloo waral ambassadeur ñëwul ndax Baye Thierno Ndiaye ci kër gii mm. euh, li mu fi liggéey ci kër Cheikh na Cheikh Saad bu kenn xamul mu toll kon Baye Thierno bu nu xam ni Euh, yitte euh, tawat moo ko jàpp sunu sunu ndijaay sunu mag alxaaji Abdul Aziz Mbay maam Faama mhm. euh, alaaji Asan xam nga démb gisoo ko Abdul Aziz nag boo ko gisul mhm. fu ñuy waxtaane Seydi Alxaaji Malik baayam Mbay alxaaji Mbay ñu joxoon ko Seydi Alxaaji Malik ak Paate Mbay mhm. mi jur Maodo Malik Mbay euh, alaaji Mbay daan jottali Cheikh Alxaaji Abdou Abdul Aziz Mbay nekk ci groupe Futurs Médias dëkk ti waawoon ñuy waxtaane Seydi Alxaaji Malik gisuñu ko ngant ko waral waaye ñun fu ñu teew teewal nanu ko mu lay Abdul Aziz nu ngi lay nuyu nu lay ziyaara nu bay alaaj ci alaaj Cerno Njaay yéen itam mm. yéen lañu fi teewal maa Cheikh Cerno wallaay Mohamed waaw euh, fi ñuy dooree mm. parce que question bi tey dama ko wëlbati nit ñi bëgg na ku du rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te doomi Seydina Muhammad yi mooy surafaa yi ne ci réew mi ku ni leen jàkk da bëgg a génne xaalis jox leen xam nga lu ko waral mm. seen maam rasulullah yi ku ni leen jàkk da ngay bëgg ñu tëfli la nga raay sa kanam. Mhm. ki ko waral mooy seen mam Seydina Mohamed. sallallahu seex na seex Saad bu nag. ci wàllu wuy juróom bu góor ak wuy juróom bu jigéen da ngay ba ci rasulullah yi. léegi li nu bëgg a xam. waxunu askan wi. Mhm. mooy cofeelu seex na seex Saad bu ci si Seydina Mohamed mooy première question bi. sallallahu alayhi deuxième question bi si naa seen dina ci dugg ak yow ci booy waxtaan ba ci biir mooy. nga wax nu kalimatu laa ilaha illallah bi xaaji Modou bu duggee léegi. Mhm. ni ko seex na seex Saad bu. Euh, wesaare ci àddina mhm. ak digganteem ak Cheikh na Cheikh Saad bu xeer ba ca topp mooy dugg seex na seex Saad bu parce que juddoowul ci réew mi di Sénégal mhm. dugg Cheikh na Cheikh Saad bu fii ci Sénégal ak li mu am ci réew mi bu mujj ba nag mooy nga wax lu ñi mu defar bismillah Muhammad ñeenti question la mhm. <laughs> ñu ngi ñaan yàlla waaye ci biir question yi nag Assane dina mi mu si dugg insha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla ñu leeral lépp. incha allah ci kii nga xam ni moom dalaa wax ca njalbeen kenn du ma xam kon ci yërmandeem rek la lay yàlla mën a baaxe ba nga wax ci moom mu jariñ jullit mhm. may nuyu Cheikh Bahaydawul si bi mënuma ko ñàkk bañ a nuyu mhm. waaye Chérif Yaqub mënuma ko ñàkk bañ a nuyu doomu Cheikh Burana mhm. Chérif Xutub mënuma ko ñàkk bañ a nuyu neexutul wallahi ku ma nuyuwul rek fàttewuma la damaa munta lim ñëpp mhm. Oustaz Pape Hann cofeelu cheikh na cheikh Saad bu ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi muy lu lu doy waar na cheikh Saad bu dafa bëgg yonent bi ba jeex tàkk mhm. bëggam googu mu bëgg sayidina Muhammad da ko donn ci baayam cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin xëyrtu cheikh na cheikh Saad bu bu bëggee sayidina Mouhamed wàcc na mhm. ndax da ko wane dafa ni bëgg naa sayidina Mouhamed ba sama xol bët mhm. bëgg naa sayidina Mouhamed sallallahu alayhi ba mënuma koo melal benn melokaan moom Seydina Muhammad mhm. ndax cofeel gu ma am ci moom ñu ni ko léegi ki ngay bëgg kan la mu ni il a eu des miracles énormes qui depuis longtemps ont rendu à pour les quantifier les langues des poètes les plus éloquents mhm. ki may bëgg daal man Cheikh na Cheikh Sadbou waxkat yi dàq a wax hmm. mënuñoo wax ba jeexal ko waaye bindkat yi dàq bind mënuñoo bind ba jeexal ko moom Seyyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. xam nga nag bëgg yonent bi dafa am solo. sallallahu alayhi wa bëgg yonent bi dalay yóbbu ci maqaama yi waaye day tax say bàkkaar set. waaye day tax yàlla bëgg la. yàlla moo ni woon qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkumu allah kenn laa bëgg boo leen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko mu Seyyidina Muhammad. sallallahu ku ko bëgg ma bëgg la. ku bëgg yonent bi man yàlla ma bëgg la. macha allah sayidina muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam arab bi dafa ne ko him lil habibi muhammadin wa zawihi inna alguyaama min xubbihi yurdihi yaa aashiqan zaaka alxabibi wa xusnihi in maata jismuka falhawa yuxyihi mu nu jasadun tamakkana xubbu ahmada fiihi tallahi in al arda la tublihi bëgg ko amul perte wax loolu arab bi da xool ni ko arab waaw ni ko moom yonent bi waaw tamakkana xubbu ahmada fiihi tallaahi inna al la tublihi yaram bu bëgg saydina muhammad boobu yaram suuf du ko lekk seena cheikh saad bu ni kon fa kayfa la wa huwa xayrul xalqi qaatibatan ataahu rabbul wara ma lam yanal ahad lu tax du ma ko bëgg hmm. moom dong laa war bëgg ndax moom la yàlla bëgg yàllaa ko jox saydina muhammad loo xam ne jox ko keneen ñu ne ko lu mu ko jox yow cheikh na cheikh Saad Bou mi ni min al maarifi min nuuri tajalli wa min qurbil alihi alladi yushfa bihi kamadu ñu ne ko kan mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni il a tous les attributs de la perfection et illa a le plus haut rang dont le secret duquel émanera tout secret toute assistance li yàllay taggee nit ku baax li yàllay bëggee nit ku baax yàllay fonkee nit ku baax moom la taggee sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy jikko wajaal sakinata libaasahu wal birra shiaarahu wa taqwa damirahu wal xikmata manquulahu wa sidqa wal wafaa tabiatuhu wal afwa wal maarufa xulqahu wal adlu siiratahu wal xaq shariatuhu wal huda imaamahu wal islaam millatahu wa ismuhu ahada bihi baada dalaala keroog ba ñu réeree. sallallahu alayhi wa sallam dañoo tudd Seydina Muhammad rek jub. sallallahu alayhi keroog ba ñu kenn xamulee dañoo tudd Seydina Muhammad ñëpp xam ñu waaye keroog ba ñu ñàkkee pauvre dañoo tudd Seydina Muhammad am sallallahu xam nga lu tax hmm. yàlla jël dal ñaw ko ba mu rafet hmm. solal ko moom rasulillah wa jaal sakinata libaasahu wal birra shiaarahu yàlla jël mbaax hmm. jox maamu cheikh ne cheikh Saadu wa taqwa damirahu yàlla gën ragal yàlla def ko muy jikko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal xikmata manqulahu yàllaa jël sagesse def ko muy xelu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal sidqa wal wafaa tabiatuhu yàllaa jël dëggu ak dëgg mu yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu xool ne jikko yu rafet yépp yàllaa ko canaliser ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax cheikh ne cheikh Saad Bou il a tous les attributs de la perfection et il a le plus haut rang kenn sutul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Moussa dafa toog ak yàlla di waxtaan ak moom saa san yàlla ni ko nabbi bani israila annahu man laqiyani wa huwa jaahidun bi ahmada adxaltahu naara waaw laa ilaaha illallah nabbi bani israila annahu man laqiyani wa huwa jaahidun bi ahmada adxaltahu naara Moussa ni ko yaa rabbi wa man ahmadu mu ko da ngay laaj mun ko mun ko maa xalaxtu xalxan akrama alayya minhu katabtu ismahu maa ismi fi l arshi qabla an axluqa samawati wal arda kenn du sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna al jannata muharramatun ala jamii xalqi xatta yadxuluha huwa wa ummatahu musaa ni ko wa man ummatuhu yàlla ni ko alhamaduuna yahmaduuna suudan wa hubuutan wa ala kulli xaalin yashudduuna awsaatahum saaimuuna binnahaari ruhbaanun billeeli wa yadxulul janna bi shahaadati an laa ilaha illa allah sallallahu alayhi wa sallam kookoy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kookoy góor gi ñu war a waxtaanee tey muy cheikh na cheikh saadu uri yàlla dafa ni Moussa waxal waa banu Israil hmm. képp ku ma gëm man yàlla te bëggoo sayidina muhammad considéré wu ma ëllëg da ngay perte mhm. Moussa ni ko kan mooy ahmadu mu ko kooku maa xalaxtu xalxan akrama alayya minhu binduma ku ko gën katab li ismahu maa ismi fi l arshi qabla an axluqa samawat wal ard man yàlla maa jël sama tur boole ko turam moom sayidna Muhammad bind ko ci suufu arash yow Moussa xanaa xamoo ne àjjana xaram na ci képp koo xamante ni bëggul yonent bi yow Moussa xanaa xamoo ne àjjana xaram na ci képp koo xamante ni sayidna Muhammad dugg fa ak xeetam yi ba ñu jeex tàkk Moussa ni ko ñan ñooy xeetam mu ne ko ñi nga xam ne dañuy sant yàlla di sax ci sant yàlla guddeeg bëccëg ñuy sant yàlla alxamaduuna yaxmaduuna suudan wa hubuutan wa ala kulli xaalin yashudduuna awsaatahum mm-hmm. ñu ne ko ñooñooy ñan mu ni ne saaimuuna binnahaari ñi nga xamante ni dañuy xëy woor mm-hmm. ruhbaanun bi leyli guddi gi ñu fanaanee jaamu yàlla Moussa mm-hmm. ni ko ak ñan mu ne ko ñi nga xam ne dañuy dugg àjjana naan laa ilaha illa mu mel ni yonent boobu muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni lépp lu baax lépp lu baax yàllaa ko ko jox seen Cheikh Saad bu ni la kooku kenn du moom ñu ne ko lu tax mu ni il a eu des miracles énormes mhm. qui depuis longtemps ont rendu à bout d'effort pour les quantifier les langues des poètes les la éloquents Cheikh na Cheikh Saad bu ni la xoolal ñaata ay ñaata ci kéemtaan la def moom Seydina Muhammad bokk na ci Pape Cheikh moom rasulillahi maamu cheikh na cheikh saat bu mu war a judd yàlla jël juróom-ñeenti yonent yonent bu ne di wàcc par weer ngir ndokkeel yaay amina ngir ëmb gi mu ëmb sayidina muhammad sallallahu ya bokk na ci ah, ci yonent bi sallallahu moom sayidina muhammad sallallahu alayhi nekk ci biiru yaayam di waxtaan ak yaayam te juddoogul moom sayidina muhammad bàyyi nga ni moom doo nga judd set képp ku judd tilim nga ba mu des maamu cheikh na cheikh Sadbu. wuli da nadifan bi bihi xazaru. Hmm. waaw yonent bi moom doo nga judd set. sallallahu alayhi képp ku mus a judd dañ dañ laa dañ laa sang waaye moom dafa juddu set ñu jël ko tël ko yóbbu àjjana tur ko parfum misk sangee ko zamzam. indiwaat ko fii ci àddina. moom Seydina Muhammad maamu cheikh na cheikh Sadbu moo judd waxtaan ak yàlla. ne allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa baa yëg nga yonent bii ma lay wax bu taxawee TFM wax waa Thiès dégg waaye nag waa Thiès bu ñuy wax ci moom mu toog TFM da leen di dégg maamu cheikh na cheikh Saad bu kaana yablugu sawtuhu wa sam'uhu maa laa yablugu sawtun gayrahu wala sam'uhu sallallahu alayhi wa sallam moom sayyidina oh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maamu cheikh na cheikh Saad moo dégg asilul xëddayni azajul aajibayni anqul manqibayni baariqul jabini subnu diraayni chaqnul këffi qaamatuhu bayna alqaamatayni bu ne sëttëx dox jundi bu doxandoog moom tardé moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ida qaama maa annaasi amahu bilqiyaasi wa ida mashaka annahu mudallalun bayna alghamami moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maamu cheikh na cheikh Saad bu moo judd indi 32 dents sàkkare yàlla kawak suuf mustadal benn liir judd rek indi 32 dents sàkkare yàlla kawak suuf ca yonent bi moo tudd muhammadun ahmadun hamidun mahmudun ahidun wahidun maahin haashirun aqibun taha yasin tahir mutahir tayyibun sayyidun rasulun nabiyur rahma qayyimun jaamiun muktafin muqaffa rasulul marahim moom muhammad moo tudd rasulul raha kaamilun iklilun mudassirun abdullah habibullah safiyullah najiyullah kalimullah xaatimul anbiya xaatimu rusli muhyin munjin muzakkirun nasirun mansurun moom muhammad moo tudd xarisun aleykum maalumun shahidun shahidun bashirun mubashirun nadirun munzirun nuurun sirajun misbahun haddan moom muhammad moo tudd mahdiyun munirun daain maduwun mujibun mujaabun xafiyun afuwun waliyun xaqun qawiyun aminun makinun muammalun moom muhammad moo tudd wusulun zu quwatin zu xurmatin zu makaanatin zu izzin mutaaun mutiun qadamu sidqin rahmatun bushra moom muhammad moo tudd gawsun riyaasun raysun nicmatullahi hadiyullahi siratullahi siratul mustaqim zikrullah sayfullah xizbullah najmu saaxib moom la yàlla tànn al mustafa yàlla ni ko dafa lu la neex ëllëg yowmal xiyaam ma jox la caabi àjjana ak drapeau sant yàlla jël junniy malaayika kenn ku ci nekk yaay daay dàq jamaa ñoo lay escorté moom Muhammad ni ana awlu naasi xurujan ida buisu hmm. wa qaiduhum ida wafadu wa yubashiruhum ida yaisu wa shafiuhum ida ansitu ñu ni ko lu tax mu ni bi yadi yum naa mafatixul janna wa bi yadi yusra liwaa'ul hamdi mhm. wa fil wara alfan min al malaa'ika ka annahu lu'lu'ul maknun mhm. moo tax cheikh na cheikh Sadbu ni mhm. kii kenn du moom ñu ne ko lu tax cheikh na cheikh bu mu ne lépp luy leer mi ngi leer ci leeram Oustaz Pape Hann dégg nga xale kawni binuri adama fil kawni Oustaz Xasan xale bi nee na binurihi addaa maa fil kawni binuri addaa maa fil kawni lépp loo gis mu leer Cheikh na Cheikh Saad bu nee na mi ngi leer ci barke maamu Cheikh na Cheikh Saad bu wa uxtiyal ubaada sirrawni la Cheikh Saad bu nee na kenn la yàlla jox secret ndimbalante te mooy Seydina Muhammad jaada alay bil xitaabi wa Cheikh na Cheikh Saad bu nee na kenn la yàlla mës a waxal mu dégg te mooy Seydina Muhammad tafadulan la dal xiyaami wa sujud Cheikh na Cheikh Saad bu nee na ca waxtaan googu la ko yàlla recevoir jox ko fa junni juróom jaala wasilati lana cheikh na cheikh Saad bu nee na sang bi def yi kenn la mooy sayyidina Muhammad. cheikh na cheikh Saad bu nee na sayyidina Muhammad la yàlla gën la gën di màgg cheikh na cheikh Saad bu nee na bàyyi la gaa yi Isa doon wax bu ko wax Muhammad. daama coonooli zaati zaati cheikh na cheikh saat bu nee na tox na jeewaay teewaayam ba ñeel jëmm-jëmm yi fa xaaba fi zaati maal ayaati cheikh saat bu nee na fàddu na ànd ak teewaayam ba ak kémtaan ya dëhru daaril kitaabu wa jadid cheikh saat bu nee na jamono ju bu nekk alquran day bees laa yuxtasha taxibu wala yaxi cheikh na cheikh Saad bu nee na kenn du ko soppi kenn du ko changé. huwal muraad. moo dégg maakaana Mouhamed aba ahadin min rijalikum. huwal muraad. walakin rasulallahi walakin nuurallahi walakin misbahallahi. huwal muraad. moo dégg Mouhamed rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum. huwal muraad. moo dégg taraahum rukaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana. Eh, huwal muraad. Cheikh Modou moo dégg alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka moom Mouhamad. huwal muraadu. dégg nga alladi anqada zahraka wa rafa'na laka zikraka. huwal muraadu. ki ngay wax mooy sirru sarirati nuurul xalqi qaa'iduhum. Cheikh Saad Labi nee na huwal muraadu. dégg nga Pape Cheikh kii muy wax mooy xayru xiyaari xurayshin wa huwa da'maa wal muraadu min jami'i xalqi wa xiiratullahi sirru zaati safati yi moom Muhammad wal muraadu min jami'i xalqi sirrul wujudi wa jawdul juudi ni'maa Muhammad wal muraadu min jami'i xalqi Cheikh na Cheikh Saad Bou c'est le désir de Dieu parmi tous les humains moom la yàlla teral ca teraanga yu njëkk ya moom Seydina mooy lamp miy leeral asamaani juróom-ñaar ak suuf. wa wasa fi kulli naa wal bahr. ñun ñëpp bu ñu deewee ëllëg yawmal xiyaam moo ñuy ràmm. wala di utiya ma yasaa. moom la yàlla jox lu ko neex moom mu Muhammad. cheikh na cheikh Saad bu nee a jigal dootul sukk jur ku mel ni Muhammad. cheikh na cheikh Saad bu nee na waat naa diggante ak suufi juróom cheikh na cheikh Saad bu nee na ku mel ni yonent bi dootu fi am. wadudu. cheikh na cheikh Saad bu nee na yàlla. wadal xamaabil mustara. jël na jëmmam tàpp ko ci Muhammad ni ko yaay sama waay. cheikh na cheikh Saad bu nee na lii ci ay teraanga doy na. Eh, wa amana al baadu bihi wal baadu cheikh na cheikh Saad bu ne na ñii dañuy gëm Seydina Mouhamed ñii wedd ko cheikh na cheikh Saad bu ne na ñu ko gëm ñëpp àjjana lañ jëm ñu ko weddi ñëpp safara sawayta an kazinatul hayaa cheikh na cheikh Saad bu ne na taaru dund taaru jëmm yàllaa ko jox Seydina Mouhamed yeneen bu ne am na cër waaye cëru Seydina Mouhamed mooy seede jëmm yàlla cheikh na cheikh Saad bu ne na taaru yeneen yëpp kan la wa anta zinatu sama Mohamed te yow yaa taaral asamaani juróom-ñaar. zalani sawaabi wal maani. Cheikh na Cheikh Saad bu neena fàddu na ànd ak xel mu rafet ak xalaat. malam yaraka sayyid al akwaani. képp ku la jàppewul sangu mbindee fi torox na yow Mouhamad. xasbuka min madaa'il xaliil. Cheikh Saad bu neena booy tagg taggal xaritu yàlla. maa xanata bi muhkami tanziil. Cheikh Saad bu neena moom la yàlla tagg ci alquran moom Mouhamad. xasbuka fi madhi ibni Abdoulaye. Cheikh Saad bu neena booy tagg taggal doomu Abdoulaye ak Amina. Cheikh Saad bu nee na moo dem ba sidratal muntaha moom Muhammad Cheikh Saad bu nee na bàyyi na ginnaaw ka ko doon gunge xayrul malaa'ikil kiraami wa shaad ki gën ci malaaka yi mooy jili Muhammad wéy na Cheikh Saad bu nee na fa Muhammad dem xel eggu fa fii wa hataba ilahuna la Cheikh na Cheikh Saad bu nee na fa xel eggul fa la ko joxe julli cheikh na cheikh Saad bu ne na ñi mu jur baax nañ ñi ko jur baax nañ. cheikh na cheikh Saad bu nee na matal na sharia bi matal na yoon yi. jërëjëf. ah. waaw ne rasulullah yi. waaw maam yi Cheikh na Cheikh Saad bu. wax nga ñu li ko Cheikh na Cheikh Saad bu wax. Hmm? mais cofeelu Cheikh na Cheikh Saad bu ci Seydina Muhammad. cofeelam bi. mooy inni uhibbu rasulullahi sayyiduna loolu mooy lan bëgg naa yonent yàlla muhammad sang suñu sallallahu alayhi wa sallam xubban taqaasar anhul maalu wal waladu goo xamante ni boo tegoon banque mondiale fonds monétaire international teg mm-hmm. jël jongoma yee kër yi teg jël oto yi teg teg sayyidina muhammad ma jël am na leneen lu mu waxaat innal fuaada suqifa dégg nga innal fuaada sama xol suqifa bëtt na bi xubbi xayril Mustafa. Falaa miryata an ayaati nabiina Muhammad wa mucjizaatu azhara wa abhara wa aksara wa abqaa wa aqwa. sallaa alayhi man wafaa. wa mansibuhu aclaa wa dawlatuhu aczamu wa awfar. loo bi kulli maa waad. Cheikh na Cheikh Saad Bou. wa xayr. Pape dafa bëgg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam ba amu ci sago. Mm-hmm. xam nga dama ne la sànq. bëggee gi mu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doon ci baayam Cheikh na Mouhamed Fadil mm-hmm. baayam Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin mm-hmm. bàyyam nga ni mooy góor gi nga xam ni moo am téeméeri doom mm-hmm. kan Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil mi jur Cheikh na Cheikh Saad mi jur Cheikh na Cheikh Saad téeméer waaw téeméer macha allah man moom waxaguma la ci Cheikh na Cheikh Saad bu moo ñu jaaxal ba léegi mais dinaa la wax ci baayam ba pare wax la kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou. waaw di nga dégg tey loo musul dégg ci Cheikh na Cheikh Saad Bou baayam dafa am téeméeri doom téeméer walil baniihi addu najin xam nga fukk sax da lay mu am 53 doom yu góor 47 doom yu jigéen 53 doom yu góor 47 doom yu jigéen 53 plus 47 muy 100 lii la Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin am. laataa mu koy am nag day jël téeméeri tur yàlla yi di ko tarbiya di ko tarbiya di ko tarbiya 99 tur yàlla yi di ko tarbiya ba yàlla may ko benn bu nekk doom moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil Ibn mu dund mu dund 74 ans mois 2 jours moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil Ibn Mamin génn àddina ñëwaat ci àddina am centième doom Oustaz Pape am Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na nii la def dafa jur 99 doom fii ci àddina moom bàyyu cheikh na cheikh Saad Bou dee ba am un ci biir bàmmeel di génn àddina di ñëwaat soxnaam di ànd ak moom ba jur téeméeri doom muy cheikh na abul anwar te boobu fekk na mu génn àddina ci zahir génn na àddina ci zahir ba ñu suul ko ci xawdu ba denc ko moom cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin bàyyu cheikh na cheikh Saad Bou waxa yo Oustaz bu ñu nee cheikh na cheikh Saad bu nag Mm-hmm. da ngay xam ni moom. Mm-hmm. ak Cheikh Mouhamed Fadil. Mm-hmm. bokkuñu ci. mais mais Mouhamed loolu nag bëgg naa mu leer. dina leer nañ. <laughs> macha allah Cheikh na Cheikh na Mouhamed kenn du moom. Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin wallahi kenn du moom. Abul Anwar nga ne Abul Anwar. dama ne la am na téeméeri doom. waaw. doom la am ci àddina. dee ba am un an ci biir bàmmeel am centième doom. non da xaar xaar xaar <laughs> denc nañ ko. denc nañ ko ci biir bàmmeel génn na àddina moom Cheikh na Mouhamed Fadal. moom Cheikh na Mouhamed Fadal. mu génn ci bàmmeel. muy génn ci at bàmmeel bi guddi altine guddi àjjuma di ñëw ci soxnaam. allahu akbar. di ñëw di ànd ak soxnaam. soxnaam ni ko lii ngay def de neex na ma waaye bu ma sañoon nga acquitté ma ndax waa xawdu gii nee nañ. Mhm. da nga xaar ba nga génn àddina may def lu bon te man du ma def lu bon sëtu Seydina Mouhamed laa. sallallahu alayhi te bir na la ni yow lii ma ëmb yaa ma ko teg mu ne ko noppil ñuy sël ba yowmal xiyaam lu ñu jur muy wëlliwu mu ne ko loolu rafet na waaye acte ma mu ne ko wooteel yéeneel parce que faaw nga teggil ma ci àddina waaw waaw yéeneel ni leen guddi àjjuma man Cheikh Mouhamed Fadel dinaa génn ci sama bàmmeel ñëw ànd ak yow ba ñëpp gis ma dugg ci saxaay ma bi toog waxtaan ak yow ba ñépp gis ma moom Cheikh Cheikh Mouhamed Vadal guddi àjjuma ndeysaan Mouhamed bi ni tàcc xar mu génn nit ñi gis ñépp di gis allahu akbar mais pap téeméeri doom mhm. neexut a jur de ah, du du yi jamono de kenn rek la ko yàlla may ci àdduna yi jamono ba pare nag xam nga sant yi du ci garaaw mhm. ñépp di waliw ñépp di waliw ñépp di góor jigéen góor jigéen ñépp di waliw allahu akbar xam nga lu tax loolu tey Cheikh te teelu leen a jur de daa xaar ba am 40 ans ah 40 ans yonent bi feeñu ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko sama sët lu tax doo jël doo jur doo jël soxna mu ne ko maam damaa bañ a jur lu dul waliyu mu ne ko jëlal soxna koo jur waliyu lay doon Cheikh Cheikh Mouhamed Vadel tëdd guddi gént tubéyam ëmb golob terrestre bi yëpp moo tax foo dem ci àddina am na sëtam moom Cheikh Mouhamed Vadel commencé jël jur abul fath mm-hmm. mm-hmm. seydi ousmane mm-hmm. mouhammad abbas mouhammad taqiyullah cheikh hadrame cheikh talib akhyar cheikh alwali wulu yango cheikh mouhammad lazaf cheikh hëya cheikh maalu aynayni cheikh jee cheikh bachir cheikh moustaphi cheikh mouhammad boulanwar cheikh talib boubacar cheikh mouhammad limam cheikh mouhammad al mukhtar cheikh al muslih cheikh mouhammad al mamoun cheikh mouhammad al maaloum cheikh al xataab cheikh na cheikh saad bu feeñ mais hmm. kon Cheikhna du taaw. du taaw du caat. allahu akbar. mooy vingt septième enfant de trente sixième garson boo dajalee góor yi Cheikhna Mouhamed Fadel moo ciy vingt sept boo dajalee góor ak jigéenu Cheikhna Mouhamed Fadel moo ci trent six. yàlla may ko moom na Cheikh Saad bu mu génn ci téeméeri doom téeméeri wëliwu yàlla tël turam bind ko ci asamaan. mais Mouhamed avant foofu. léegi nag ci yaayi abul anwaar cheikh na cheikh mohamed fadal ibnul mamin fadal génn ci armeel yi di génn ci bàmmeel bi waaw kay di ñëw di ànd ak soxnaam mm-hmm. di nekk ak moom ci xayma bi ba ñëpp gis ko mu toog ak moom ba ñëpp xam ni kii cheikh na mohamed fadal la xeetu parfum bi mu daan xenc àddina ñu ngi koy xencu cheikh na cheikh mohamed fadal toog ba mu neex ko mu delluwaat ci biir bàmmeelam ndax cheikh na cheikh mohamed fadal ibnul mamin yàlla may na ko mu dee ci bëgg yàlla axadahu xaalul jazbu bil bukaa i daaimi wala bi sa fiihi sittata ashhurin aw qariban min ha wa ma massahu maradun moom Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadel dafa dund 74 ans 6 mhm. mois yi mu day jooy ñun ko yow looy jooy mhm. mu ni bëgg yàlla mhm. taaliba yeeg doom yi sët yeeg jaam yi ñëpp dajaloo Cheikhna Mouhamed Fadel looy jooy mu ni leen bëgg yàlla bëgg yàlla rek moo tax may jooy léegi léegi euh, euh, doom ji juddu ñu tuddee ko Abul Anwar waaw doomam juddu muy cinquième doom ñu tuddee ko amul anwaar mais ni mu génnee àddina ba am loolu laa lay wax ni loolu moom jomm ko moom cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin parce que shahidu xubbin fi qiyaasi fadlin azamu ajrin na cheikh Saad bu nee na nga bëgg yàlla ba dee ci bëgg yàlla mu ëpp fay nga rocc jaasi xare Badar ñu rey la yàlla ni wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquuna yàlla nee na bul yaakaar ni ñi nga xam ne dañoo dee ci bëgg yàlla dañoo dee comme ñun déedéet ñu ngi ci seen bàmmeel yi yàlla di leen wërsëgal wërsëg googu soxna xaj na ci moo tax cheikh na cheikh saad bu ni wa shuhadaai inda rabbihim yurzaquuna wa yankixuuna yansiluuna ñi nga xam ne génn nañ ci toolu bëgg yàlla ñu ngi ci seen bàmmeel yàlla di leen wërsëgal ñuy ñuy jël soxna ci seen biir bàmmeel di jur yurzaquuna wa yankixuuna na moo tax cheikh na Mouhamed bokk ci góor yàlla yooyu moom Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel baayu Cheikh na Cheikh Saad Bou laa ni la dafa dee ci bëgg yàlla mhm. six mois yi mujj ci dundam moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel day jooy rek ñu ni ko yow looy jooy mun leen bëgg yàlla mu xëcc loxo doomam Cheikh Sidi Ousmane wàcc ci resam ni ko inna kabidi saara fatatan min mahabbatillah mhm. sama res dog na man Cheikh na Mouhamed Fadel ngir bëgg yàlla Pape kii ma lay wax kenn du moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Wadul. moo jur Cheikh na Saad na Cheikh Saad bu. danaan def quarante danaan def cinquante rakka balaa géey bu jullee timis ba pare day def cinquante rakka bi ayatil mansuus waaye bu julee géey day def téeméeri rakka téeméer téeméer yu mu jeexal wàcca ñeenti rakka yu mu jeexal wàcca kaamil téeméeri rakka yi pat ñeenti rakka la koy julli ñeenti rakka yu mu jeexal moom Cheikh na Mouhamed Wadul wàcca kaamil. Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin bu jugee këram di dem ci jàkka ja day wàcce kaamil bu jéejee jàkka ja di ñëw ci këram day wàcce kaamil bu toogee moom Cheikh na Mouhamed Fadil day wàcce kaamil bu soonoo loxo ndey jooram day wàcce kaamil bu soonoo loxo càmmoo ñoom day wàcce kaamil moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin moo tax Cheikh na Cheikh Saad bu ni cheikhi suyuuxi abi in kunta jaahilahu Mouhamadul Fadili dul fadli wal karami xanaa xamoon Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin yàlla may ko moom Cheikh na Mouhamed Fadil waa ji dafa ñëw ci moom ni ko damaa bëgg a mokkal alxuraan te jànguma mu xëcc noppam ni ci kë bàyyi ko ni ko loo dégg mu ni ko wallahi sami'tu qur'aanan tartiila mu ni ko warattilil qur'aana tartiila moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin dafa ndur woon maamam sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw góor yàlla yi dañoo nekk ci jàkka ji guddi àjjuma hmm. moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ñëw ci biir jàkka ji Seydina Mouhamed ñëw ci biir jàkka ji Cheikh na Mouhamed Fadil ibnu Lahbib taalibeem la di turandoom nee na maa ngi xool Seydina Mouhamed di xool Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin mënuma leen a distingue ngir nduroo moom Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadil ibnu moo tax Cheikh na Cheikh Sadbu ni ko qaala Abu Abdul Aziz Saadu abihi lillahi taala alhamdu taarixu cheikhina abul mamini wabnu amini zil ula maamin xawsul wara min batni ummihil baraz baa yëg nga ni cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibnu maamin nekk na ci biiru yaayam naan laa ilaha illa allah ba waa xawdu di ko dégg oh. dégg nga xawsul wara min batni ummihil baraz maamu shérif yi baayu cheikh na cheikh Saad bu laa la bëgg a wax nekk na ci biiru yaayam ba waa xawdu di ko dégg muy wax laa ilaha illa allah cheikh Mouhamed Fadel cheikh na cheikh Mouhamed Fadil ibnu Maamin mm-hmm. ba mu amee juróomi at mm-hmm. isa nastaxillu billahi wa yastaxillu bi zikri da daan ànd ak xalem yi moroom yi di foo waaye Cheikh Mouhamed Fadel moom du foo day fekk benn garab ci suuf mu toog jublu penku naan laa ilaha illallah kër gii nga xam ni kër xaadir la ci laa ilaha illallah lañ leen xam ci bëgg Seydina Mouhamed lañ leen xam ci ragal yàlla lañ leen xam Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Maamin moom ñeenti at mu naan maa lii siwaaka ilaahi jëlis hmm. fakun wakun lii ilaahi anis anta anis yi xay su kuntu mufrada hmm. wa anta unsi fi kulli majma'i ñeenti at quatre ans quatre ans mu naan aw ma ku may wéttali ku dul yàlla allahu akbar fépp fu ma wéttee yàllaa may wéttali waaye fépp fu ma wéttali ko yàllaa may wéttali man Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin ñeenti at ba mu amee quarante ans xutbaaniya bi dugg ci moom fees dell moom Cheikhna Mouhamed Fadil ibnu Mamin mu naan yàlla anta anis yi xay su kuntu mufrada Hmm. fépp fu ma tourné yow laay gis wonte umsi fii kulli majma'i fa maa wallaa nii nay lii min ka matma'i lakinna nii la matma'i la maqna'i bëgg naa la yow yàlla subhanahu wa taala moo tax Cheikh Mouhamed Fadel hmm. dafa doy waar ba nga xam ni moo doon chance addina di Cheikh na Cheikh Saad Bou di texeel àddina moom Cheikh na Cheikh Saad Bou di texeel jàmm ñëpp kado bi ku ko war a jur haatif bi day wër ci àddina naan ko war a daq jamu yàlla ci àddina bàyyi nga ni góor yàlla yépp dugg xalwa Cheikh Mouhamed Fadel dugg xalwa deux minutes mu génn ni maay kaddu bii de man maa koy jur ndax àdduna bi maa fi dàkka jaamu yàlla xoolal li ma la wax rek ci moom yëpp yëpp yëpp moom Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Maamin nee naa la moom la Cheikh ne Cheikh Saad bu ni ñëpp bu ñu dajalee du doon sang yaay seen sang yow Cheikh Mouhamed Fadel ñëpp bu ñu dajaloo di doon sang. Mm-hmm. yow yaay seen sang yow Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel Ibn jur Cheikh na Cheikh Saad bu ponkal nga. Mm-hmm. Cheikh na Cheikh Saad bu amul ku ko sut. min fawqi saadi sama zalla saadi murtafian fa ajaban li saadi sama fawqa samaai sama xanaa xamoon ni oustaz Pape Hann mm-hmm. moom doo nga war a judd moom Cheikh na Cheikh Saad bu ñu jël turam wékk ci asamaan. bindoon nañu turam kaw asamaan. moom doo nga war a judd ñu jël turam wékk ci asamaan. góor yàlla ya bu dugg xalway ñaan. publicité bokk na ci ñaar ñi yàlla yonent bi defal na ko ko waaye defal na ko Cheikh na Cheikh Sadou. ku nekk ngay ñaan di ñaan ngir doon waay juru Sadou bi. Abdou kii ñu war a waxtaane tey. Mhm. yàllaa ko publicité boppam. Mhm. damay faral di wax nag oustaz Pape Hann mosoo gis ku war a judd ñu jël sa tur wékk ci asamaan ku dul seex na Cheikh Sadou. dégg ngeen mosoo gis ku war a judd ñu jël sa tur wekk ci asamaan ku dul cheikh na cheikh Saad Bou asamaan si ah kenn jaralul yàlla mu fi jël tur di ko fa wekk ku dul cheikh na cheikh Saad Bou moom bon dong góor gi nga xam ni mooy borom kaala gi borom amaama bi góor gi nga xam ni dafa jeex tàkk ci ragal yàlla moom cheikh na cheikh Saad Bou kii nga xam ni dafa seey ba jeex tàkk ci bëgg yàlla subhanahu wa taala moom cheikh na cheikh Saad moo war a judd doon biddéew ñu bind ci saadu abi ruya ismuhu fii ala kawkabin maktubin bi saad góor yàlla yépp dugg xalwa di ko ñaan yàlla may ko Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadil waaye xam nga lu garaaw ba ko Cheikhna Cheikh Mouhamed Fadil amee léegi day des pour ñu xam yaayam Cheikhna Cheikh Saad Bou xam nañ baayam mu Cheikhna Mouhamed Fadil mhm. bi ñu xamee baayam baayam day xool ci kaw na bi ban jigéen moo war a jur gi góor mu listixaar yàlla wan ko Mariam di sët sëttu Seydina Muhammad bokk ci wulaadul biir mu bind ko lettre soxna Mariam gàntal mu bind ko lettre fois soxna Mariam gàntal mu bindaat ko lettre troisième fois soxna Mariam ni ko sa ñaari lettre yi jot naa ko waaye damaa bëgg nga wax ma jox ma garanti ni bu ñu juree cheikh na cheikh Saad bu mooy gën ci sa doom yi ma nangu Cheikh Mouhamed Vadul ni ko d'accord wax ma la samay doom waaye àddina moo ci gën moo tax Cheikh ne Cheikh Saadu Abihi ah kenn du moom de Pape Cheikh Diallo kii ñu war a waxtaane tey ah wallaahi preuve preuve baa ngi danga ngaa da teel a ànd ak àll mbir mi dugg la ba yaa ngi ñaq rek wallaahi kenn du ci rek lépp waaye yaa ngi ñaq wallaahi <laughs> parce que Pape Hann ñaqul Assane ñaqul waaye yaa ngi ñaq rek dimension dimension wu ah. Cheikh na Cheikh Saadu <laughs> wa xeertu Chérif moo moo màgg wallaahi parce que nee naa la yàllaa ko publicité boppam. wallaahi sekk. moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. waxeertu judd ci Cheikh na Mouhamed Vadul judd gu rafet. Mm-hmm. muy Cheikh. Mm-hmm. moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. waxeertu. ñett a bokk ndey ak baay ci téeméeri doom yi. Mm-hmm. muy Saadaani. at su adu at Cheikh na Cheikh Saad Bou. bon ba su aadu feeñee. Mm. dañ koo indil Cheikh Mouhamed Vadil mhm. Cheikh Mouhamed Vadil ni leen de kii ku baax la waaye yàlla waxuma kii moom maamin waaw dem leen xool ci ànd bi mhm. boobu Cheikh Cheikh Saad bu ngay sànn yaay mu wasin na ba ñu jël ànd bi bëgg koo sànnee te lañu nar a sànni mooy Cheikh Cheikh Saad bu ñu dem indi ànd bi Cheikh na Cheikh Mouhamed Vadil génn paakaam mhm. xotte ànd bi Cheikh na Cheikh Saad bu jooy mu ne xaw tuuti ngeen suul ki nara a texel àddina Cheikh na Cheikh Saad bu fa muy jooy ma ngay waxtaan ak yàlla naan alayna min arrahmani suwarun mudawwaru allazi maddal arda wa jaala fihi barakatal munawwara mhm. yaa layta lana aw bushra lana aw man habbana wa habba saadana wa saadal xalqi xaatibatan kooku moom mooy maamu shérif yi mhm. moom nag mu dem ba am quatre ans teel a bëgg yàlla moom cheikh na cheikh Saad Bou mhm. teel a bëgg yàlla teel a aspiré yàlla teel a am amour divin di xencu rek yàlla génn moom cheikh na cheikh Saad Bou ni yaa sahiba ya daani inni ubaydun duaani zajrun bi nassil qurani an malafati nufuusi ô mes deux compagnons laissez-moi ô mes deux compagnons laissez-moi yaa saaxiba yadaani ñu ne ko lu tax mu ne inni uhibbu yaa saaxiba yadaani inni ubaydu daani man jaamu yàlla la zajrun bi nassil qurani yàllaa ma jàjji jox ma alquran an malafati nufuusi cheikh Saad bu ni wa innani qad daani car en fait j'ai été par ma peur man Cheikh na Cheikh Sadbou mhm. xaw fii min yow mi tadaani ngir ragal gi ma ragal bis pénc an xubbi lëhwil xawaani mhm. yàlla nag jàjj gi ma jàjj daf maa moytuloo puukarewu borom alal yi an ma lafaati nufuusi bakkan la muy jàpp ngir mun koo mun koo teree jaamu yàlla mhm. xam nga ni bakkan di nga ko topp ba mu ba tere laa jaamu yàlla moo tax Cheikh na Cheikh Sadbu lim ñu jox muy laa ilaha illa allah mhm. mooy armam ci la mhm. defaree góor yi mhm. shahadatul xubbi tusammal kubra wal qatlu fi ljihaadi huwa sugra kubrahuma min chartiha almuxaalafa li nafsi is min tabiiha almujaalafa min gayri ruxsatin wala ida ma tatmain moo tax mu ni rujuuna min aljihaadi al asgari axiruhu ila aljihaadi al akbari cheikh na cheikh Saad bu nee na sànq li nga doon wax Cheikh na Cheikh Saad bu da koo traité mm-hmm. dafa ne jóge nañ ci jihaat bu ndaw bi mm-hmm. ñu ni ko ban mooy jihaat bu ndaw bi mu ni jàmm bi ni muy toppee bakkanam jàmm bi jihaat bu ndaw bi mooy di xare ak arme rujuuna min al jihaadil asgari axiruhu ila jihaadil akbari hmm. cheikh na cheikh Sadbu ni jihaad bu mag bi mooy nga not sa bakkan orienté ko teg ko ci ihdina siratal mustaqim ñu ne ko cheikh na cheikh Sadbu loolu lan moo ci gën a gaaw mu ni laa ilaha illa allah jihaaduna huwa jihaadul akbaru cheikh Pape Oustaz wa tayibi ruuxi hmm. bi tiibi haylala war na wéeral qalba bi nuuri basmala jihaaduna huwa jihaadul akbaru xam nga maam Cheikh na Cheikh Sadbu xeertu baat bii mooy jihaad bi nga xam ni moom la yàlla joxoon sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jihaaduna huwa jihaadul akbaru ni ko fas naa bi ma tuumaru asdud bihi adduda wa daali moo tax cheikh na cheikh Saad bu سحرهنا هيلنا تكرروا بك معاته يهدي مبردا كبدا على خلاف أتانا من ذوي القدم جهادنا هو جهاد الأكبر جهادنا هو جهاد الأكبر Mouhamed Wadul maamu Cheikh Mouhamed Lamine Cheybata nee na jihaaduna suñu xare huwa jihaadul akbar mooy xale bi gën a màgg silaaxuna haylalatan tukarra silaaxuna haylalatan tukarra jeex na Cheikh Saad bu nee na suñu arme mooy laa ilaha illallah ji ñu jël di ko dàkkee noonu yi kalimatul cheikh na cheikh Saad Bou nee na ku texe doo wax bii di laa ilaha illa allah moom la ñu tudd cheikh na cheikh Saad Bou ku texe képp ku yàlla gërëm képp ku bëgg ci laa ilaha illa allah wax leen wax yi yàlla qaala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu gafara allahu lahu alf alf sayiatin wa aataahu alf alf xasanatin wa banaa lahu baytan fi ljanna sayidina Muhammad nee na képp ku wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah yàlla dina la jéggal ay junni junni bàkkaar nee na képp ku wax laa ilaha illallah yàlla dina la bindal ay junni junni tiyaaba wa hiya laa ilaha illallah ëllëg yawmal xiyaam yàlla tabaxal la ay soto àjjana moo tax Cheikh na Cheikh Saad bu ne di leen wax laa ilaha illallah wa hiya laa ilaha illallah moo di jërëjëf barkallah alayka ma qada lii nag ci jamono ji nga xam ni coronavirus la. xëy hmm. xëyilo sabran jamilan jamono ju nekk Cheikh na Cheikh Saad bu jàngale na ci. xam nga ci jamono ji coronavirus la ñuy la ñuy dund. Cheikh na Cheikh Saad bu ni la. balaa la. Hmm. bu yàlla wàccee balaa wala musiba. Hmm. iza qada allahu alayka ma qada bu yàlla dogalee lu mu dogal ci yow. xëy lahu sabran jamilan gungee ko muñ gu rafet gu ànd ak ngërëm ñun ñëpp xam nañ ni jamono ji coronavirus la. wallaahi sànq rek wax nga ni semaine bii am nañ fukki nit ñu ñu génn àddina. wallaahi te muy balaa bu metti ah oui Cheikh na Cheikh Saad ni la. gis nga dafa bëgg yàlla moom Cheikh na Cheikh Saadu. dafa gëm yàlla moom Cheikh na Cheikh Saadu bi. dafa jeex takk ci yàlla subhanahu wa taala moom Cheikh na Cheikh Saadu bi. mu ni la wa jëmmi nafsa anil hawa inda xululil basi Cheikh na Cheikh bu nee na boo bëggee egg ci yàlla ngalaabal sa bakkan téye ko ci lépp lu neex ak lor mu ni innal musibata taji bil kufri illam takun maqrunatan bis sabri Cheikh na Cheikh Saad bu ni la an nafs wa dunia habibataani laka wa lillahi gaduwataani borom ni zaata saalihin bàyyi Cheikh nee na li mën a gaar nit ba du egg ca yàlla muy bakkan li la mën a indil problème muy bakkan bakkan rek moo la mën a empêcher pour nga dundu yàlla gërëm la wallaahi Cheikh Saad bu nag ni la boo bëggee yàlla gërëm la ngalaabal sa bakkan teeku ci lépp lu neex tara unaasal sukaara wa ma hum bi sukaara wa ma hum bi sukaara lakin azaaba usaara lakin azaabin ashaara an ma la faati nufuus an la faati nufuus sa baa xam nga ni kii ñuy waxtaane génnul ci benn daar moom amul kenn ku ko jàngal ñeenti at la am sànni aliwu moom cheikh na cheikh Saad Bou yàlla allama alquran mu mun a jàngale alquran mu ba fa ustaas ba ni ko yow moom wax dëgg yàlla dafa tuma ci yow dara comme que yàlla mën a jàngale alquran maa ngi dem ci yàlla déggal di barkallah yàlla mu mun a jàngale alquran waaw maa ngi dem ci yàlla ñu ne ko noo demee ci yàlla mu ne woon naw mi xawdul xaybi in kunta naiman wa jalla jalaalul xaybi an xaali nawmiya juróom-ñaari at la toll moom cheikh na cheikh Sadbu naan bu may nelaw ñu yaakaar ne damay nelaw boobu nelawuma lépp luy kumpa maa ngi koy surveiller Oustaz Assane góor gi moom bàyyi cheikh Talibou ya moom bàyyi cheikh Sidi Bouya moom bàyyi cheikh Bunun moom bàyyi cheikh Atxaana moom bàyyi cheikh Alwali moom cheikh na cheikh Sadou Obihi juróom-ñaari at laa wax de yaa ngi def jardin wala sëy mhm. moom cheikh na cheikh saad bu naan isa kamulal aqtaabu fi kulli mashhadin fa fi zaati ayni zaati kullu kamaliya juróom-ñaari at cheikh na cheikh saad bu naan bu góor yàlla yi di réunion ci au n'importe quel lieu céleste bu mu mun a doon tant que teewuma présider réunion bi seen réunion yi di jot sept mu naan wa ruuxiya ruuxul kaw faazat bi nashriha wa mashrabuha min ayni mhm. tahqiqi nuuriya moom cheikh na cheikh Saad Bou juróom-ñaari at mu naan boo jëlee ruux doomu aadama yëpp teg ci balance jël sama ruux man cheikh na cheikh Saad Bou teg ci balance sama ruux gën a diis ruuxu doomu aadama yi juróom-ñaari at moom cheikh na cheikh Saad Bou mu naan wa qalbi lil anwaaril guyubi mudabbirun mhm. wa fi hadratil qudsi aqwaata aatiya bi muy wax lii mi ngi am juróom-ñaari at juróom-ñaari at oustaz Pape Anne mu naan waqal bii lil anwaaril xuyubi mhm. lépp luy secret yàlla dëxëñ na ko ci sama xol mhm. wa fi xadratil qudsi aqwaata aatiya góor yàlla yi bu ñuy dem xadratul qudsi dañuy glissé waaye man bu ma fay dem damay taxaw damay am dëgg barkala dañuy ñëwaat Cheikh Mouhamad euh, yaakaar naa duggaguñu sa sa Cheikh sax du abi fi <laughs> wax xayartu mais fi mu nekk nii xol yëpp yëpp yëpp tooy na ñëpp ñëpp ñëpp bëgg nañ ndax waxtaan bi ni mu tëddee waaye ni mu àndee li nga xamante moo di pédagogie waaye xam-xam bu sell bu leer fa tabarakallahu muhammad ah. yal na yàlla yokk xam-xam bi kon dañuy dellu studio 1 ak Baye Cheikh mais na sax bala dellu mhm. euh, ñu ñaanal suñu Baye Alaaji Ousmane Diagne mhm. nga xam ne doo tudd tarixatul xaadiriya doo ko tudd fii ci réew mi te boole woo ko ci defe naa rawdu Cheikh na Mouhamed Fadal moo ko moo ko taaral defar moo ko tabax tey jii yal ko yàlla yal na ko Cheikh Baye Dior teeru amiin amiin waaw suñu Baye eh, Alaaji la ca Makka Cheikh la ca Nimzaat Adja Dior Diagne suñu jigéen sàggan Alaaji ah, ah, Pape Cheikh macha allah Baye Ousmane Diagne laa doon Cheikh Cheikh Ousmane Diagne la moo tabax moo euh, tabax moo tabax mausolée bi. moo tabax mausolée ba mu ngi tabax mausolée bi Baye Diop yàlla yokk leer. amiin amiin yàlla kawel aljana. ndax dafa am ñoo xam ne comme ni nga ko waxee. am na ñoo kilifa yoo xam ne soo leen tuddee rek. historien la sa xel am si ñu mu dem. <laughs> ku mel ni Cheikh Ousmane Diagne nga xam ne kenn la woon si euh, tariqa muri euh, qadriya mm. doon si jàmbaar ya nga xamante ni kenn la ko woon mm-hmm. yal na yàlla yokk leeram fa tabarakallahu te taas ñu si barkeem waaye kenn mënul wax euh, njabootu Cheikh Saadu Abihi mm-hmm. te sa xel du dem Cheikh si Cheikh Issa Thiaw bu yoof nga xam ne keroog bi mu génnee àdduna mm-hmm. shérif yi ñoo fi ñëw jël sa ko yóbbu ko ngumba foofu lañ dem ñu wax ñu ne fa lañ koy denc bi ndax nu mu meloon si kër gi ak doomam Cheikh Matar kon Baye Cheikh mm-hmm. euh, waa studio euh, ñu delloo la kàddu gi rek ngeen jël insha allah ñu bàyyi Mouhamad mu suufle tuuti insha allah ñu ko desee dellu sawaat si plateau bi dafa teel ànd ak àll euh, moo tax mm-hmm. mu ngi ñaq ci studio boobu ngeen ne clim baa ngi tax tàkk ñaxu leen waaye moom ñax na Sénégal yëpp béggagum te daanaka développé guñu bu baax mm-hmm. li nga xamee ni wàcc na ko ngir ñu waxtaanee góor gi nga xame ni Euh, mooy euh, Cheikh na Sadbu euh, bun Cheikh Mouhamad Vadal ku sañoon nga dëkk ci dëkk yàlla jox la jagle bi jab jagle mag ñi te loole bu ngeen seetloo fan yii yëpp dañu ko def série Euh, ci télévision Futur Média di ko waxtaanee euh, ci euh, quartier général bi bu leen fàtte ni ndimbal yi itam ci la bokk dañu leen koy baaxee à tout moment saa yu waxtaan wi neexee rek mën na noo pause jël leen ci téléphone yi ci 88 628 22 22 wala 88 628 76 76. ak 88 628 65 65 ñu ngi fi jot nag ay yóbbante yu bëri yu jóge ci ay njaboot euh, yoo xamee ni seen yaram tàng ñu ngi joxe àddi yeeg yooyu xam naa bu ca kanamee naa euh, joxe yóbbante yooyu le euh, jagleel ko sunu gan yi tey mais en attendant mën nañ cee profité bu ko defee ñu jox leen ci ndimbal yi nga xam ne ni ñoo leen ko digoon ci émission bi donc 88 628. 22 euh, 22 wala 88 628 72 86 ak 88 628 99 80 donc ñu euh, jël euh, quelques téléspectateurs laataa ñuy àggali Cheikh Modou ak ñi mu àndal ci mbaar ak njool li rek da ngeen di seral xol waxatuma la ak boo déggee li nga xamee ni ñoo ngi koy nafar ci biir seeni sikar loolu mooy mbégte mi ñu nar àndal tey ci guddi gi ci télévision Futurs média alo di aleykum salaam wa kooku. man awa laa awa. awa naka. awa Mba. fooy wootee. Mermoz. ah Mermoz première porte wala deuxième porte comme disait la maman de Kantian. première porte. <laughs> yaayu Kantian sama xaritu woyu ba Kantian la tudd. yaay ja boo ko dee la. première porte ban Mermoz première ou deuxième porte yaa ngi deuxième ou première. première porte. très bien euh, première porte nu ngeen def mbas mi mbaa yéen ngi moytu di protéger wu di sàmm xale yi ak mag ñi ci kër gi. waaw macha allah yal na yàlla sàmm leen du ma la téye lu yàgg xaalis bi wala dund bi. xaalis bi. très bien ça quartier général may na la kon ñaar fukki junni yoo xamante ni ndimbal la ci période bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaa ko moom ñu ngi lay gërëm bu euh, baax di ndokkeel euh, waa kër Cheikh Boubacar Diouf Cheikh bu Diouf euh, Cheikh Abdou Khadir Diouf Madina Fajal ñoom itam ñoo ngi seetaan ñu ngi leen di ziar bu baax di ndokkeel ajot Yacine Diop ak njabootu Cheikh Dethalaw yëpp ajot ki ne Lam suma yaay jooju yaayu Ndey Caam ak Papalo moo yónnee yóbbante ku ne dégg nga li mu woy jagleel ko Cheikh Déthié Law ma njaari Borsa Ndiaye ma def ci yu ne euh, moom nee na mu ngi rafetlu euh, jotaay bi euh, di ndokkeel bu baax ñoom Cheikh modu Mbuub tey ndokkeel Adjopti Yacine Diop nga xame ni moom it ci njaboot gi la bokk Maam Fatou sekk ca Amérique ak suñu yaay Cheikh Yacine Doucouré kenn du moom waaw Cheikh Yacine Doucouré Euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax xam naa daañ jëm jokkoo ak moom ndax def émission waxtaane sat bu euh, ba mu jeex euh, te jokkoo ak moom Moussa Pape Anne du baax ndax Cheikh Yacine Doucouré moom ku ne xam ni bis bu jot bu sañoon day tàntal yaa rasulullahi wallaahi Cheikh Yacine Doucouré mm-hmm. wallaahi mm-hmm. moom moom mu ngi rafetlu jotaay bi yeneen yóbbante yi naa ci ñëw léegi ci guddi gi surtout Cheikh Dethialaw yi waa Hollande yi ñoom ñëpp actuellement ah, ñu ngi rafetlu ah wallaay mhm. ñëpp ngi ñu ngi rafetlu ñu ngi rafetlu jotaay bi Fifi mu ngi Hollande euh, surtout Cheikh Déthié Law Seck la euh, Fifi ca Hollande ñu ngi koy euh, ziar bu baax di ko ndokkeel nañu jëlaat beneen téléspectateur laataa ñuy xuus àggali ci kii ñuy waxtaane tey Cheikhna Cheikh Sadbou wa xayaartu allo sanguk maam Sira Konaté madame Thiandoum allo kooku maam Thiandoum allo commissaire lañ ko dégg. alkaati yi lay seeyal kooku. maa ngi lay dégg. allo ko bëgg. yow la kan. Astu Fay. ah am naa xarit bu tudd Astu Fay de waaye teng teng faay laa koy woowee. Astu Fay nga ni. maa ngi wootee jàmm gën. ah yaa ngi jàmm gën naka waa jàmm gën. ñu ngi a ngi ci jàmm bu baax. waa ñu ci jàmm bu yéen a ngi moytu di protéger xale yi ak mag ñi ci kër gi. waaw. waaw fa la jàmm gënee macha allah foofu defe naa amul cas de jàmm gën Modou Ndiaye mi yow information yi. amul problème d' accord euh, euh, loo bëgg ma jox la euh, dund bi wala xaalis bi. <laughs> ah man de xaalis baa ngi ñëw il faut ñu xottil xale yi. nga ni. korite baa ngi ñëw il faut ñu jëndal xale ay ah yére ndeysaan sama xarit bi nee na ma. bu ñu ñàkkee njëgu masque bu ko te jotee du ñu ñàkk toof bu ñu jënd pour xottil xale yeeg piis waaw bien kon quartier général may na la cent mille francs def ci lu la neex ñaar fa baax na jaajëf ñu ngi lay gërëm bu euh, baax euh, kon euh, ñu àggali ba tey ak téléphone yi hashtag bi nag bu leen ko fàttee xam naa ni tey moom mu jaay day nekk Jean sat bu rek ndax àddinaa ngi réagir ci guddi gi nga xame ni moom lañu ñu ko euh, jagleel ci euh, télévision Futur euh, Média di ndokkeel bu baax nag njabootu Cheikh Diakha Cissé baayu Babacar ak ñoom Ami Collé Ami Cissé toute la famille Cissé Babacar ak njabootu Cheikh Diakha Cissé yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ndax xam naa ni guddi gi seen guddi la ndax ki ñu ko jagleel jar na ko di ndokkeel itam njabootu Baye Mbagnick Seck Euh, moom it euh, ku ne xam taxawaayam ci yoon wi euh, Juma Sow borom Baxayda shop moom it joxe na deux cent cinquante mille ak dix mètres jasin jasner loolu tam bokk na ci yóbbante yi naa ko transmettre ak yeneen i million yoo xamante ni ñoo ngi koy jot ci ay yóbbante tey jii ci guddi gi ak nga xamante ni moo di Mohamed Seck te ba léegi duggaguñu ci détails yi nga xam ne ni bëgg nañu koo xam ci ku tedd ki Oustaz Pape Anne. Ah, Alaaji Pape ci benn détail. moom daal euh, Muhammad si naasan boo gisee fi mu tàmbalee mooy wax nañu kanay rasulullahi wax nañu kanay maami Seex na Seex Saad bu euh, wax nañu euh, kalimatu laa ilaha illallah waaye wax nañu ki nga xam ni moo meññ Seex na Seex Saad bu mooy Seex na Muhammad Fadal nga xam ne moom kéemtaan kéemtaan ci moom la yem mm. Mm. mais kéemtaan bi Seex na Seex Saad bu ñëwee nag si naasan loolu mm. moo moo yéeme moo jéggi dayoo Euh, bi ngay tàmbali léegi. Euh, yaa ngi xalaat Cheikh Thierno Ndiaye. waaw nga xam ni bu doon sa sago bu doon suñu sago euh, jotaay bi dañu koy bokk ak moom nest pas Assane Mm-hmm. ma bëggoon itam parallèlement rek balaa ñu gën xuus ak euh, Cheikh Mohamed Seck. Ah. Euh, moom it mu participer. waaw euh, sama xarit bi dama koy tooñ bërki démb naan ko xeelu sax ci sot la bokk. <laughs> waaw te ñun fii Sénégal moom amul murid amul xaadra amul laayeen ñun ñëpp far. Mm-hmm. voilà li xale yi naan ñoo far. ñoo far ñun ñëpp a far. Mm-hmm. ay xool rek démb suñu papa li mu def daf ñoo daaneel ñun ñëpp. tey nga xoolati Mohamed Seck réaction yi. mu ngi jóge ci ëtt yëpp. suma benn mbokku taalibe nga ñoo bokk nationalité Touba. Soda Kase mu ngi rafetlu waxtaan wi. Euh, ci dimension yi góor yàlla yi am. Mhm. waaye ci pédagogie yi waxtaankat yi ñuy invité ci quartier général bi am. Mhm. ngir permettre téléspectateurs yi ñu comprendre parcours yi et c'est mhm. important. donc Cheikh Thierno Ndiaye euh, papa ñu ngi lay nuyu. di la ziar man nee naa oustaz Pape da ngay tappale feebaro da ngaa ragal alkaati yi ndax couvre feu bi. <laughs> Euh, maa ngi leen di fay di leen ziar bu baax di leen wax wa rahmatulahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Thierno. plateau bii nag nuyoo bi dama koy yëkkati rek jox ko ki nga xam ne moom na yàlla baax mu dirigé ko muy El Hadj Cheikh Abdou Diallo. jërëjëf papa maa ngi lay ziar bu bi ñëpp nag. ñoom ñëpp dinañ ci jot. Ndiaye. waaye jiital ci ahli bayti nabi waa kër Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi toog ak sama jarbaan. Mhm. mu tuxal këram ñëw sama kër di Adja Cheikh Yaman Albis. Mhm. Saba. vice présidente à l'assemblée waaye Baye Fallou Cheikh na Cheikh Saad. xeertu Chérif. di taalibi Cheikh Xutub. waaye kii ngeen di waxtaane Pape Cheikh. Hmm. 1848 la gane àddina. Mhm. l'esclavage a été aboli. les murs de Berlin ont été tombés. Mm-hmm. ci yàlla si woon ki ñëwagul. concours la ko def ci nitu nitu boppam yàlla yi nitu yàlla yi hmm. yëpp hmm. waaye maa ngi yéen duñu sori waaw hmm. Cheikh mënoon nga may jël si boo ma jël si woon bu sama bakkan day see tax ci plateau bi doy na jaral na ma parce que sama lépp Cheikh na Cheikh Tadou la wallaay wa xeertu doo ko ca mosoo ko caaxaane ambassadeur u na Cheikh Saad Hmm. ñuy wax naa ne Cheikh na Cheikh Fall. Hmm. li mu meññ lépp nuyu naa leen. waaye Cheikh Aya mu Cheikh Taad bi mu Cheikh na Cheikh Saad bu xalif général. yàlla na fi yàgg xaaral xalifa hmm. Seydina Mohamed Fil Aam. maa ngi koy ziar bu wér te ñaan yàlla dolli wéram. guddal fanam moo xalif généraux yëpp. amiin. Pape Cheikh mbaa xam nga ni maam Cheikh na Cheikh Saad bi wa xayartu jullit yëpp ko bokk wallaay mm-hmm. wallaay xam nga sunu maam yi ñu ñu gindi ci maam Cheikh na Cheikh Saad mm-hmm. dégg naa ngeen di wax léegi El Hadj Cheikh Soumane Diagne adieu Cheikh na Cheikh Saad bu waaye ay doomam ju mu dénk léppam ni ko consul supérieur maa ngi wuy ji yàlla sama borom mu gaaw mu gàtt waaye kaay maa yaral sama bopp hmm. yàlla la jox la lépp muy El Hadj Cheikh Ousmane hmm. maa ngi koy ziar macha allah maam Cheikh Ahmadou Bamba moo ñu wax ni Cheikh na Cheikh Saad bu xawsu la ca xawsu ñetti téeméeri at ba ñetti téeméeri at lañ ko yàlla wàcc ci kaw tuuti maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu sunu maam ju baax jooju ñu ñu mooy jantu diine samsu diine moo par Cheikh ndax na ñu gindiw ñu ñu ci ma maam Cheikh na Cheikh Saad bi nga ñëw léegi mu jàkkaarloog yow léegi raxas li nekk ci sa biir yëpp def la ngay walu yàlla kama xale boobu toog ci sa wet du Mohamed Seck Mohamed Seck maa maam na Cheikh Saad bu moo ko def xutbu rabbaani nga xam ne nag mooy kër xaaji moom Cheikh na Cheikh Saad bi ñu ko fii mooy sa njëgim siraat yow Cheikh Yérim hmm. yow Cheikh maa ngi lay xamal ni séqu maag yow lenn ëllëg yaay ramm ku bokk ci yow ak ku jokk ci yow ak ku dëkk ak yamu fa nan la def ak sunu maam Cheikh Béthio buur bu mi deccee fu njoogu di sa maam mu ñëw tuxal loolu lépp ci yow def la ngay jur wàññi buur bi Cheikh Ahmed Lo bala may ñëw Ndakaaru dañ di ko ndax xam nga Cheikh na Cheikh Saad bu mu ne xamuma te moo daan téye ci ngalaagu Cheikh euh, gileemu seex na Cheikh Saad xamoo ko mu ne xawuma ko ndax musuma koo xool mhm. waaye bu ñu tàllalee kaala may lus yi mu jóge ci xayma gi dem ci gileem gi lu jóge ci kaw bu doxee dee lu dox ci suuf dee lu dox ñu jor dee lu dox càmmoñ dee yaramam yëpp nag karooloo te bu ci ne dina tudd tur yàlla wu bokkul ak morom kooku mooy maam Cheikh na Cheikh Fall. wallaay Ndiaye. Pape Cheikh mbaa ràññee nga ne sa maam Cheikh Ibrahima sa maam Cheikh moo leen defal. macha allah jërëjëf waay oh. mbaa ràññee nga ni sa maam Cheikh Ablaye Samb mii ci ngor moo ko defal. wallaahi. mbaa ràññee nga ni sa mbaar mi nga xam ni ñoo nekkul jolof doom ay pël moo leen wax ni gouverneur général du man ak yow tàgguwuma la dama la yëgal si maa ngi jëm maa ngi jëm ca pël ga ñu ko pël gi nga jëm dañoo am seen autonomie bopp am seen indépendance ay ceddo lañu tey mun ko ceddo mun ko ceddo gi tax may dem ci ñoom defar ñi xam ne dañoo nar a yàqu. xam nga ni boo xam nga ni boo ñëwoon fii toj Ndiaye. ko ak ñoom fii it sàmmiwuñu baatu laa ilaaha illallah. macha allah. Pape Cheikh Mba ràññee nga ni pël yooyu. yaa Pape Hann ak Oustaz Assane. Hmm. ak ñoom ñi ngeen bokkal plateau bi. Hmm. yooyu yëpp jaay. ñu seeni jur ñoo wane Cheikh Saad bu ñoo wan Cheikh Saad bu seeni borom ñoom pël yi. waay laay ndeysaan jërëjëf ceer ci xayma bi ne. ndeysaan. pour mu mos a tëmp xaymaam leer gi day far ba dugg biir asamaan. ambassadeur. état hmm. si jëf. jërëjëf. jërëjëf Cheikh Thierno jërëjëf papa. dañu tuxu. jur gi buddi seen i gétti. bu mu ñoo fekk si maam si naan Cheikh Baar. jërëjëf xeertu macha allah. quartier général. day quartier général day Baye Thierno Ndiaye. ñu waxatu ñoom ñëpp. nekk taalibe Cheikh na Cheikh wa xeertu wa xeertu. jërëjëf oh, dem na. Cheikh Thierno Ndiaye ñu ngi koy gërëm bu euh, baax. macha allah gis taxawaayam ci euh, njabootu Cheikh na sat Sadbu. léegi nag defe naa mën na nañu àggali ak euh, Mohamed sekk damay damay fàttaliku maa ngi wax sànq ni Cheikh Modou Mboub yàgg nañ ci lakkal. Mhm. Ngone Ndiaye géwél itam tout le temps daf ma doon sonal invité Mohamed Seck surtout Cheikh Yirim Numbaan la daa mën waxtaanee Cheikh na Cheikh Sadbu ma ne ko bu matee rek dinañ ko matal incha allah donc moom it xam naa. Euh, fa mu nekk euh, euh, xolam war war naa sedd ci cofeel goo xamee ni am na ko ci Mohamed Seck mi nga xamee ni tey mhm. moo ñu defal honneur ma fàttaliwaat leen ko ñëw ngir ñu waxtaane Cheikh na Cheikh Saad bu waxee du xaj ci quartier général waaye daañu jéem mhm. am na yeneen i kilifa yoo xamee ni xam naa ni à tout moment mhm. ñoom it bëgg nañu ñu jël ci quelque ndax ñëpp duñ mën participer nag ci guddi gi waaye dinañu tànn rek ñoo xamee ni peut-être du mën ñàkk ci jotaay bi li nga xamee ni ki ñu ko jagleel yaawu saas ma waxati ko rek comme ay programme télé xajuñu ci alaaj pap mm-hmm. xajuñu ci xajuñu ci plateau xajuñu ci at gur yàlla yooyu wallaahi maa sha Allah dañuy jël lenn ci ñoom rek lenn ci seeni euh, li yàlla def ci ñoom nu mm-hmm. waxtaane ko mm-hmm. ndax suñu cofeel gën a dolli ko ci ñoom ndax ñu gën leen roy ci jukko ju tedd gën leen roy ci mbaax gën leen roy ci bëgg yàlla gën leen roy ci bëgg Seydina Muhammad gën leen roy ci jubóog suñuy mbokk gën leen roy ci tabe Mm-hmm. ngën leen a roy ci dox ci mbaax mm-hmm. kon yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla yàlla mm-hmm. fayal ñu Cheikh na Cheikh Saad bu Mouhamad Fadal euh, di nuyu Cheikh Issa Dem bu an Andem ñoom xaalis Jaañ poleel ñoom ñëpp ñu leen euh, léegi nag euh, sénateur yow laay bàyyi kàddu gi bu ko defee nag beneen question bi nga laaj ko Mouhamed Seck jërëjëf oustaz Pape jërëjëf Baye Cheikh ci studio bale ak réaction yi ni mu demee boo xoolee Mouhamed ni mu indee waxtaan bi mooy que ne jikko ju rafet rek la ñuy mhm. nawee nit mhm. ndax jikko yi mu wax yépp ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam setam mhm. bii ñuy waxtaanee di cheikh saxdu abihi wa xayartu ak way juróom bu baax wa cheikh mouhamadul fadal wa xayartu ñoom ñëpp moom lañ ko roy ba mu jeex ndax dañ ne nit ki soo ko bëggee rek da nga koy roy waaw law kaana xubbuka sadiqan la ataatahu ñu ne lu tax mu ne inna li man yuhibbu mutiiu nit soo ko bëggee da nga koy roy waaw moo tax ñu naan eh, bu fekkente ne bëgg gi si làmmiñ rek la yam te cër yi jëfee ko yaakaar naa ne loolu day nekk la nga xamante ni du ko tax am du ko tax a am solo ñu siy ziar taalibe euh, euh, euh, Cheikh Saadou Abiy yëpp. ku mel ni Cheikh Mouhamad Mbay Pikine Rue di taalibe Cheikh Arqaana moom mu ngi nuyoo bu baax di yóbbante ziar waaye Mouhamad. waaw Cheikh Saadou Abiy. Mm-hmm. waxa mm-hmm. duggam si réew mi naka la dem. Mm-hmm. fii si senegal yàlla yàlla fay la barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh na Cheikh Saadou. waxa yartu. duggam ci réew mi dafa doy waar mhm. ndax dafa jóge ci ci lu màgg ba dugg ci réew mi mhm. moom Cheikh na Cheikh Saad bu ëb yi waxa waa quartier général ak waa àddina mhm. ni mu duggee Sénégal laa la bëgg a wax xam nga moom nag dafa teel a mat moom doomu Cheikh Mouhamed Fadil daa teel a mat nee naa la ñeenti at la am ni yaa saaxiba yada aadi nee naa la am na juróom-ñaari at wax wa ruuxiya ruuxul kawni fasat bi nashriha wa mashrabuha min ayni taxqiqi nuuriha nee naa la am na fukki at ba baaxa ni ko matlaul garbi laax way xakka fiihi saadu xayrin muslaaxa saadu abi saadu xayrin yun ma illa kulli saadin zaxiril yammi aryax yi nabi moom maamu shérif yi ba baaxa da koo xool taalibeem la ni ko yow daal cheikh na cheikh saad bu jaaxal nga ñu oustaz Assane kii ma lay wax oustaz Pape Hann dafa wane ni chance la parce que avant sa naissance avant sa naissance avant la naissance de Cheikh na Cheikh Saad Bou laata Cheikh na Cheikh Saad Bou di juddu. addina dafa yëngu woon. Mhm. kenn ku ci nekk xam na ni avant 1848 adduna dañoo dañoo nekkoon ci guerre nekkoon ci xiif. Mhm. ñu sonnoon ñu nekkoon ci famine. 1848 la Cheikh na Cheikh Saad Bou juddu. guerre jeex. ñu goreel jàmm. développement machinisme am. boo mënee julli léegi sol yére bu set santal cheikh na cheikh Saad Bou. dama ni boo mënee julli nga taxaw ci sijaada santal cheikh na cheikh Saad Bou. lii nag jàngale bu sori la boo xamante ni ñëpp koy dégg. Mm-hmm. fii TFM la. Mm-hmm. te cheikh Aya doomu cheikh bu Bouya. Mm-hmm. moo garanti woon tele bi. ni télé bi mooy sut ci télé yi. mooy gën a siiw ci tele yi. sama baay ko jottali cheikh Baye cheikh Seck keroog defe naa ne mille 1200 t-shirt. la borom tele bi jël jox ko Cheikh Aya ibnu Cheikh Talib Bouye. wax tiset ya man amoon naa ca. kon looy wax ci TFM rek na wóor. dama ni. Mhm. Pape Cheikh kii juddu di Cheikh na Cheikh Saad mhm. dafa wane ni chance la. xam nga Saadu c'est la félicité la chance le bonheur. Ah, waaye nag Saadu ëbbi mooy la chance de son père. Saadu Abi. Ah. waaw la chance de son père. mooy Saadu Abi. Saadu Abi mooy chance su baayam. Ah. góor gi ni ko waaw dëgg la yow yaay sa chance su baay waaye yaay chance su àdduna bi yëpp. wallaay maa Saadu Abi wa Saadul xalqi xaatibatan. xad xaadat bi lu jazan laysa turaasu huwa alkamaalu. Mhm. wa huwa xaqu naailuhu laa abtaxi rutaban illa alladi fawqa daa. Mhm. kooku laa ni. Mhm. dafa am fukki at. ñu ne ko l'océan mystique sans rivage. c'est toi Cheikh na Cheikh Saad Bou. l'abreuvoir de toute choisie c'est toi Cheikhna Cheikh Sadbou wa xeertu la chance de toute existence c'est toi Cheikhna Cheikh Sadbou wa la chance divine c'est toi Cheikhna Cheikh Sadbou naala maa naala fii sibaahu wala maa yardu asharan madad lahu min sinnihi mhm. ba mos ngaa dégg lii Oustaz Pape Hann fukki at la Cheikhna Cheikh Sadbou am mhm. yàlla dajale yu yi baax yi nekk ci àdduna bi yépp jox ko baa xam nga ni moom Cheikhna Cheikh Sadbou wa xeertu ndeysaan dafa seexal Cheikh Ahmad Diop gàbb gaawaan mm-hmm. Cheikh Ahmad Diop déglu mox la lu garaaw day jóge gaawaan naaw ba Makka la ngaa mu ci kaaba gi mm-hmm. yóbbul ko Cheikh na Cheikh Saad bu kaaba gi tawaaf Cheikh na Cheikh Saad bu mm-hmm. Cheikh Ahmad Diop gàbb gaawaan jëlewaat kaaba gi Nimjaat naaw déposé ko Makka naawaat ñibbi gaawaan waaw Cheikh na bu da koo seexal jox ko sirru tayraan Cheikh gab Diop gàbb gaawan dinaaw seen Cheikh Saad bu moo ne woon atuufu bi baytillaahi wan naasu nuwumu kaba taafa baadal qawma fi sirri wal jëhri wa zaaka xubaydal yawma wal yawma rubbama ataaniya baytallaahi fi mawdiin yajri atuufu dinaa tawaaf ñu ne ko lan mu ni baytullaahi néegug yàlla gii mhm. wan naasu nuwumu te bu ma koy boobu nit ñaa ngi nelaw mm. bul fàtte ne yàllaa waxoon maamoom sayidina muhammad subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barak na xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al basir maqaama boobu la yàlla mayaat cheikh na cheikh saadu abi muy jógee xawdu di dem ba makkatal mukarrama mm-hmm. ci ci ci ndaw mm-hmm. te boobu waa xawdu du ñu yeewu mu ni wa zaaka xubaydal yowma lii ma lay wax jiitu na tey waaye tey wal yow ma tey rubbama jombul ataani dina dikk ñu ne ko lan mu ni baytallaahi kaaba gee ca màkka fii mawdia yajri buy ñëwaat di ma ziyaar man cheikh na cheikh saat bu day yàkkamti ndax bu ma daan dem ci moom damay daw dégg nga te boobu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nimsaat mi ngi xawdu mi ngi xawdu naan atuufu bi baytillahi wan naasu nuwoomu mm. boobu nit ñaa ngi nelaw mu ngi toll ci ñeenti at juróomi at juróom benn at maamu shérif yu sell yi cheikh na cheikh Saad bu nee na atuuf dinaa tawaaf bi baytillaahi néegug yàlla gee war naa sunu woomu te boobu nit ñaa ngi nelaw kamaataafa baadal xawma fi ko daan defee baadal xawma fi sirri wal gaa yi ci lu nëbb ak lu feeñ wasaako xubaydal yawma wal yawma rubbama maamu shérif yu sell yi nee na lii may wax man cheikh na cheikh Saad bu jiitu na tey waaye wal yawma tey rubbama jombul addaaliya baytallaahi fi mawji an yajri dina dikk ñu ne luy dikk mu ni kaaba gee buy dikk ci sama bërëb bii nimjaat day daw araani ubaydallaahi jalla jalaaluhu waaw kañ fii laa soxla woon cheikh na cheikh saad bu nee na li araani ubaydullaahi jalla jalaaluhu bugguma lenn lu dul doon jaamu yàlla kon nga xam ni moom dafa teel a sóobu ci yàlla araani ubaydullaahi jalla jalaaluhu wala liya faxaral xayra anni ubayduhu aw ma lenn lu may puukuréewu man cheikh na cheikh Saad Bou aw ma lenn ci lu may tiituru man cheikh na cheikh Saad Bou aw ma benn garaat bu may takk mu may saf man cheikh na cheikh Saad Bou lu dul doon jaamu yàlla maqaamul ubudiya sànq yaa ko wax mooy maqaama bi gën a màgg ci la yàlla tagg sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag cheikh na cheikh Saad Bou suñu sëriñ maqaama boobu la takk muy maqaama lu ubudiya. ci réew bi la Assane laaj. parce duggam ci réew mi doy na waar. lii moo ko ah, indi ah, waaw waaw duggam ci réew mi. Mhm. ci réew mi góor gi. dañuy sant yàlla ba mu ñëwee Sénégal. moom Cheikh na Cheikh Saadu Obi. dafa am fukki at ak benn. yonent bi seexal ko. sallallahu alayhi wa li ma lay wax waa àddina. kii may waxtaane il est spécial. Mm-hmm. il est unique dans son genre cheikh na cheikh Saad Bou kenn melul ni moom dafa am fukki at ni ak xad kuntu mu sibaaya xad kuntu zaata laylatin mustaxilan fil jiddi fil azkar fi hadihi daar wa tilka daar is axadani sinatun qalila fa ida bi naarin jalila baydaa la xarla laha wala jamra fiha wala lahab wala xatab bal hiya ka nuurul xaalis aw ka bayaadil xaalis fa ida xawaliha arbaatun min al ulul azm mm-hmm. cheikh na cheikh Saad Bou loolu mi ngi ko wax ci mi ngi ko wax ci dix ans onze ans onze ans la wax loolu nee na damaa tëdd guddi àjjuma damaa toog guddi ajuma di jaamu yàlla yor sama kurus jublu pénku di jaamu yàlla man Cheikh na Cheikh Saad bu jékki-jékki dajjant bi ma dajjantee maa ngi gis safara su weex safara su weex xam nga safara du weex day xonk Cheikh na Cheikh Saad bu nee na maa ngi gis safara su weex nee na ci biir safara si ma gis ci ñeenti góor mhm. ñu ni ko yéen ñeenti góor muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Moussa alayhi salaam Seydina Ibrahim. alayhi salaam ak Cheikh na Cheikh Mouhamed Wadi. wa xeer wa xeer. ñu jékki-jékki gis Seydina Nuux di jugee soow. di ñëw ci safara si. sama baay Cheikh na Mouhamed Wadi yëkkati ma jox ma Seydina Nuux Seydina Nuux jël ma taf ma ci dënnam man Cheikh na Cheikh Saad Bou. nee na keroog. li jóge ci dënnu Seydina Nuux dugg ci sama dënn man Cheikh na Cheikh Saad Bou man ak yàlla rek ko ko xam te lii 11 ans la am. man musuma gis ku am 11 ans am bii maqaama. 11 mm-hmm. ans fukki at ak benn. Seydina Mohamed teggi amaamam. Mm-hmm. takkal ko cheikh na cheikh Saad Bou ñu mm-hmm. ko ajaalaha ala rasika bayna al anami ala kabidi man ahabba wa man kariha min al aqwam yow cheikh na cheikh Saad Bou man sa maam sayidina Mouhamed cheikhal naa la jël naa sama amaama teg ko ci sa kaw yaay sangu ku weex ku ñuul yaay sangu ku tuuti ak ku rëy yaay sangu mag ak ndaw yaay sangu ñépp yow cheikh na cheikh Saad Bou mu xëy suba Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Lahbib turandoo Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin bàyyi Cheikh na Cheikh Sadbu ñëw di nettali gént gi Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin Cheikh Mouhamed Fadil ibnu Mamin ni ko noppil yàlla la yàlla fajal say aajo mm. waaye Cheikh na Cheikh Sadbu ay mbiram tey ji woo ko ni ko da ngay génn baaba génn mu nu ko bàyyi xaw ma kenn yaa ma jur yaa ma yar yaa ma jàngal mu ne ko demal woote foo dem dinañ la fa fekk sama barke dinañ la fa fekk dinañ la teral mhm. cheikh na cheikh Saad bu di wër di woote naan maay doomu cheikh na Mouhamed Vadul ñu koy teral maay doomu cheikh na Mouhamed Vadul ñu koy teral ba mu dugg gànnaar ñu ne ko xamuñu la xamuñu sa baay mu ne kon sama territoire lu baay cheikh na Mouhamed Vadul fii la yem yéeg benn montagne ni yaa rabbi inni kuntu fi zulli fadlika fi yadi abi mustanisan bihi qalbi wal yawma asbaxtu an watani taridan wa fi atrafi biladi waxidan wal aana laysa li xayruka wala xayru illa xayruka fala abraqu min maqami hada xataa tawallaa nii wilaayatan tasmulu bil xayri kulla man wallaa nii wa bil xayri kulla man allaa nii cheikh na cheikh Saad bu wàccee ay loxoom waa gànnaar mbëkk seeni xayma ñëw di jébbalu ci moom mu bàyyi leen dëgg nag dëgmal Sénégal mooy duggam Sénégal mu dëgg dugg Sénégal xam nga kañ na dugg Sénégal hmm. en 1872 waaw ah xale la 1872 1872 Pape Anne ak ñi may déglu ci àddina ci la cheikh na cheikh Saad bu dugg Sénégal xam nga ñaata yoon la dugg Sénégal ñaari yoon xoolal lim fi am ci taalibe ak lim fi defar ci ay wut moo tax moo tax ma ni kese ñaari yoon kese képp rek donc kot moom cheikh na cheikh sat bu ci la dugg Sénégal kot benn bi 1872 la benn bi 1903 la ilaha illallah maanaam 1872 dafa ñëw 1872 dafa ni tëll ndar ndar lépp leer déggal loolu déggal loolu cey maamu maanaam ci gàttal Cheikh Modou Mbuub waa àddina waa quartier général waa TFM ah. Cheikh na Cheikh Sadou Abihi mii ñuy waxtaane hmm. xam nga Pape Cheikh dama lay dégg nga naan xajul ci quartier général déedéet waaye pays général Cheikh na Cheikh Sadou bu xaju ci ndax xam nga lu tax li am na ni raybun fii raybin fii xadar wala yarana illa xaaliqul bachar je suis un mystère engourdi dans un mystère man Cheikh na Cheikh Saad bu kumpa gu ñu dë dëxañ ci biir kumpa laa déggal un mystère engourdi dans un mystère maanaam suba ginnaaw suba mooy Cheikh na Cheikh Saad engourdi dans un mystère ah hadi ma jaxate kala neena hali na batrun yadun inda duja fiina hindatu jaafina amina saada abihi ay waay amina saadu labi jaamu waafina billaay maamu shérif yu sell yi cheikh na cheikh Saad Bou en 1872 mu dugg Sénégal nekk ci biir xaymaam ba timis moom nag nuurun nubuwatu alayna laa yazul tawarasat lahu fuxulun an xarida badrul yadul ndeysaan ndeysaan idadu jaafina waaw góor ab ida sadul abi jaamuwa fiina wasa sirif ladi min asifaati madulamin Pape Cheikh kii ma lay wax moom Cheikh na Cheikh Sadbu Oustaz Pape An leer giy daw ci Seydina Mouhamed mooy daw ci moom doomu Cheikh Mouhamed Fadel ibnu Mamin Talib Xayar Jihil Muxtar Talib Mouhamed Talib Ali Sidi Mouhamed Sidi Ali Chamsidine Yaxya al Kabir al Qalqami bul mulaa Aran Atlan Ajmalan Isa Omar Masoud Hasim Idris al Akbar Idris al Asgar Abdullah Kamil Hasan Musanna Hasan Sib Fatima bintu Rasulillah sanaa kon ñu ne abul kiran nisbatana ila rasul inna badru yadun li tasqi wasqi wala takun jool innana abnaahu fatimal batul walxaalu shaahidu ahwal min al udul nuru nubuwat nuru la yazal déggal kii ko wax xaalima jaxate kala oh. xaalima jaxate kala xam naa ni moo rawoon ci senegal ci jamono jooju ndax moo doon benn sëriñ bi fi am dégg ngeen ma yéen waa àddina xaali ma jaxate kala moo rawoon ci senegal ndax moo doon benn sëriñ bi fi am mm-hmm. moo jàngal sëriñ Touba arub moo jàngal Seydi Hadj Malick arub keroog ba Cheikh na Cheikh Saad bu ne tëll dañu ko hël ndax inna badra yadun weeru fukki fan ñeenta ñeent ñëw inde déjà fii naa ñun am inna saada abi amin asaadu la bi jaamu afina wala kooku ñuy wax saasu baaya moo ñëw ci ñun ñun waa Sénégal hada shérif alladi min adli fatimatun kooku mooy shérif bi nga xamante ni moo fàqee ci Fatima man zaada walido bi nga xam ni moo doon ay baayam ci islam ak diine waaye dëggal ma nga dund béy béy hada shérifu min nasli Fatima man shaaba walido islaaman wa diina eh, eh, bi muy dugg si Sénégal haazal shérifu wahal yartaabu fi ahadin haazal shérifu ladi min alibatimatul man zaada walida wa islaama wa diina haazal shérifu har yartaabu min ahadin <laughs> fi kawni saadi abi sibta yasina waaye déggal Modou wala ma xaar dafa ni waaw kay mais mais Mohamed waaw bu ñu toppee noonu waaw Cheikh Nassir Sall mënoo ko wax ba mu jeex. wallaay dëgg li yàlla def ci moom moom ab bii. ko sax Assane laajee. Mhm. nan la duggee Sénégal ak parce que dégg nga bi mu duggee xaw du ñëw gànnaar. Mhm. dañu ko xamuñu sa baay. waaw. am lu mu def nu xam ko. waaw mais moom ni mu duggee Sénégal bi mu ñëwee moom Saadul Abi lu xew. moom laa lay wax ni lu xew. barik lana ya rabbana fi Sénégal. waaw loolu dinaa ci ñëw. dafa ni ndeysaan. cëy cheikh na cheikh Saad Bou. waxeertu maanaam ba ko bàyyam cheikhalee ba mu dugg gànnaar ba mu defar ñi zàbbi ñi bàyyi leen fa dugg Sénégal moom cheikh na cheikh Saad bu dafa am nu mu fi duggee buy dugg Sénégal day jéggi ndox. Mhm. cheikh na cheikh Saad Bou nag. ñun bu ñuy dem Nimjaat dañuy xaar bag bi mais moom du ko def de. Hmm? nu mu doxee ci suuf si noonu lay doxee ci géej gi. allahu ma lay waxtaanee kenn du moom. nu mu doxee ci suuf si noonu lay doxee ci géej gi. iza asqata fi bahrin amiqin jara ala wajhihi kal farasil moom Cheikh na Cheikh Saad bu maamu shérif buy dox ci géej day mel ni fasu naaru góor buy dox ci tali. moom dong iza axada uudan yaabisan ahdara fi yadi inaasan bu jàppee bale bale taxaw mu doonaat garab. wa ida axada bulata rajulin mimma yakulu acha biha nahwal mi amina zuma yi moom dong bu jëlee benn tànk mm-hmm. tànk ceeb mm-hmm. wala tànk dugub teg ci palaat téeméeri nit lekk ci ba desal moom dong téeméeri yooyu bu ñu lekkee ba desal day jël benn kaasu attaay rek jox leen téeméeri yooyu naan bay jàpp allahu akbar moom cheikh na cheikh Saad Bou dugg senegal nag jël jéggi luy ndox te duggul gaal ñëw dal moom Cheikh na Cheikh Saad bu ndar ndar gépp liir bi ndar gépp liiree xaalima jaxate kala wax lii hal inna badra yadun inda duja fii na am inna saada abihi zamawa fii na hada sharifu alladi min nasli fatima man shaaba walidahu islaaman wa diina hada sharifu wa hal yartaabu min ahadin fi kawni saadi abihi sibta yaasina ni ko inna bi saadi abi qad naluuzu bihi laalana xaysu kunna gayra nasina man xaalima ma jaxate kala de dem naa jébbalu ci cheikh na cheikh Saad bu mii ngir ëllëg yowmal xiyaam mu mun maa musal ci lépp luy am kooku moom mooy cheikh na cheikh Saad bu mu dugg Sénégal nag dugg gu rafet amul fenn benn région bu am ci Sénégal lu dul cheikh na cheikh Saad bu dafay samp wëliw dama la cheikh na cheikh Saad bu moo retracé Sénégal maanaam géographiquement parlant ci wàllu baatin cheikh na cheikh Saad Boo defar Sénégal amul benn wëlliwu bu bu fi cheikh na cheikh saat bu defal ci région bu mun a doon ci Sénégal xoolal ndar cheikh Ndoos nga wàcc ñëw Louga jàll kër cheikh mañoŋ Omar cheikh na cheikh Saad Boo ko seexal nga dugg diigaan cheikh ahmad cheikh cheikh cheikh Adjuma Ba cheikh na cheikh Saad Boo ko cheexal nga jàpp cheikh Ahmadou Ndiaye cheikh na cheikh Saad Boo ko seexal nga wàcc ngumba ndeysaan chérif yaa nga fa cheikh ahmad Diop cheikh na cheikh Saad boo ko cheexal nga wàcc cheikh Saad bu Diop cheikh na cheikh Saad boo ko cheexal nga dugg cheikh de calaw gaynde nguraan nga xam ni mm. cheikh na cheikh Saad bu da koo fekk ci teen ci teen maa jaate faati mbayee ak maa jaate du beeg mbere cheikh de na cheikh Saad bu da koo fekk ci teen ci teen ci teen ci teen ni ko génnal teen bi cheikh de jalaw yuuxu magam Mamadou ni ko loo yuuxu mu ni ko li may fekk ci teen bi de musuma koo gis musuma koo dégg waaye am na doole après 15 minutes cheikh na cheikh Saad bu fekkaat ko ci teen bi moom cheikh de jalaw ni ko fekk manim jaat cheikh de jalaw yuuxu magam Mamadou yor ko buum génn cheikh de jalaw dugg ci biir teen bi teen bi màbb ci kawam cheikh na cheikh Saad bu di orienté cheikh de calaw na. keroog ba muy gën ca teen bay wuy ji doom yàqu na. cheikh na cheikh Saad boo nga Nimzaat di orienté cheikh de calaw mi nekk Sénégal mu war dox cent quatorze jours muy cent quatorze saar yi am ci alquran. ey ku mor sa jaay jur nga ànd ginaar. bu ëllëgee ñu def la jaam ca biir gàdd ga Cheikh ah. Demba ngi nii bu muy dem bukki jaloor la ngañ daa nopp woon ah. léegi ngay ndég bilaa day sab bëccëg Oustaz Pape Hann Cheikh Dethialo musta gis Cheikh na Cheikh Saad bu xam nga lii moo doy waar Cheikh na Cheikh Saad bu musu koo gis ah Cheikh Dethialo ci teen la ko fekk ne ko fekk ma nimsa fekk ma gànnaar Cheikh Dethialo génn teen bi musu ñëw gisante Cheikh Dethialo mi ngi muraan Cheikh na Cheikh Saad boo ngi gànnaar Cheikh Béthio la war a dox 114 jours muy 114 saar yi am ca alquran bis bu mu jeexal tari benn saar bis bu mu jeexal tari benn saar ba 114 jours yi mat mu tiim Cheikh na Cheikh Saad bu tari kaamil bi yëpp tafsir te musta jàng gaañi ne leen kii moo dégg taalu illa kaasin saqaana biha saadu fa laysa laha saaqin xubaylun wala baadu gis nga dama lay wax ni cheikh na cheikh Sadbu kenn du moom kenn du moom dafa téye cheikh Yirim Dumbaan al qutbu rabbaan cheikh Yirim Dumbaan dafa téye cheikh Yirim Dumbaan al qutbu rabbaan mu téye cheikh Yirim Dumbaan al qutbu rabbaan xanaa xamoo ni cheikhu cheikh na cheikh Sadbu benn boo jël benn cheikhu cheikh na cheikh Sadbu boo jël ëpp na àddina dégg nga kii muy wax commerçant la woon da daan jaay amrawa mina samaay cheikh na cheikh Saad bu ñëw Tiwaawoon dal fa ñetti fan xutbu rabbaani saakibul sakaay samp xaymaam nekk fa ci biir xayma bi ak taalibe yi nee leen yërmee nee sama maam soxna biir mu muy dem marché hmm. moom soxna Birima Kumba dund na 63 ans amul doom. maamu code du sec Cheikh Yirim Dumbaan dund na 65 ans amul doom. maamu code du sec waaye oustaz li garaaw mooy Cheikh Yirim Dumbaan dafa bëri woon alal. Hmm, bëgg rek bu deewee am benn doom rek mu donn ko. ngir ñu jëfandikoo alal gi. la ilaha na Cheikh Sadbu. bu xeertu wa xeertu na Cheikh Sadbu. wa xeertu ñëw dal ci xayma bi. Cheikh Yirim Dumbaan ma nga marché. sama soxna Birima di dem marché. di dugg mu mel ni dañ ko xoolal xayma bi. mu xool xayma bi gis Cheikh na Cheikh Saad bu xool ko mënatu koo xool ah, waaw mu daw dem marché ni ko yërim mu ni ko waaw ah, mu ni ko ki ñu gis bu ñu ñaanalee ñu am doom mu ni ko lan la mu ni ko góoru naar la mu ni ko mais yow mënatoo am doom parce que ménopause nga làkk nga weesu nga 40 ans mhm. mu ni ko nañu dem rek Cheikh Yérim Ndumbaan ñëw ci Cheikh na Cheikh Saad bu ñu indil ko ndabali teraanga daajal ko cheikh na cheikh saadu abihi cheikh na cheikh saad bu xool ndabal teraanga bi kontaan loo leen bëgg ñun de dañuy jaay siiw lool bëri alal te amuñu doom cheikh na cheikh saad bu xool ko ni ko dingeen am ñaari doom hmm. eh kenn ki mooy alaaj Samba Ndoumane Seck kenn ki mooy Mouhamed Abdoulaye Seck. man yéemu naa ci Cheikh Yirim. xam nga Cheikh na Cheikh Saad bu dafa doy waar kenn du moom. Saadu la jox lépp lu mu am. Oustaz Pape kii tey la ñëw ci moom. mu ne ko dinga am ñaari doom. Cheikh Yirim du baal am na ngaram. Cheikh Dumbaan dem tëdd mënul nelaw. Saadoo ko def xut bu rabbaan Yirim mu yee soxna si. ni ko suba damay jébbalu ci shérif bi. bi mu faatoo ñu denc ko. mu ni ko mais kii xamoo ko tey nga ko gis mu ne ko ndokk mooy doon sama sëriñ. eey def na biir ñu sulli ko. ñu ñëw suba sa ñëwaat ci Cheikh na Cheikh saat bu Cheikh na Cheikh saat bu xool leen ni loo leen bëgg démb la ngeen doon ñaanlu si mooy ay doom yàlla xamal naa ma dina am ñu ne ko déedéet tey bëgguñu doom dañoo ñëw pour jébbalu si. te yàquwul. ñu delloo ko ci bàmmeelam yirim nu baal na cheikh Saad bu ni ko jébbalu jaayante la da ngay dem loo am nga indi ko yow cheikh yirim cheikh yirim dem marché takk marchandise bi ñëw dajji armoire yi dajji lar yi jël or yi takk jël xaalis bi indil cheikh na cheikh Saad bu cheikh na cheikh Saad bu xool xool xool marchandise bi xool bagage yi ni ko des na benn bassan boo bàyyi sa néeg demal indi bassan bi cheikh yirim nu ñëw takk bassan bi bale néeg bi indaale malik bi ñëw ci Cheikh na Cheikh Saad bu jox ko Cheikh na Cheikh Saad bu yëkkati loxoom ni ko duggal mu dugg ci suufu poqotaanam ah. Cheikh na Cheikh Saad bu bokk ko bàyyi ko mu daanu xëm mu ni ko Cheikh Yirim loo gis mu ni ko gis naa 313 géeju leer yoo xam ni dama koy jàll ci sa poqotaan bi Cheikh na Cheikh Saad bu ni ko yirimu amul jur min as-samaa'i qutbu rabbaani saaxibu saxaa'i wabsil lahu xazaa'inul amwaali fi jumlatil ayyaami wal layaali Cheikh Yirim moomu Cheikh na Cheikh Saad bu jël garaatu cheikh na tiijaan takkal ko ko ci instant bi mu bu rabbaan moom cheikh na cheikh saad bu abihi moo defar cheikh njuga jaañ xoolal cheikh njuga jaañ na cheikh saad bu ci teel la ko fekk ci teen ci ci taal ci taal ci safara waxat moom mu ni kii waxat man ci safara moo mën a doon sama sëriñ tëj mbaar ma dem fekk cheikh na cheikh saad bu keroog ba cheikh na cheikh saad bu génnee àddina cheikh njuga jaañ picc picc ko tàgg cheikh na cheikh saad bu picc picc moo taxaw ci buntu tool bi sab ñetti yoon mu ni taalibe yi wéer leen gopp yi ñu ni ko maam dañuy wàcc mun leen déedéet picc bii di sab moo may tàgge cheikh na cheikh Saad Bou wa ullim naa a tayr la yàlla waxoon yonent yàlla daawuda mm. yonent yàlla daawuda picc bu sab xam na li mu sab cheikh na cheikh Saad Bou rocc ci garat ga nekk ci yonent yàlla daawuda takkal ko cheikh Ndiouga Diagne xoolal cheikh na cheikh Saad bu moo defar cheikh Ahmadou fii ci mbuur cheikh Ahmadou Lo oustaz Pape toog 60 naanatul cheikh na cheikh Saad Bou da koo sàmmloo ba ngoon mu ñëw ni ko damaa mar seen Cheikh Saad bu ni ko tey ngay bàyyee naan ndox jël benn kaasu ataaya def ci ndox ba mu fees ni ko naanal mu naan toog 60 ans naanatul day jékki-jékki naan bés leen sama biir bi li ci Cheikh na Cheikh Saad bu def ci leer daa bëri xoolal mu defar Cheikh Turat Ibnul Abbas fii ci Betuwaar Betuwaar gii Ndakaaru jël soixante-dix mille la hmm. ilaha illallah jox ko turaat hmm. cheikh nandal cheikh turaat ibnul abbas da daan def ay gaasileer la ilaha illallah ba moom bu tawal mu di taw bay wala gaan dégg nga ah. oustaz Pape Hann turaat ibnul abbas hmm. dafa jébbalu ci cheikh na cheikh Sadou taalu ila kaasin saqaana biha saadu فليس لها ساق قبيل ولا بعد تعالوا إلى كاسنا ndeysaan سقنا بها سادنا ndeysaan وليس لها ساق قبيل ولا بعد maamu Chérif Sène yi ينال من كل مكان والبلاء إذا ما وعد الله إذا ما وعد الله maamu chérif yu sell yi na cheikh Saad Bou dafa defal cheikh Turat Ibnul Abbas jël benn kaasu ataaya ni ko naanal cheikh Turat Ibnul Abbas naan kaasu kaasu ataaya bi egg ni taalu ñëw leen ñu ni ko fan mu ni ilaa kaasin saqaana biha saadu ci kaas bi nga xam ne nandal na ma ko cheikh na cheikh Saad Bou laataa mu ma koy nandal musuma naan kaas bu ni mel ndax cheikh na cheikh Saad Bou ko mën a joxe إذا ma وعد الله أن تزعوا الوعد mu duggaat Sénégal nag beneen dugg en 1903. dafa gaam la de. ba 1874. ba 1872 la woon. 72 waaw. xanaa xamoo ni shérif yii di daagu ci Ndakaaru ñu doon yow fi yam waaw shérif yii di daagu ci Ndakaaru seen maam Cheikh Ibra Gueye Cheikh Latif Gueye ko jur Cheikh Youssouf Amar Gueye. moo moo moo mooy buuru lebu yi Cheikh na Cheikh Saad boo ko defar keroog ba ko Cheikh na Cheikh Saad bu defar Cheikh na Cheikh Saad bu bu dugg Sénégal lebu yi dañoo dajale téeméeri nag téeméeri nag di ko teral ba ngoon ñu ñëw ni ko du ñu bay du ñu sàmm du ñu gor du ñu bay du ñu yat géej gii lañu am mm-hmm. ak suuf si dañoo bëgg nga ñaanal ñu ci mm-hmm. Cheikh na Cheikh Saad bu ni leen tànk leen ci géej gi tibb ci suuf dakaar dina gën a cher or hmm. ak Cheikh si. Dakar dina gën a cher or loolu ba mu koy wax en 1872 léegi xoolal demal Medina nga jënd fa pàkk amatu fa. jeex na pàkk demal Kër Massar. amatu fa autoroute à péage bi mi ngi ma a di dem ba Thiès. walaay ni kéemaan la. waa léegi de 14 kilomètres de Dakar Pointe à Toubab Dialaw xoola ñaata bateau ki gaal ay taxaw ci buntu tefes gi c'est grace à Cheikh na saat Sadbou ba muy feeñ Sénégal di fi ñaan. wallahi amul benn sëriñ bu fenn Sénégal ñaan fi moo tax barke bi Sénégal am nañ ko sant Cheikh na Cheikh Saad Bou kooku nag bu ñaanee Sénégal ah war na mhm. ndax kat moom Cheikh na Cheikh Saad Bou moo ni baarik la naa yaa rabbana fi Sénégal mhm. bi jaahi afdali rijali wa nisa yow yàlla dama bëgg nga barkeele ma Sénégal mhm. waaye oustaz hmm? deuxième dugg bi mu fi dugg muy en 900 en 1903 ci la dajee Kappalaani Biro Ndar kuy kooku mooy tubaab bi Kapolaani. Kapolaani la tudd. tubaab bi doon invité gars yi. Mhm. invité na Cheikh na Cheikh Sadbu. waxee en 1903 la ko invité. biro Ndar. Mhm. mais nag audience bi yàggul. audience bi yàggul lii wa garaaw. parce que Cheikh na Cheikh bu daa bëri personnalité du wax wax ju ëpp juróomi baat. tubaab bi dafa ñëw rek ni ko da ngay wër di laaj impôt mu ni ko déedéet tuddee ko hëddiya sama maam yonent bi lañ ko doon jox maa ko doon. tubaab bi ni ko dégg naa ku la tooñ nga rey ko mu ne waaw man de buur bu ma tooñ ma rey la waliw bu ma tooñ ma dégradé la ana barisul awliya i wal muluki kii dafa doy waar moom cheikh na cheikh Saadu mm-hmm. tubaab bi ni ko rey ma mu ni ko tooñoo ma fekk tubaab bi am na benn fas boo xamante ni mois la ko jëlee Paris laata cheikh na cheikh Saad bu di ñëw ci bureau bi mu ni ko reyee fas bi cheikh na cheikh saat bu bàyyi benn perni samadu fas wi dee ci taxawaayu munu ko rey ko munu ko laal ko mu laal ko fasu ni këndëng cheikh na cheikh Saad bu ne in xamala silaahu zi salaahi mm. wastajlaba al amaanu fi sabaahi mm. fa tisron wa tisrona fi sabaahi mm. wa fi lmasaai xasbi min asilaahi man cheikh na cheikh Saad bu quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla yi dama koy wéetu ba yàlla jox ma muy kun ci man lépp lu ma bëgg faj ko ci tubaab bi xool ko ni vraiment cheikh na cheikh Saad bu laa est d'accord avec le bon ah mu nu ko xamagoo ci dara ci ngoon sa cheikh na cheikh Saad bu dekkal Cheikh Ahmed Cissé pole française mooy la police française la plus forte dañoo def enquête ci Cheikh Ahmed Cissé xamuñu ku ko rey soxnaam ñëw di jooy yëg ni Cheikh na Cheikh Saad bu wàcc na ndar soxna si ñëw ni ko Cheikh na Cheikh Saad bu sa taaliba ba Cheikh Ahmed Cissé de bandi yi agressé nañ ko barey ko police bi nag def na enquête waaye xamuñu ku ko rey mhm. dañoo bëgg nga wax ñu ku ko rey Cheikh na Cheikh Saad bu ni ko demal deux heures boo ñëwee ma dekkal ko mu wax la ko rey demal deux heures boo ñëwee ma dekkal ko mu wax lekk ko rey <laughs> ndeysaan cheikh na cheikh bu ma ngay dekkal cheikh Ahmad Cissé deux heures ndax lépp faq soxna si ñëw cheikh na cheikh bu julli ñaari rakka ànd ak soxna si ñu wàcc pont bi bi yam ci bàmmeel bi cheikh na cheikh Saad bu fëgg bàmmeel bi ni ko yaa cheikh Ahmad Cissé xum bi xudratillah bàmmeel bi ni tàcc xar cheikh Ahmad Cissé jug cheikh na cheikh bu ni ko waxal ki la rey ci làkk bu ne kookoy ki nga xamante ni moom la cheikh seydul xeer xool ni ko saadal ilahi wa saadal wara wa saada suudi li ahlil umam wa saadun qadimun li ahlil maram bi man nil karimi li naylil maram saqaytal gariqa fi baxri zunub fi lahzati aynin min baxril karam in qiila tabibu li ahli saqam fa anta tabibu li kulli saqam in ri a mujiru yu jaaru bihi fa anta idaka ilayka alqidam wa jawnun amimun xayaahu amim min gayri saiqin wa barqin yushim wa izun azizun wa aslun asilun wa dikrun shahirun wa nutqu shabam fama min mugiisin yugaasu fi xaal jihaaran wa sirran nahaara zulam fi ayi makaanin mhm. wa fi kulli xiin siyaanin fi arshin mhm. wa farsin wasam yaraaka qariban min xablil warid xubayla xisaabin zi ashrin yutim wa min sirri nuqtati sirrul lazi nuqtatu sirrul wujud bi nga xamante ni moom la yàlla sàkke sayidina muhammad lamma taallaqat iradatu xalqillahi taala bi ijaadi xalqihi abraza alxaqiqata almuhammadiyata min anwaarihi suma salaxa min alawalima kullaha ulwaha wa suflaha suma allamahu bi nubuwati wa lam yakun illa kama qala sallallahu alayhi wa sallam bayna alruuxi waljismi mm. nuqtatu sirrul wujud boobu moom la cheikh na cheikh Saad bu donn moo tax cheikh sidil xeer xool ko ni ko wa min sirri nuqtati sirrul lazi ataakal ilahu jazilu niam ni ko taxaw na adduna bi te ci yow la taxawee was daada mi ngi dox di yokk adduna bi te ci yow lay doxee di yokkoo yow cheikh na cheikh Saad bu ni ko wa min sirri nuqtati sirrul lazi ataakal ilahu jazilu niam aqaama zël kawnu wa min kastamad was daada fil kawni wa min kantasam kon cheikh papa kii mooy Cheikh na Cheikh Sadbu kii mooy ki nga xam ni mm-hmm. Mm-hmm. moo ñëw fii Sénégal mm-hmm. fekk suñu maam yi mu raxas li ñu li nekkoon ci ñoom def ci ñoom wilaaya def ci ñoom barke def ci ñoom mbaax moom Cheikh na Cheikh Sadbu ñaanal Sénégal waaye fekkoon fi ay kóllëre ku mel ni Serigne tubaa ku mel ni maam Sidi Hadj Malick fa ngay tëjee fa ngay tëjee ñu ay kóllëre yu baax ñuy ay maam yu baax. Mm-hmm. bëggoon Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu bëgg na. macha allah oustaz Pape. Mm-hmm. yaakaar naa fa tabarakallahu macha allah. Mm-hmm. tey guddi gi dafa ala dawme. ndax kuy waxtaane sëtu rasulullahi. sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi waxtaane ku foor. yaa ngi waxtaane ku am xam-xam. waaye itam yaa ngi waxtaane ku donn la nga xamante ni mbaax rek la mën a doon. te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko tuddee ku sakkan ki kon kuy waxtaanee yaakaar naa ne fa tabarakallahu guddi googu moom nii rek la mën a demee ànd ak Cheikh Mouhamed Seck nga xam ne comme ni ko El Hadji Pape Cheikh waxee si pédagogie bi waaye itam surtout surtout si leeral yu am solo yi nga xamante nii mhm. moom la fi indi tey ndax niñ koy faral di waxtaane mag ñi moom di leen waxtaane mhm. toujours day nekk la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla mhm. nit ñi dañ koy bëgg ndax bu ñu demee ba toll si jamono boo xam ne toujours li ñuy jooy lépp mooy crise des valeurs mu ñëw andul ñu Cheikh Saadou Abihi wa xayartu andil ñu ni nga xamante ni noonu la doon dundee ak melokaanam mhm. waaye surtout ak ragal yàlla gi nga xamante ni moom la làmboo woon mhm. kon yaakaar naa ne képp nga xamante ni taalibe nga rek si kër gi sa sedd na te am nga la xamante ni fa tabarakallahu moom moo la neex kon euh, ñu delluwaat rek ak fekkaat fa Baye Cheikh ak équipe am incha mhm. ñu andiwaat li nga xamante ni moom moo di seen wàllu sinar rek Baye Cheikh oustaz Pape mais El Hadj Assane bég lool. ci oustaz Mouhamed. ñaanal ko la. jàmbaar la yaakaar naa tey jii mbooleem euh, ñi bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh na Cheikh Saadu moom waxayartu euh, moom pour pour pour xeet wépp la mhm. ndax Seydina Mouhamed ay maamam yal na yàlla taas yu ci barkeem naa ñaan njaboot gépp Cheikh Saad bu Louga nu ngi koy nuyu mhm. Haydara Chérif nu ngi koy mhm. nuyu Eli Cheikh moom itam ñoom ñëpp Cheikh Saad bu Mbàkke ñu ngi leen di ndokkeel ñoom itam euh, Chérif Alwali Maana Ndiaye Chérif Dieye Haydara moom itam nga xam ni sunu sunu lépp la ak mboolem surafaa yu góor ñi ak jigéen ñi ñu ngi leen di ndokkeel baax soxna Awa Aydara euh, soxna Salimata saar euh, sa yaayu bopp moom itam nu ngi koy ndokkeel jeex tàkk ci njaboot Cheikh Cheikh Saddu mais laaj Pape yaakaar naa euh, xam naa Mouhamed Ndiaye bu duggee ci bu demee ci internet bi euh, commentaire yi bari na foofu adduna bi ñëpp tey am na lu nu yëg ci góor yàlla bii sëfu Seydina Mouhamed bii nooy waxtaane mooy Cheikh na Cheikh Saddu Alaaji Pape en tout cas réew mi yëpp kontaan euh, àddina euh, ci ay réaction yoo xamante ni ñu ngi koy jot mu jógee euh, fu ne maa ngi ndokkeel rakku Ngóone Njaay di code sec ca Italie Euh, ak euh, màgget Ndiaye sa jigéen Ahmed euh, màgget Ndiaye doomu ndeyu mbaaco la moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak sunu yeneen xarit yoo xamante ni ñu ngi rafetlu lool jotaay bi ndey soxna Fall Milan wallahi loolu Moustapha Fall tout le monde daal merci mm. ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar bi nag am na ñuy laaj lu muy lu muy tekki. lu ah, jot naa ci message yu bëri sax ku baax la rek ku yàlla baaxal. waxaatal waxaatal. Mm-hmm. waxeertu. Mm-hmm. mooy xayarahullah mooy ku yàlla baaxal. Mm-hmm. mooy ku yàlla màggal. ndeysaan Cheikh Sidatil Kabir. dafa tëdd guddi gént. yowmal qiyaam yàlla won ko. bi ko yàlla wanee. ñi ànd ak euh, kër Cheikh na Cheikh Saad bu ñu tuuti. ñi ànd ak Cheikh na Cheikh Saad bu tuuti loolu waaye ñi bëri ñu ngi ci kaw. Mm-hmm. am riir bu fees del Cheikh jaaxle yeewu ñëw ci Cheikh na Cheikh Saad bu ñu ko sa personnalité bu bari bii ak li la yàlla may njaboot gu tuuti nga am yomal xiyam. Mm-hmm. mu ne ko déedéet ñi nga gis démb mooy ñi nga xam ne dañ ma bëgg rek ba bu ñu tuddee sama tur ñu ni waxeetu ñoom laay ram noonu dugal àjjana waaye la nga dégg muy riir ci kaw ñooñu ñooy samay taalibe xanaa xamoo ni shafia talaamisi fil aqaaribi wajud lahum bi saairil mataalibi xanaa xamoo ni man cheikh na cheikh Saad bu sama taalibe day ramm ay njaganjaaleem xanaa xamoo ni man cheikh na cheikh Saad bu sama taalibe mhm. mooy ramm baayam ramm ndeyam xanaa xamoo sama taalibe man cheikh na cheikh Saad moo mooy ramu ay mokkam shafiahum fi man alayhim ahsana xatta yanaala bihim kullal muna mu ni axfir lahum wa bihim fa axfir li man ahabahum zaman macha allah waaw waxa yëpp mu ngi noonu Baye naa leer na leer <laughs> te dafa am baat yoo xamante ni moom mhm. jarta bàyyi foo tuddee ku tedd kii Seydina Muhammad teg ci sallallahu alayhi wa donc booy xayaatu giit euh, bu ñu koy fàttee ci góor yàlla boobu la ñuy waxtaane tey euh, trois heures quinze du matin jot mu mel ni minuit moo jot heure bi euh, daanaka sentiruñ sax ni mu ngi dem ndax ki ñuy waxtaane ñu xool internet yi wala jëlaat yeneen ndimbal yu ñu mën a jox téléspectateurs yi Euh, euh, Cheikh Thierno Ndiaye ngi waat ci ligne bi euh, mën nañu xool ba nouvelle la indi Mbenn Diatta Mbenn jaata Seck bëgg lool Cheikh na sat bu moom it ñu ngi koy ndokkeel dafa bloqué France Mbenn Diatta ñu ngi koy ndokkeel bu baax ma nga toog di jooy rek saa yu Ahmed Seck waxee rek mu jooy ñi may woo nii nag te di ma seetaan xam nga loolu mënul nekk tëgg tama ak waxtu àndul ah naru ma ko woon wax waaye bu ma ko waxul it xam naa xam bu ma ko waxee ñu bàyyi ko ah Euh, du ma mën wuyu di wax ci tele bi yooyu dafay dafay xaw miti euh, maa ngi ci jéggalu bu ah. baax euh, di ndokkeel kon ñi nga xame ni sànq ba tey ñu ngi àndandoog ñun suma ma su ma bàjjan ko lii Euh, suma euh, bàjjan bu baax bi ñoom ñëpp daal ñiy wooteek ñi bind ñëpp ñu ngi leen di euh, ziar donc internet yi on va les retrouver dans quelques minutes bu ko defee ñu jox seen ay questions ñu jox ko ki xamante ni moo di Serigne Ahmed Seck en attendant ñu. uyuwaat ki nga xamante ni euh, mooy euh, euh, Cheikh Thierno Ndiaye papa ñu ngi lay ziaraat xam naa sànq ba tey nit ñaa ngi réagir ndax fa nga ne ci toog leen seen kër bi nga ne waaye yaa ngi jokkoo kilifa yu bëri ci rafetlu gi ñu rafetlu tey guddi gi nga xame ni moom la ñu jagleel Cheikhna Cheikh Saad Bou xayartu Cheikh Thierno من Pape maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg. war nga xam ni ku tong ku mag. ca sunu boppam. Hmm. ñëpp danañ intervenir. waaye ba ràññee nañu ci Ousmane Diagne. mu Cheikh Sidaati Aydara baayam Cheikh El Hadj Mamadou Diagne Cheikh Saadi Gueye Cheikh na Cheikh Saad Bile mbaa xam nga ni Cheikh Ousmane Diagne maamam Cheikh Ousmane Diagne. taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou la mbaa xam nga ni Cheikh boobu Jaañ ñuy jur maami Joor Jaañ hmm. Cheikh Mohamed Badulu maami mooy xal sëriñam hmm. lenn rek laa lay jox de Pape Cheikh hmm. bind ko ay ca waxal papa maamam Cheikh boobu Jaañ moo tagg Cheikh Abdou Qadir Jeylaani ba mu jox ko loxo wur moom Cheikh Ousmane Jaañ waaw moo wonoon yaayu ki ne laam rasulilaay mbaa xam nga ni Sénégal ak gànnaar bi ci satan doxee moom moo ko ba lépp sotti cey mu ajal te sa maam a Aziz da baax ko woon ne ko réew ñaar ñu jëm boo jógee yàlla par ak yow te boo demee lépp dina am lépp dana dellu nekk jàpp président wallaay wallaay mu Ténéré ñaan mu Amad ñaan. Hmm. Ibrahima Dior yande ma ca bett waar kàddu gaa ngoog jaag. waaw ah, kay jërëjëf loolu introduction la woon xam naa pour dugal maître Dior Diagne euh, loolu mooy wane ni kon maître Dior Diagne mu ngi ci ligne bi kon ndax euh, bu dee euh, moom Cheikh Thierno def na introdu introduction bu mel noonu kon ça veut dire que dugal na metre Dior Dior nag di. sunu xarit di yaay ci man di xarit ci man waaye baayam bi baayam bayit bu dellu si waatoon du defaraat toogaayam moo fi nekkoon euh, euh, président euh, conseil supérieur xaadiriya Sénégal yëpp fonkoon ko alaaji la ca màkk moom it seex la ca nimzaat maa ngi tooñ léegi naan tey ñi mu ajal suma yaay ajot ki ne laam keroog bi muy yóbbu suma maam yaayu ki ne laam màkk yàgg na mu defal ko ay nit yu bëri kon maître Dior Diagne ñu ngi lay nuyu di la ziar guddi gi guddi àjjana yëpp la waaye defe naa ne guddi gi sa guddi la euh, maître Dior Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. kontaan nañu lool ci participation bi tey defe naa war nga bég lool ci ki ñuy waxtaanee di na Cheikh Sadbou. xaartu. waaw. il faut nga dégloo ak euh, téléphone bi bàyyi euh, télé bi ñu mën a waxante direct. jërëjëf maa ngi leen di gërëm bu baax yéen waa TFM. Mhm. téléphone bi ci laay waxante directement nii ak yéen. voilà ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dégg. ma ne woon euh, maa ngi gërëm bu baax yéen waa TFM. jërëjëf. di ci jiital euh, président am Youssou Ndour sama frère. Hmm. bokkoon doomu Cheikh Ousmane yi. di gërëm euh, spécialement yow Pape Cheikh Diallo. Mhm. Ousmane Pape Anne ak Ousmane Seck. Mhm, ñu ngi dégg ñu ngi dégg. ah di gërëm tamit euh, conférencier bi Cheikh Mohamed Seck. Mhm. moom mi nga xam ne euh, papaam Cheikh Baye Seck. miin nañ ko torop torop torop ndax mësul taxale ko ak. Euh, sama baay bi Cheikh wallaay. Mhm. di gërëm tamit tàggkatu yonante yi nekk ci plateau bi. Cheikh Modou Mbow ak tàggkatu Cheikh na Cheikh Saad Buy xayartu. nga xayartu Chérif. waaye li may njëkk a def tamit di ci ngërëm bi damay jiital sama waajur yi Cheikh Ousmane mi nga xam ne kenn mënta wax waxu Xaadiriya waxu Cheikh na Cheikh Saad Buy xayartu waxu baayam ba Cheikh Mohamed Fadel xayartu. te kenn du ko ci boole loolu mënut a nekk mais balaa may ñëw ci moom damay gërëm Cheikh Tanor Niane sama yaay ji nga xam ne moom ci boppam tamit dañ ko seexal ci yoon xaadiriya ndax xëj na Cheikh Ousmane nekkatu fii waaye moom la mu doon def bi fi Cheikh Ousmane nekkee ci yoonu xaadiriya bi mu ngi koy yeggali ba tey ndax soxna euh, Cheikh Sidaati Aydara muy Cheikh Ba hmm. foog naa saa yu jógee Nimjaat dugg si fii Sénégal ci moom la jugal directement wallaay Cheikh Pene la ñaan Cheikh nag ci yoonu xaadriya bi mu nekkoon te tàggat ñu fi ñun ñi la famille biologique mais euh, également toute la famille du conseil supérieur Khadria bi nga xam ne Cheikh Fatim moo ko waxoon mu créé ko fii ci Sénégal mhm. te liggéey fi liggéey bu am solo diggante euh, Sénégal ak Mauritanie mais surtout lu jëm ci tarixa Khadria fii ak sa vulgarisation au Sénégal mhm. mm. digganteem ak euh, waa kër Cheikh Mohamed Fadel dafa yàgg maa ngi dégg sànq Cheikh Thierno Ndiaye di wax di euh, xabru Cheikh Mohamed fadal ba nga xam ne ca awdu mhm. awdu nga xam ne du fii fépp ba muy ba ko Cheikh Sidaati di dénk ak di ko ko san muy euh, dem di ko tabax Cheikh Mohamed Fadel bi Cheikh Mohamed Seck doon wax ay xéewalam depuis sànq te nga xam ne rawdu boobu ñëpp a nga koy ziar Sénégal gi la ñuy jógee ba foofu di ko ziar kooku bokk na ci pierre yu importante yi nga xam ne moom daf ko posé ci tarixa xaadiriya mm-hmm. mais c'est seulement à titre d'exemple parce que Cheikh euh, Ousmane li mu def ci tarixa xaadiriya foog naa loolu tamit xajul ci émission déedéet mm-hmm. gis naa Cheikh Thierno Ndiaye di fàttali tamit keroog bi Sénégal ak Mauritanie réeré réerowee mhm. jéego yi mu ci dox ba ñaari président yi toog ba ñaari dëkk yi juboo mais surtout vraiment pour euh, bañ a euh, mobiliser euh, émission bi nga xam ne ku nekk mu ngi bëgg a dugg mhm. wax lépp moom Cheikh Ousmane de toute façon lépp lu mu defal euh, Cheikh Saad Boof njabootam. Mm. shérif yi chaque jour ñu ngi ko koy fay. Mm. firnde bi ci ëpp ak lu ma gën a marqué mooy keroog bu mu génnee àdduna. Mm. ni shérif yi jël ñëw fekk ñu toog ne leen dem leen toogee nee ndax Cheikh Ousmane suñu Cheikh Ousmane la. da ngeen ñuy delloo suñu néew ñoo koy defar ñoo koy jébbal Cheikh Saad. fin de semaine bu metti woon ndeysaan dégg ngeen dem Cheikh Ousmane dem ci ëllëg sa Cheikh Ousmane bi muy génn àdduna bi muy tëdd. Mm. bi tàggoo dafa ne bu ma xëyee suba damay def délégation pour jaale ji dëgg. ci loolu la ko yàlla jëlee. mais daal li ci am solo. Mm-hmm. keroog la toog Ndaparu ak waa conseil supérieur Xaadiya. Mm-hmm. ak euh, chérif yëpp. jour boobu ñëw dafa mel ni woon tàggatoo ndax jour boobu la wax ne que simmi na mbubbam bi solal ko Cheikh Ousmane Diop boobu il était président des jeunes di conseil supérieur Khadria pour l'Afrique mhm. ak teg ko sama mbagg yu ndaw yi li mu ci jublu woon nag mooy sa volonté de vulgariser ay enseignement Cheikh na Cheikh Sadbou Hayatou loolu pour moom défi la woon défi bu mu réussir nag parce que comme li ñu wax fii Cheikh Saad bu moom ay jëfam fii ci euh, Sénégal umpul kenn. ay miracle am umpul kenn. Hmm. Euh, xanaa ñuy mu demoon mu doon ci bay waaram ba jóge fi bi muy dem nag daf ñu ne ñun tamit nañu ci góor góor yu bay ci suñu waar. Hmm. fexe taalibe xaadir yi parce que bu ñu fàtte ne que à l'origine quand même était la xadria ndax xadria mënoo ko génn Touba. Mm, mm, mm, doo ko génn Touba ñoom Mor Maam Anta Sali ba Cheikh mm-hmm. mënoo ko génn Tiwaawan. déedéet mënoo ko génn Njaasaan. déedéet mënoo ko génn fenn. wallaahi. donc buñu waxtaan. bu ñuy waxtaan rek dañuy wax ne à l'origine de tout ça était la xadria. donc volonté boobu mu am. vulgariser enseignement Cheikh na Cheikh Saad Bou yi je pense que ñun ñi jeunes yi on doit peut-être euh, s'approprier tous ces enseignements là di ko doxal parce que bu ñu koy doxal tey jii ci ci jamono comme ni ko Cheikh Mouhamed Seck waxee sànq. Mm. je pense que jamono bi dina avancer ci anam bu rafet. c'est sûr surtout jàngale mag ñi. ndax Cheikh na Cheikh Saad Bou xeertu miracle rek la woon. Mm-hmm, mm-hmm. foog naa bu ñu sukkandikoo ci enseignement yi nga xam ne ñi toog foofu tagg ñi koy tagg ak shérif yi mu fi bàyyi. Hmm. maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen rendre hommage di leen euh, yeesal sama taalibe buñ leen toppee je pense que njëriñ rek lay doon ci biir réew. Hmm. mooy quelques kàddu rek yi nga xam ne bëggoon ko ci sànni. te nag. Euh, dëgg comme Cheikh euh, Mohamed Seck li mu wax sànq. Mhm. dañ ne dafa ne du ñu wax quartier général dañuy wax pays général mais foog naa dañuy wax continent général. du ci xaj sax wala monde wala monde général. <laughs> exactement ñemewuma ci woon yegg. merci di leen gërëm lu bare di leen sant. jërëjëf maître. vraiment xool yi tooy nañu torop torop torop wallaay wallaay ay taalibe Cheikh Saad bu yu wér a wér wér lañu. wallaahi. wallaahi vraiment. ngërëm rek lañ leen deseel. jërëjëf jërëjëf Dior. jërëjëf kontaan nañu lool maître euh, Dior Diagne avocat à la cour Cheikh Ousmane Diagne baayam moo jiite woon conseil supérieur xaadiriya bu Sénégal ñu euh, dénkoon ko ndeyam ju baax jooju euh, ajatu peneere ñaan lii mënul woon ñàkk ci participation donc maître Dior jërëjëf ci woote bi moo tax ma ni ñiy bëgg dugg ñëpp duñ leen mën dugal. ñiy bind ñëpp duñ leen mën tudd ndax saa yoo fi waxtaanee ñu mag ñi rek ku ne day réagir ku ne euh, euh, sa ëtt nga am ku ne sa maam nga am ku ne sa wayjur nga am ku ne say mbokk nga am donc réaction yi di jóge fu ne heureusement ba Sénégal lay xewee te comme on toujours benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc ñu ngi gërëm euh, dëgg-dëgg képp koo xamante ni rek yaa ngi rafetlu tey jotaay bi defe naa dañuy dem retrouver internautes yi en attendant ñu may woowal ñeneen ñi ñu leen di ñaan ñoom it ku ci dugg rek na nga jéem gàttal ndax comme kilifa yi ñuy waxtaane xajuñu ci quartier général donc bu ñu guddal euh, euh, commentaires yi euh, ndax mu mën neex bañ mën ñu mën jeexal kant ci tonton mag del wax lu leer yow it taay da nga mel ni ku dotom tonton mag koor gi jàpp na ko daa mel ni lu dotom kan nga wax tonton mag taay taay da nga mel ni lu corona sawla koor gi teel na laa jàpp booy ñaa voilà booy ñaa booy ñaa booy ñaa mbër waaw waaw Boy Niang waaw mën na dugg donc très très très très très rapidement xam nga nit koor gi jàpp na ma <laughs> totom ak taay daal dotom jooy ñaa looy jooy mu ne ma waxu ba jooy naa <laughs> Boy Niang laa wax jërëjëf kër Khady Gueye <laughs> Boy Niang waaw salaamaaleykum Pape Cheikh. aleykum salaam wa rahmatulah da nga def jàmbaar. maa ngi lay ziar di la bëgg bu baax. ñu ngi ñu ngi ñu ngi delloo ziar xanaa bëgg nga. waaw kontaan na lu baax suñu xol tooy na. wallaay Ibrahima Ibrahima Cissé mooy wax sànq ba tey yaa ngi jéem woote. waaye bilaay walaay billaay xam nga ñun am amuñu loolu seex na seex Saddu. xeertu xeertu xeertu xeertu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñu nga bokkal plateau bi. ñu ngi lay fay mbër. di nuyu Mohamed Seck. di nuyu sëñ Modou Cheikh Modou Mboup. Mhm. ak Abdou Ndiaye di leen bëgg bu baax. Mhm. Oustaz Pape Am maa ngi koy ziar sama papa la sama lépp la. macha allah. di ziar ñëpp ci jotaay bi. jërëjëf. di kontaan bu baax di wax ne ñun amuñu loolu Cheikh na Cheikh Sall. xeertu. moo defar suñu maam Cheikh Ibrahima du maam Seck. wallaay. comme li Paa du wax rek moo ko def muy bu rabaan. kon bu ñu amee émission bu toll nii daal suñu xol daal day tool day fees. Hmm. waaw waa kër Cheikh Cheikh Ibrahima Ndoumane fépp fu ñu nekk rek ak waa kër Cheikh Cheikh Sall ba fépp fu ñu nekk ci monde bi ku nekk sa xol tooy na. wallaay bëgg na dugg waaye ñëpp mënuñoo dugg. wallaay dugg wallaay. wallaay waaw ñu ngi ziar xalifa bi nag muy Cheikh Ayabu du Cheikh Talibou Yo. xëy yàlla na fi yàgg te wér. amiin amiin ñu ngi ñaan suñu borom mu yàggal ko fi bu baax te wér. allahumma amiin allahumma amiin. waaw yàlla dogal na mi ngi Dakar suñu toll nii sax. macha allah. waaw ñu ngi ziar suñu wasila yi ñuy seetaan suñu yëpp ñu leen di seetaan. ñu leen di ziar waaw waaw waaw ñu ngi leen di déggee di kontaan ci waxtaan bi. jërëjëf Boy Niang. waaw fi mu toll nii dañoo aalu moo tax du ñu sori dañoo aalu. wallaay xam naa. <laughs> waaw di wax Mouhamed allah foofu la ñëw sama kër incha allah. Ah. may naa ko sama terrain bi nekk ak Rose. ah. waaw billaay walaay la ñëw ci barke Cheikh na maa ko def a jërëjëf Boy Niang. waaw di ko ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm. di kontaan bu baax yaay nit ku baax yaay nit ku ñu lay wax ne sama yaay dégg sama yaay mère Anna Seck waaw mu alaaj Samb Ndoukoumane Seck ak sama papa Dégol ñu lay seetaan ñu ngi kontaan ci lépp. ana père Dégol. père Dégol mi ngi fi ndeysaan taalibe Cheikh Moussa Sall mi ngi. xanaa xanaa daanu na leer tey de. non daanu na sama yaay <laughs> sama yaay sama sama yaay comme li Pa Modou wax léegi alaaj Samb Ndoukoumane doo ko jur di nuyu sama soxna di nuyu waa Ansar ñëpp. jërëjëf. waaw sama soxna sama sama bi jigéen la waaye Cheikh Moussa Sall laa ko tuddee. wa xeertu. waa jour na mi dugg léegi moom may soxna maa ngi koy nuyu ak Makko Ansar. gëm rek a wóor waaw jërëjëf kontaan nañu. jaajëf Boy Niang jaajëf Mbër. kontaan nañu ñu ngi lay gërëm bu euh, baax ñoom ñëpp ay taalibe lañu. Euh, mhm. gëm rek a wóor. voilà gëm rek gëm rek. gëm euh, ragal féete sax day xañe wërsëg. Mhm. as gor day féete. Mhm. li ajot Sodo Bousso mi bëgg loolu Cheikh na Cheikh Saad bu ma ngay daanu moom it fa mu ne. naan as gor as gor day ngiro xam nga oto bu dugg ci suuf fu bëri suuf da nga fay ngiro. voilà donc ngiroo dafa am solo. Mm. Euh, ñu ngi ndokkeel njaboot Cheikh Yérim Ndumbaan yëpp. Mm. Ah, ñoom ñoom ñoom Codou sekk ca itali ñoom Maguette Ndiaye ah, Cheikh Yérim sekk mi nga xamee ni moom lañu ñu sama jigéen bu baax boobu di faa euh, nit ku nit ku baax euh, ak bàjjan Ndey Conni Ndey Conni Diop ca France ak Adja ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar defe naa mën nañu jëlaat beneen kilifa na ngeen ma wol nag. Euh, euh, euh, suma yaay boobu ma leen yónnee message am ci taxawaayam ci ëttub Cheikh na Cheikh Sadbu xayaartu voilà donc ñu jokkoo ak sunu beneen sang di Chérif Yakoum bu xalif bi waaw defe naa defe naa defe naa Chérif Chérif mu ngi ci mu ngi ci ligne bi Chérif ñu ngi lay ziar di la ndokkeel kontaan lool Chérif Yakoum ay dara Euh, moom euh, euh, ci guddi gi tey mu defal ñu moom it honneur participer ci quartier général ñu ngi lay ziar bu baax Chérif. allo allo. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleyk salaam aleyk salaam Aydara. Euh, cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ay dara ñu ngi lay fay bu baax. Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. di rafetlu émission bi. jërëjëf ay dara. ñu ngi nuyu ñu fa teew ñëpp ku ci nekk turam ak santam. di jiital te nuyu bi suñu xaalis général de xaalis Cheikh Aya doomu doomu Cheikh la Cheikh Sadou. waaye jur. di ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi yokk ko wér bi. allahumma amin allahumma amin allahumma amin ay dara. Pape Cheikh ñu ngi la nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay ay dara Chérif. Pape An ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu ustaas yi fa nekk ñëpp ak soxna yi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay ñoom ñëpp ay dara shérif sama goro la nuyu fay leen ko. ñoom ñoom ñoom ay dëkk seen bi di doomu Cheikh Yérim Ndumbaan. Cheikh Mohamed Seck. wax Mohamed. di di di doomu Cheikh Yérim Ndumbaan di doomu Cheikh Ahmad Abdoulaye Seck di doom tamit di Cheikh Baye Cheikh Seck. Baye Cheikh Baye Cheikh Seck. ay dara di wax ne ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax ci tulu turu aali bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu émission bi wax dëgg yàlla di tamit nuyoo Youssou Ndour di nga xam ne ne moom mooy directeur général di président directeur général bu TFM hmm. nga xam ne ne lii yëpp alhamdulilahi rabbil alamin moom moo ko waral wallaahi kon alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla jullitu yonente bi sallallahu alayhi bu ñuy wax nag ci Cheikh na Cheikh Saad bu yaakaar naa ne dañuy wax li mu wax rek. moom Cheikh na Cheikh Saad bu dafa ne. Hmm. yaa man yaqiisunaa bi miqyaasil ghashaa taqaasar wal amru anka mustatar. loolu lu mu wundu. li annanaa fi qaybin fi qaybin fi xada wala yaraanaa illaa xaaliq albashar. Hmm. masa masa. cheikh la cheikh Saad bu nee na xaybu la ci biir xaybu te yàlla subhaanahu wa taala di ko sàkk rek moom moo ko mën a xam. dëgg profondeur. kon alhamdulilahi rabil alamin bu ñu jëlee tamit ku mel ni comme cheikh Sidil Xeer bi nga xam ne mag la ci cheikh la cheikh Saad bu. xeertu. baayam su cheikh na cheikh Mouhamed Fadl jox ko ndigal ci zahir ak ci baatin ne ko demal ci cheikh na cheikh Saad bu mu defar sa ba aajo àddina ak àllaaxira hmm. oustaz mi ngi doon wax léegi xasida bi nga xam ne moom la ko cheikh na cheikh moom la ko cheikh sidal xeer euh, bind mm-hmm. muy al saad al ilahi wa saad al wara wa saad al suudi li ahli lamam ak ni mu ko liimee yëpp alhamdulilahi rabil alamin ba yegg ci benn bayt boo xam ne bi mu koy ne nu samdil ilahi siyir ka samat kadal xaq toonu tuuran nu samdika am Baye Cheikh alhamdulilahi rabbil alamin wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. suñ doon wax ci Cheikh na Cheikh Saad bu yaakaar naa ne dinañ wax ci moom lu bari ndax ñi mu defar rek tey bu ñu bëggoon xam Cheikh na Cheikh Saad bu mooy kan. Mm. kon dañuy jaar ci ñi nga xam ne defar na leen fii ci Sénégal tey tey tey tey loolu rek doyoon na pour ñu xam kan mooy Cheikh na Cheikh Saad bu. wallaay loolu rek fekkee na ni mën nañ koo xam. wallaay loolu rek doyoon na programme ay dara. leen di sant bu baax di leen di gërëm wax dëgg yàlla mënoon nañu gën a guddal. walaay. ndax bu ñu doon wax ci Cheikh na Cheikh Saad bu du jeex du xaaj te xam nañ ci lu bari te mën nañ cee wax tamit lu bëri. wallaahi ay dara. kon ñu ngi rafetlu initiative bi bu baax a baax a baax a baax tamit di rafetlu tamit liggéeyu TFM. jërëjëf ay dara jërëjëf. kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen bëgg yëpp yàlla leen ko yàlla defal bi jaahi nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf ay dara kontaan nañu bu baax bëggu ñoo yàgg ti antenne bi ndax xam naa ne ne am na yeneen sang yu wallaay barkeelu la woon rek waaye Cheikh Modou bëgg naa nga nuyul ñëpp xamante ne ñu ngi ziyaare ñëpp te nañ ci ñëpp doon wax ak yéen nag moom mooy Chérif Yacoub Aïdara doomu Cheikh bu nan na doomu Cheikh Sall Boye doomu Cheikh la Cheikh Sadd. macha allah kon yàlla ñu yàlla nangul ñu ñëpp di jaahi nabi Mustafa. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan nañu yàlla suñu sunu borom fay la euh, ñu ngi lay ndokkeel bu baax euh, nuyul ñu xalif bi ak euh, njaboot gi yëpp kontaan nañu ci barkeelu ki barkeelu gi tey. Euh, soxna euh, Fa Bintu Fa Bintu Diop wala Fa Binta mi sikkar mm. euh, moom it mu ngi rafetlu jotaay bi ñu ngi ko ci gërëm bu baax di ko ndokkeel Cheikh Yacine Doucouré nag laa bëggoon ñu jot ko ci ginnaaw ndax moom wooteem dina am njëriñ voilà voilà donc nañu ko nañu ko jot rek quoi voilà moom moom duggam dina am njëriñ euh, balaa ñuy delloowaat euh, kàddu gi euh, Cheikh Mohamed Seck mm-hmm. bay ànd ak du Ndiaye ci quelques commentaires internet rek def tour de table def contribution ah ci <laughs> barki guddi gi non <laughs> oh, Mado <laughs> Mado sama àq Mado sama àq bu ko dalu tey ma xam ni ku am ñaan la ok mu ngoog donc yàlla na yàlla sàmm ñëpp rek. Euh, ba ñu àggalee ak suñu sago yàlla yàlla baax na euh, ñu jokkoo nag ak euh, suñu yaay suñu xarit Cheikh Yacine Doucouré yaay booy ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel xam naa ni fa nga ne bëgg nga lool ci guddi gi ñu jagleel Cheikh na sat bu sa soppe ba allo waaw allo asalaamaaleykum. aleyk salaam aleyk salaam ale Koddo Kalasaan. Euh, maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay fay ñu ngi lay delloo ziar Doucouré. di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf Doucouré. di ñaan yàlla message bi fekk leen ci jàmm. allahumma amin ale Koddo Kalasaan. di ñaan yàlla. defal leen jàmm àdduna ak alaaxira. allahumma amin. maa ngi gën santaat yàlla di gën a julli ci rasulullahi sallallahu di sant seen Cheikh Sadbou. xayatu xayatu. Ould Mohamed Fadel Aïdara. Mhm. maa ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax di di di siyaar sërif yi di siyaar waa kër Rasulullah yëpp maa ngi leen di siyaar. sallallahu alayhi wa sallam di leen di seen wàccuwaay di siyaar xalif général des xaadr Cheikh ay Aïdara. macha allah di siyaar njabootu Cheikh Taalib bu yooyu yëpp. Mm. ndax lëg bu lekkee alam na ko gërëma cooy lii initiative bu rafet la. Mm-hmm. maa ngi gërëm TFM di gërëm Youssou Ndour. Mm-hmm. di gërëm ñëpp ñu toog ci plateau bi. di leen wax nga leen ne eh, lii nii benn tarixa boo leen woowoon rek woo ngeen yëpp. wallaahi Tijaan Murit Xaadir Laayeen yëpp. ñoo bokk. Mm. ndax ñëpp ci rasulullah sallallahu alayhi wa te lii politique gu lislaam la. Mm. tarixa yi. Mm. waaye lépp ci rasulullah sallallahu alayhi wa eh, di leen xamal tamit ne. lii ngeen di def nii. day boole ay xol. wallaahi. day tari boole ay tarixa di mm-hmm. doon benn. di yëngu di sotteendoo di dóorandoo TFM kese moo ko fi def. Mm-hmm. yàlla na télé bi yàgg. yàlla ngeen am jàmm. allahumma amiin Youssou yàlla leen ko fi yàlla defal. amiin yaa rabbi allahumma amiin ci barke ay dara tamit Youssou Ndour ku wér. allahumma amiin euh, man nag. Cheikh Yacine Doucouré bii hmm. ngeen wax. nañu ma ko yokkal Cheikh Yacine. dama am xalifa. kenn mënu ko ci yoon nañu yokk sama xalifa baay. ok ñu rep mu représenté xalif général des xaadir bi. Hmm. ci Pikine tali bu mag. ñu fay dalal. Cheikh Xamar am nañu ko ci yoonu doomu Rasulullah yëpp di fa dalal xalifa bi. yoonu xaadir bi euh, kon tey bu ma duggee ci turam. damay sant bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf Doucouré. maa ngi sant waa kër Rasulullah yëpp. sallallahu alayhi wa sallam sant ñëpp. di leen wax tamit ne que euh, rasulullaay géej la kenn mënu koo jeexal déedéet hmm. ak tam géej la kenn du ko jeexal ku ne day wax rek bàyyi sa morom wax waaye yàlla mi am jàmm yàlla nañ jàmm allahumma amin ci réew mi jàmm allahumma amin yàlla musal ni ci musiba yi ak balaa yi hmm. dàq fi mbas mi musal nu ci mbas mi dàq fi mbas mi génn ko ci Sénégal génn ko ci Europe. Mhm. génn ko ci Amérique génn ko partout dans le monde. amiin yàlla musal nu ci. amiin maa ngi leen di ziaraat bu baax di leen jox seen wàccuwaay parce que yàlla sama doom. jërëjëf yaay booy am sama xarit ñi toog ci plateau yëpp. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf maa ngi def nag addiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seen essence. Mhm. dinaa leen jox cinq cent mille. macha allah ñu def ko essence yéen ñi toog ci plateau bi. jërëjëf ngeen def ko essence ma koy ziare waatee waa kër Ali Baytu Rasul yëpp. jërëjëf waa kër Cheikh Mohamed Fadel Aïdara waa jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cheikh Yacine Doucouré ñu ngi lay gërëm bu euh, baax yow kenn nga ci yoon wi yàlla na sa taxawaay yàgg donc yóbbanteem euh, euh, daanaka jàll na joxe nañu ko Modou Ndiaye ñu jël quelques commentaires peut-être ak quelques questions ak internautes yi. quelques commentaires kay la ñuy la ñuy daal di ñëw. ci euh, internautes yi seen réaction bari na. <laughs> ñoom ñëpp surtout message bi nga xamante ni mën nañ jàpp ne ñu ci bari ci internautes yi jël nañ ko. daal koy partagé tey ci waxtaan bu am solo yi surtout benn waxtaan lañ benn wax la ñuy wax. moo di euh, nekk tey ñun xamuñu suñu mag ñi tey euh, mën nañu wax ni ren saison ren bu quartier général bi ñuy message bi benn la ku ci nekk euh, gërëm na bi nga xamante ni borom xam-xam ñu ngi fiy ñëw di ko partagé lu am solo la te message boobu la lañ gën a seetlu ci hashtag bii di QGTFM 2020 bi nga xamante ni internautes yi bari nañ di ci réagir tey nag remercier nañ bu baax kii di Mouhamed Seck surtout ci waxtaan beek niveau bi mu yóbbu débat bi ak xam-xam gi nga xam ne jëlee nañ ko fi wala jàng nañ ko fi te nekk na lu am solo li nga xamante ni réaction yi seetlu nañ ko ci lu baree bare ci internet yi question yi nag du bari xam naa fi muy jeexalee ren ndaxte ñëpp ci euh, ñu ci bari ci internet yi réaction yi nga xamante ni gis nañ ko fii au delà des réactions yenn question yi mooy relation euh, bi nga xamante ne Cheikh euh, Cheikh na Cheikh Saad bu am na ko ak famille yi religieuse yi nekk fii ci Sénégal ci mel ni Tivaouane ak fële ca Touba ak yeneen famille religieuse yi nga xam ne ñu ngi fi xam naa ni foofu lay foofu lay jeexale loolu daal seetlu nañ ko ci leneen li bi moom da nga sama lañ ci surtout seetlu nañ ni internet yi seen réaction bari woon na ci ñu bëgg xam lii di tertu bi réponse bi je pense leer na ndax ñoom ñëpp euh, salué nañ ko en tout cas euh, Pape Cheikh tey daal wax ji benn la euh, maanaam remercier nañ bu baax ñi nga xamante ne ay borom xam-xam lañu ñi fiy ñëw surtout pédagogie bi nga xamante ni ñu ngi koy jàngal ndaw ñi te loolu message bi jàll na continuer leen di di réagir ci suñu page Facebook ak Twitter ak Instagram bu QGTFM 2020 wala suñu plateforme yu nekk ci groupe Futurs média mën ngeen am aussi temps fort bi ci euh, King FM bi nga xamante ni aussi ngi partagé euh, li nga xamante ni ñooy coulisses yi am fii ci quartier général surtout ak suñu équipe digitale bi nga xam ne mi ngi ci ginnaaw Pape Cheikh di remercier waale aussi tey euh, internautes dañu exiger ñu wax ñaar ñetti tour rek Euh, Jeylaani Pouy fële ca fële ca Mbaaw moom tamit euh, kontaan na lool ci bés euh, ci waxtaan bi nga xam ne jëlee nañ ko fii ak surtout ñeneen ñi nga xamante ni ñu ci mel ni Siré Dia fële ca Médina mi nga xamante ni moo nekk fële ca Jaraaf bu Dakar ak yeneen seen réaction ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci fidélité bi surtout ak ni ngeen scotché teewaayu teewlu waxtaan bu am solo bi fii ci TFM Pape Cheikh. Ndiaye. waaw seetlu gu mag goo xamante ni. ci seen diggante ñoom mag ñi. ndax booy seet cheikhul xadim tuddee na cheikh abdou xaadir jeylaani euh, muy sëñ abdou xaadir ima ilimaan yi yi ma bëggoon mu leeral ma ci tuuti diggante moom ak cheikh cheikhul xadim bu ñu demee ba yegg si ci cheikh abdou xaadir jeylaani ndax maa ngi gis waxtaan wi boobu ba léegi egseegul foofu te bëgg naa mu ñemal ma ci tuuti rek ci cheikh abdou xaadir jeylaani mm-hmm. ñaareel bi ak euh, relation bi mu am ak ahlul kunti yu ñu sant kunta mm-hmm. maanaam naka la demee ak ñoom ndax it euh, ñoom ay xaadir lañu naka la ndax kunte géeg ay dara gi maanaam nu mu demee waa lu mu demee waaw très bien waaw loolu laa moom euh, am ngërëm rek euh, wala am mbégte plutôt tey euh, ci fekkee waxtaan bi parce que man dama naan Cheikh naa Cheikh Sadbou wa xeertu bokk na ci mag yi nga xamante ne ñun dañu leen réere dañu dañu dañu waaw dañu leen réeré je pense que c'est le xamuñu leen torop bokkuñu euh, parce que euh, ñoom seen tarixa xaadriya euh, bokk nañu ci tarixa yi nga xamante ne peut-être ñoom ñoo gën a rangé fi nga xamante ne moom moo ci Sénégal ñun ñu leen dégg lu bëri bokkuñu ci affaire wu àdduna yu bëree bëree bëri peut-être ci jamono bii sax lañ leen di gën a dégg nga xam ne ren bu dul woon ak mbas mi heure bi ñu ngi waajal di dem Nimzat ak yu mel noonu donc loolu nekk lu nga xamante ne tey honneur la ñuy am ñoom ñuy wax euh, fekkee waxtaan bu am solo bi nga xamante ne euh, moom la Mouhamed euh, def ci Cheikhna Cheikh Sadbou waaye leneen lu nga xamante ne i tamit am na benn internaute d'ailleurs bu ko wax léegi ci bi Mamadou Ndiaye di jàllale kii yi Euh, te man depuis sànq dafa nekk di travailler sama esprit on a l'impression que kenn c'est même pas une impression noonu la demee kenn mënu ko xaajale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que durant waxtaan bi yëpp ñu compter le nombre de fois bi ñu wax sallallahu alayhi wa sallam comme pour dire euh, yonent bi dafay doon day day ñëw di ñëwaat à tout moment quand il faut parler de Cheikhna Cheikh Saad Bou wa xayartu donc tey honneur la am ak mbégte euh, fekkee waxtaan bi ce que peut-être bu ma amee benn laaj boobu la est-ce que jotul nag quand ngeen gën a euh, fës euh, par rapport ak liggéey bi nga xamante ne wala lu am solo li nga xamante ne moom la fi Cheikhna Cheikh Sadbou euh, bàyyi parce que man franchement tey li ma fi jëlee yépp ci lu ndaw li nga jot a waxtaan rek jàpp naa ni ñun xamuñu réellement mm. nit ku màgg kook nga xamante ne moom lañu suñu borom def voilà contribution bu am solo c'est vrai que euh, au fur et à mesure ñu recevoir ñoom jàngalekat yi euh, ci la ñuy découvrir bu baax yu bëri yoo xamante ni peut xale yi bu ñu góorgóorlu woon dinañ ko xam ci mag ñi et c'est très important ñaatam sekk waaw Pape Cheikh euh, fii euh, euh, fi mu daaneele rek foofu laay yëkkatee coro mm. parce que à chaque fois suñu invité ñu mel ni suñu kilifa yi da ngay am mbégte ba pare fier bokk ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque fa boo ko boo leen dégloo mu mel ni am na loo xamante ne yàlla ji may nañu ko te loolu richesse la donc tey xamale nañu bu baax ak li nga xamante ne mooy tarixa bi ñun dañ ko doon dégg rek waaye li coro wax dafa am solo gën ko yaatal gën ko xóotal ba tax bind bu ñu yem sax ci ci li nga xamante ne mooy livre yi mais di ko di di di ko jàngale sax ba nga xamante ni ñi nga xamante ne tey jii mel na ñu ñu man seen jàng soriwul noonu ñu ñu ñu ñu ñu gën a xam euh, kan mooy Cheikh Sadbou parce que yàlla jox nañu ñoo xamante ne tey jii ñun dañu ko war di damoo un peu partout dans le monde un peu partout tamit ci fi nga xamante ne fi la ñu nekk muy muy muy muy Afrique gi ñu gi ñu bokk donc dañ lay encourager bu baax baax a baax di wax ni euh, macha euh, allah macha allah boo koy xool léegi laa ko wax Mado ne naa damay xool Mado ba si ak ma ne ko ndekete ñun xamuñu dara mm. parce que man ni muy génnee euh, naturellement ni ni mbir mi di génnee ci yow mm. jàng rek am solo ak ak ak li nga xamante mooy mooy xam-xam mooy nit kon yàlla la fi yàlla bàyyi ba ci kanam Madeleine waaw Baye Cheikh ni ko ñaata mbaa mm. xaw naa sax xame sama lañ ci mel ne sa àq mi ngi may bëgg a dal sama waa eh, waaye sant rek xanaa di ko félicité waat waaye man du ma ne guléet mm. ndax jot naa taxaw fenn foo xamante ne muy prêché mm-hmm. nee naa leen bu doon sànq sax bu jógoon taxaw ci ne ñuy gën a xam àll bu mu àndal mais macha allah liñ fi jot a déglu yëpp Euh, maanaam gis nañ ni que kenn koo xamante ne dafa jàng la macha allah donc ci loolu tamit dinaa ko laaj parce que euh, étant jeune parce que li ñuy wax àddina c'est la jeunesse ñoom ñoo war a yore réewu ëllëg yàlla may la chance bi sol la xam-xam te ngay intellectuel quand même de haut niveau di liggéey ñun xam nañ ko est-ce que jotul aussi ngeen xalaat lu ne mel parfois c'est vrai di prêcher mais bind ko. wala sax def ko ay bande peut-être nit yi di ko mën a jëfandikoo ci école yi comme ça euh, ñoom dinañ ko mun a jëriñoo donc je pense que yow am nga maqaamu bind donc il faut que tu écrives et comme on dit les écrits restent ci loolu tam eh, damay jàll rek eh, yóbbante la ay nuyoo yoo xamante ne comme eh, yóbbante àq la Baye Cheikh boo ma ko mayee rek rapidement donc ku mel ni Chérif Ibn ca Mauritanie Ibrahima mi ngi lay nuyu ku mel ni ab Chérif ay dara sànq ba léegi mi ngi yónnee bataaxal si Chérif ay dara ki nga xamante ne moom moo di sunu mag di Astu Rasul moom itam mi ngi yónnee bu baax ay bataaxalam sànq ba tey donc di la féliciter ak di la ñaanal bu baax a baax sunu yaay ji maman Diobé di coloré Adja génn moom itam ak ki nga xamante ne nag moom moo di euh, Ibrahima Niang di président xadri fii ci Dakar moom itam ñoom ñëpp daal ñu ngi lay ñaanal épp ñu lay euh, félicité di la encourager ba pare nag di santaat ci li ñu bokk euh, fii nga xamante ne moom moo di Sénégal sunu réew parce que notre pays est rempli de richesses et bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nous ne pouvons rendre grâce allah sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla rek euh, euh, ñu ngi gërëm euh, encore famille yu Cheikh Ousmane Diagne yëpp am na adiya bu duun boo xamante ni ñoom def nañ ko jagle pour Mohamed ak ñi mu àndal Cheikh Modou Mbuub ak équipe yi. Euh, donc ñu ngi gërëm encore bu baax euh, njabootu Cheikh Ousmane Diagne yëpp bàyyi maître Dior Diagne euh, avocat à la cour ak njabootu Cheikh Pénère ñaan yëpp suñu yaay jooju nga xamee ne ñu ngi ñaan moom it mu gudd fante ànd ak wér ñu ngi joti ci yeneen i yóbbante bii mu ngi jóge ci sat bu sàmb sa xarit Cheikh Modou moom nee na bëggoon na woote sànq ba tey waaye àddiyam mu ngi toll ci deux cent cinquante mille Euh, yoo xamee ni euh, guddi gee ko ko jaral moom it ñu ngi ko ci gërëm bu baax xam naa euh, waxtaan wi daañu ko delloo léegi Oustaz Assane mu dem ak Cheikh Mohamed Seck ci dernière partie bi. Mhm. waaye Cheikh Modou dumb man président fan club bi nee naa sànq da ngeen gàttal ci Cheikh de Law te loolu itam xaw naa ko naqarlu am na itam. waaw. Sadou Labiaye borom jaroole. ko moom tabaati mbay ak maa jaati du beeg mbéri daaw jare ngoone borom xëy noote maam Cheikh de Jalaw hmm. nee na bi Cheikh na Cheikh Saad bu di dugg si Sénégal alxayru tajud yowmal biitu jaalat na xudul wujudi imaami kulli mal jaat na Cheikh de Jalaw nee na góor gi déggal may lo wax loona amar faal su li ya ndar géej yóbbu sëriñam ba saa waraa maa njaati nu ngañ mbéri neena alxayru yow mal biitu jaalat na xutul wujuudi imaami kuli marjaana pour wan yoo eh, maa njaata baati bay neena inni man kontaan naa faritu jamiana soxor farixu ñu ne ko Cheikh day calaw ndax laan dee de nguraan mu ne xuddu Musa du lebbi li laa yi suqaat naa Cheikh day calaw nee na dee de nguraan xatal xusuur kalan jaaru xot fari woo gaañ ne leen burwal yoo ee eh, maa jaata faat bay nee na maa hmm. jaata faat xam na li baay sil nabil Mustafa خير نبي ذي الأولى والاختفاء ثم صلاة ربنا لطيف على نبي ذي نسب الشريف شيخ day gelaw nee na yonent Yàlla Muhammad wa ba'du fa'lam anna khayra al-mughtanami بعد كده بلاد النسب الأممي moom سيدنا محمد لأنه أنساب للجنان وأسرق صدور للإيمان فحكما جمدوا في سراء minum fokkum bil wi xabira gaañ nee leen bural yoo waaye déggal seena seen turaat wul doo abbas nee na lu mu wax góor gi nelaw ci betwaaru ndakaaru njaay alhamdulillahi alal wasila mm-hmm. alhamdulillahi dafay sant sëriñam cheikh na cheikh Saad Bou xayartu mu ni la naa ni majzila cheikh na cheikh turat ibnu abbas nee naa la sànq danaan def soixante-dix mille la ilaha illallah par jour mu ni la naa ni majzila cheikh na cheikh turat ibnu abbas moo ni muridu cheikhi faasa bi yuridu fa inna muriduhu fatar rashidu mu ni la naa ni majzila billaahi kenn du Cheikh na Cheikh Saad bu loo bëgg succès loo bëgg réussite loo bëgg barke boo làkkoo ci ginnaaw Cheikh na Cheikh Saad bu am ko. mu ni la moo jazila. mu ni taalu saadatan min zaaka is laa yaluzu bi saadina illa saidu. mu sant naa yàlla ci wasila. mu nii la naa ni'mahu jazila bi nga xamante ni mooy boroom xéewal yu mag yi su ma ala wasilati mudtari su ma topp ala wasilatil mudtari ki nga xam ni mooy fegloor yi salaatu rabbuna muzilu turri yàlla na yàlla julli ci moom te sëlmal te muy sayidina muhammad wa ana wasilati adu ci barke sama wasila maa ngi ñaan man cheikh na cheikh turaat biyaali kulli arabin arjo lépp luy sama aajo yàlla na ma ko fajal. wasilati seexu suyuxu zil ula. déggal nee na wasilati sama sëriñ seexi suyuxi mooy sangu sang yi zil ula mooy ki kawe. saadu rabbi. mooy cheikh na cheikh saad bu. saadu rabbi. mooy xalifatu mun xamin waxoon naa ko fii ci émission Sira xanaa xamoon ni moo créé Bultuf moom Cheikh na Cheikh Saad Bou. dama ni ko xanaa xamoon ni Cheikh na Cheikh Saad Bou moo créé Bultuf. Saadu la bi man sama wa kamala. àddina ñoo may déglu dama ni Cheikh na Cheikh Saad Bou kenn du moom moo créé Bultuf. Saadu la man sama wa dafa am cheikh bu ñu naan cheikh Zenoun li cheikh hmm. Zenoun li dafa tarbiya cheikh na cheikh Sadbu. Hmm. bëgg koo way parce que gaa yaa ngi way cheikh na cheikh Sadbu. billaay kenn du cheikh na cheikh Sadbu. Sadbu le bii man sama wakumala. cheikh Zenoun li xool sëriñam ba bëgg ko cheikh na cheikh Sadbu bëgg koo way waaye munu koo way. saadule bi man sama wa kamala Oustaz Assane Cheikh Zenoun li ñëw ci Cheikh na Cheikh Sadbu ni ko Cheikh na Cheikh Sadbu yow dama la bëgg a way saadul ebi marsama wa kamala. Cheikh na Cheikh Saad bu ni ko am nga ay nag mu ni ko mu ni ko demal jox ma ci téeméer. saadule bi man sama wakumala. cheikh Zanul li dem dajale nag yi ñëw indil cheikh na cheikh Sadbou. saadule bi man sama wakumala. cheikh na cheikh Sadbou ni ko yëkkatil sa mbubb cheikh Zanul li yëkkati mbubbam. cheikh na cheikh saadule bi man sama wakumala. cheikh na cheikh Sadbou yëkkati mbubbam jël dënnam taf ci dënnu cheikh Zanul li. cheikh saadule bi man sama wakumala. son bi nekk ci dënnu cheikh na cheikh Sadbou activé wu daw dugg ci dënnu cheikh. Cheikh Zenoun li saadu la bi man kama wa mala kooku tourné ni ko xafadanil ayyaamu mulqan saqiman faqidul aqli yawma baanu wa binna saadu la bi man sama wa mala am sati duuru baada layla tululan ma tara fi al aynu illa aghanna Cheikh saadu la bi man sama wa kamala moom moo lay fekk ci géejug bàkkaar moom cheikh na cheikh Saad bu làbbali la dugal ci géejug teranga Saad la bi man sama wa kamala kooku tourné ni ko ana sultaanul aashiqiina li annani qad darastul ashwaaqa fannan fa fanna cheikh Saad la bi man sama wa kamala wala cheikh Zanoun li 9 heures doonul dara 10 heures mi ngi reñaan ci pays yàlla yi cheikh Sadou Lebi man sama wa kamala. ki ko def mooy cheikh na cheikh Sadou mooy sangu sang si moom moo matal. Sadou Lebi man sama wa kamala. moo tax cheikh Tourane ko Sadou abi yow yaa cheikh na cheikh Sadou man sama yow yaa kawe wa kamala yaa mat. asalo bi sihni saada. ci sa gi maa ngi ciy ñaan texe man cheikh na cheikh Tourane. wa ayna uluma wal ibada. ci sa gi maa ngi ciy ñaan xam-xam ak jaamu yàlla. wa daali dunu wa diinil xawim ci sa daal gi maa ngi ciy ñaan dunu woo mooy jege yàlla ak diinul xawim di diine gu sax wa ba i ba wa biril azim ci sa baar gi maa ngi ciy ñaan baax moom cheikh yow cheikh na cheikh turat ibnul abbas summa bi waawihi wusul sa waaw gi maa ngi ciy ñaan egg ci yàlla ak jege yàlla waa ci sa haa gi maa ngi ciy ñaan ihdina siratal mustaqim ma tegu ci man cheikh na cheikh turat rabbi xinaa mina nawaaxi yow yàlla yàlla nga ma mugal musal ci barke juróom-benn yi. si tati bi si tatil xuruufi faqiya umdati. ci juróom-benn lettre yi nga xamante ni mooy sama bëbët man Cheikh na Cheikh Touré. kon nag jaloore yaa ko moom Sadou Ndiaye borom jaroom. macha allah macha allah macha allah Modou yaakaar naa Baye Cheikh. waaw yaa xam sas. Euh, euh, xol yëpp tooy na. wallaahi képp ku euh, njabootu Cheikh Sadou Abihi wa xayartu rek. Hmm. yaakaar naa ne tey jii sa xol sori na rawatina si gudd weeru koor ak. comme ni ñu koy waxee euh, numéro bu inédit bi ñu jagleel ko Cheikh Saadou abihi wa xayartu waaye xam nga mag ñi waxtaane leen xajul si carte générale xajul si génn guddi maa ngi koy wax oustaz Pape Pape Anbar ko démb ma ne ko Sénégal yàlla jagleel nañu ay mag ya nga xamante ni bu doon bés bu ne da ngay jël benn mag sax di nga jeexal trois cent soixante cinq jours yi te mag ñi duñu jeex macha allah ndax loolu la ñu subhanahu wa taala defal xanaa ñu yëwante fi ay ziar rek euh, Cheikh euh, Modou docteur Oumou Ndaw bi daan defal conférence chaque année fële ca euh, Nord Foire mu ngi yóbbante ay nuyoo xam nga moom surtout Cheikh de de euh, waaw moom day celaw la mu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ziar itam ci nga xamante ni fa moo Mamadou Cheikh Moustapha Mbaye di taalibe Cheikh Atqana nekk fii ci Pikine rue 10 euh, Cheikh Moustapha ñu ngi koy nuyu ak maire mbay borom armal bi bu baax El Hadji Sele Pouy si mbaaw di njaboot El Hadji Ablaye Pouy moom itam ñu ngi koy nuyu ak Cheikh bi ak ñoom may mun a ñëpp man am naa sama mag mu bokkal benn baay. Hmm. Cheikh Adramé lañ ko tuddee. xeertuwul wallaahi kon maa ngi koy nuyu Cheikh Adramé bu baax ñoo bokk benn baay di ko nuyu di nuyu njabootam gépp fa tabarakallahu ak soxna si jaara ñu kenn. Euh, daayira Qadiriya bu yoof Cheikh Ndiaga Samb moo ko jiite suñu maam jooju nee na moom itam mu ngi joxe ziyaaram bu baax a baax a baax ak ki nga xam Mamadou Mouhamad si la euh, soxnaam di setu Cheikh Day Calaw ñu ngi koy nuy bu baax Baye Niass moom photographe nee na mu ngi nuyu Siré Dia xaritam la soppeem la fa tabarakallahu daanako guddi gi moom xam nga ne weesu na xaaj wallaay weesu na xaaj weesu na xaaj mënul ñàkk mënul ñàkk si la bokk ndax ñoom ñëpp ay soppe lañ te ki ñuy waxtaane fa tabarakallahu macha allah jar na ko Mamadou Ndiaye génnal si man euh, Cheikh euh, Mouhamad mhm. euh, question yi yaakaar naa dégg ko ak ni nga xamante ni noonu la noonu la tegloowee mhm. ak ni nga xamante ni itam nit ñi noonu lañ ko noonu lañ ko laajee xam naa comme waxtu wi xóot na rek fa tabarakallahu macha allah li ñuy mujjee laajte rek euh, bu fekkente ne amul yeneen ñuy jógee fële si ñëw di ñëw mooy sànq tudd nga wirdu bi waaw wirdul qadri mhm. nga xamante ni yaa ngi wax naan yuxni an kulli wirdin wala yuxni anhu wala yuxni anhu wirdun waaw loolu lañ bëggoon boo ñu ci mënee faram fàccee rek incha allah waaw Cheikh na Cheikh Saad Bou waxa yartu dafa ni wérdu xaadir bi nga jàpp di wérdu mhm. wa zaaka min xaydarata aliya wa zaaka min saydina nabiya wa zaaka min jibrila min rabbi sama mhm. yow taaliba cheikh na cheikh Sadbu bi. Mm-hmm. yow xaadir bi. Mm-hmm. yow mi jébbalu ci tarixa bi. Mm-hmm. xamal ni wérd bi. yàllaa ko jox Jibril. mu jox ko Seydina Muhammad. sallallahu yàlla moo jox wérd bi Jibril. jox ko Seydina Muhammad. Seydina Muhammad. wérdu ko di xaadir. mu jox ko Seydina Ali. Seydina Ali ko di xaadir. mu jox ko Fatima Fatima wérdi ko di xaadir mu wàcc ba ci Xasan ak Xuseynu sama turandoo ñu ay xaadir direct moom lañ ma tudd moo tax cheikh na cheikh Abdul Qadir Jilaani nii mhm. ana alxasani wa miqdamu maqaami wa aqdaami ala unuqi rijaali mhm. man xasan mooy sama maam man cheikh Abdul Qadir Jilaani mhm. waaye jël naa sama tànk bi teg ko ku kuy ndodd góor yàlla cheikh na cheikh Saad bu waxoon cheikh ajjuma ba ñu mhm. ko faalam yaa cheikh ajjuma ba na mhm. anna muridi law kaana yashrub alxamra mhm. wa yanqati'u fi shawaari la daxala aljanna yow cheikh ajjuma ba xamal sama taalibe man seex na cheikh Saad bu bu daan naan sàngara bay tërëf bu doon naan sàngara bay tërëf ëllëg dinaa ko ram mu dugal ko àjjana xam nga ni oustaz Assane sàngara mooy umul xabaay si dëgg la mooy ndaw yu ñaawteef yi ndaw yu ñaawteef yi cheikh na cheikh Saad bu ni mm-hmm. faalam yaa cheikh ajjuma ba anna muridi law kaana yashrub alxamra wa yanqatixu fi shawaarici la daxala aljanna mm-hmm. sama taalibe bu doon naan sàngara bay tërëf ëllëg yowmal xiyaam morom mu dugal ko àjjana macha allah moom taalibeem du naan sàngara moom cheikh na cheikh Saad bu waaye dalay wax garaat bi mu doon ci maamum sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kattan bi mu doon ci maamum sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye taalibam day orienté wu rek tegu ci ihdina siraatal mustaqim mhm. parce que wérdi bu boo koy wérdi mhm. sa xol day laab mhm. sa ruux day sell da ngay namm yàlla da ngay aspiré yàlla da ngay nekk ci keppaaru sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam booy dee nag da ngay wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nga xam ne mooy kàddu gi nga xamante ni moom la maamam waxoon sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku mu mujjee génn sa làmmañ sa yaram aram na safara waaw cheikh na cheikh Saad bu xam nga vingt-deuxième jour du mois de ramadan la génn àdduna wa xëyarti Cheikh Cheikh Saad bu Oustaz Hassan dinaa faral di wax daa takk juróomi màndargay texe juróom waa kii ñuy waxtaane tey mhm. daa takk juróomi màndargay texe mhm. moom saadu la mhm. texe la saadu la tudd texe la moom Cheikh na Cheikh Saad bu day dee ci mois de ramadan texe la moom Cheikh na Cheikh Saad day dee di julli texe la ci kaw daram la deewee macha allah moom seex na Cheikh Saad bu day dee naan laa ilaha illa wa xëyartu texe la macha allah yii màndargay texe mhm. moom Cheikh na Cheikh Saad bu da koo takk mhm. moo tax keroog ba muy sukuraat mhm. ni yaa nafs anna alqabra xallafaahu fa quli laa ilaha illa allah maami shérif yu sell yi Cheikh na muy sukuraat dafa ne bakkal na ngi ŋàng bëgg maa lekk man Cheikh na Cheikh Saad bu saxal laa ilaha illa allah allahu akbar ni anhu bi maa siwaahu bul am beneen bëgg-bëgg bul namm leneen saxal ci laa ilaha illa allah macha allah tazakkuri bi waxdati iyaahu mhm. fàttalikul ba ma nekkee ci àddina mhm. am activité mun a dox mun a wax mhm. kon tey bu ma demee bay génn àddina saxal ci laa ilaha illa allah ñu ni ko yow na cheikh Saad bu kan mooy laa ilaha illa allah mu ni rabbun karimun maa la lanaa siwaahu benn buur la bu baax te amul ñaareel saxal ci laa ilaha illa allah nii la cheikh na cheikh Saad bu génnee àddina mu mel ne na yonent bi génnee woon àddina moom la cheikh na cheikh Saad bu génnee àddina mm-hmm. ndax moom dafa doon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. man jaddahul mustafa bil irsi akmalahu mm-hmm. yaa habaza jaddahu fi rusli wal umami cheikh na cheikh Saad bu mooy góoru yàlla boobu nga xamante ni dafa jeex tàkk ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni sayidina muhammad doon dundee noonu la cheikh na cheikh Saad bu dundee macha allah macha allah ba cheikh yaakaar naa euh, cheikh muhammad li mu andi tey euh, nekk na la nga xamante nii lu lu lu yaatu la waaye nekk na la nga xamante ni itam lu doy waar la ndax comme ni ñu koy faral di waxee depuis quartier général bi tàmbali mag ñi moom xajuñu si génn guddi ndax lépp la nga xamante ni am nañ ko si rek dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy barkeeloo mm-hmm. ñu ziar bu baax soxna may la euh, alwaali moom doom la si chérif alwaali maami euh, maane Ndiaye ko moom suñu xarit la ñu ngi koy ziar bu baax chérif alwaali almaami maane Ndiaye di ko ñaaneel yàlla gudd fan ak wér ak Cheikh Aya nga xam ne moom mooy xalif général des cadres ndax deretu Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh mm-hmm. réew mi mu nekk war nañ sant yàlla ah. deretu Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weer xam na ma leen euh, euh, réew mu nekk mu mu nekk war nañ gën a u si diine ndax almaru ma aman ahabba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nee na nit moom ki mu bëgg rek mm-hmm. moom la ko yàlla di booleel mm-hmm. waaye xam na suñu borom subhanahu wa taala xam cofeelu sénégalais yi si Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mag moo fi jël xoolal maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu ni nga koy waxee taawloo Caatlo Murtada mm-hmm. yaa ngi tudd léegi Cheikh Mouhamadul Fadel ku mu ko tuddee mooy Cheikh Mouhamadul Fadel mm-hmm. du keneen te loolu yëpp day delluwaat si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeel ga nga xamante ni am na ko am na ko si njabootam ak nag ñi nekk si réew mi ñëpp nag mm-hmm. fa tabarakallahu macha allah kon Baye dañ lay delloowaat kàddu gi rek mu ngoog fa tabarakallahu macha allah si studio boobu voilà 4h13 euh, du matin euh, mën ngeen jóg waaj xam naa ni kenn tëddul ndax ki ñuy waxtaane jar na ko walaay ni ko lim juum waaye mm. euh, soppe yëpp ñu ngi euh, leen di ñaanal ci barkeb Cheikh na Cheikh Sadbu euh, ci barkeb Cheikh Dethialaw ak góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh na sad bu ak euh, ñi nga xamee ni ñoo sukkandiku. Hmm. Euh, ci ay mbiram donc ñu ngi euh, leen di ziar bu baax yore na ma fi nag ay enveloppe yu mujj defe naa war nañ ko mën a tëjee. Hmm. bu ko defee ñu dimbaliwaat yenn ci ay téléspectateurs rek très rapidement laataa ñuy tëj Cheikh Yérim Seck moom fa mu nekk kontaan na ci jarbaatam bi Cheikh Ahmed Seck ci waxtaan bu am solo bi yar moom dafa am solo te Ahmed. Euh, gis nañu yar gi ak mm. pédagogie bi nga xam ne ni moo nekk ci yow yàlla na sunu borom euh, yàlla na sunu borom dëgëral la euh, madame Thiandoum maam Sira moom ma ngay daanu leer fa mu ne <laughs> ndax cofeelam ci Cheikh na Cheikh bu may xalaat shérif yëpp ñoom baxayda waaye kenn du alwali maane Njaay sunu sang boobu la nga xam ni li ñuy ñaan rek mooy sunu boroom gën ko dëgëral te yàggal ko ndax euh, euh, bis bu jot ñu euh, jot yóbbanteem ak taxawaayam di ndokkeel itam sunu yeneen sang yi nga xamante ni ba léegi rek ñu ngi rafetlu jotaay bi suma frère Pape Seck Abdoulaye Seck doomu Amara sekk la donc moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax donc très rapidement maxu xam naa sax ni koor gi teel na laa jàpp waaye dugalal ma rek tuuti téléspectateur <laughs> mënul mënul mënul ñàkk di ndokkeel itam euh, Chérif Dié euh, Chérif Dié bu Colobane euh, ñoom Adja tout la famille kontaan nañu ci guddi gi Adja Soda Jaxate cité Ndey Marie bëgg Cheikh na Cheikh Saad bu wa xayaartu moom tamit ñu xam naa copine maire Touré la <laughs> mairie dañu def seet mbootaay de la ilaha illallah donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, ñu ngi leen di ziar euh, Cheikh Yacine Doucouré euh, yónnee na ma léegi téeméeri junni yi Cheikh Modou dinaa la yónnee quatre cent yi ah jël sama lekk ah na ko kat nag <laughs> maay président fondateur ak <laughs> ak ah, <laughs> ba pare jotu ñoo gisee màkk jël jël naa sama wàll ca ca nga waroon dool sama dowis waaw <laughs> damay tooñ dinaa ci teg <laughs> Chérif Mahfou euh, borom Ansar euh, moom it euh, ñu ko ziar bu baax ak njabootu Cheikh Diakha Siré Yaaya woon ak toute la famille Baba Yaaya ñoom tamit ñu ngi leen di ziar bu baax Mbacco nuyul ma ñoom ñëpp ñoom Maguette ci taxawaay bi tey ale gaaw leen ak euh, woote yi Alice Newman maak moom ñoo bokk fan sa club cinq minutes de cinq minutes de Pape voilà kontaan nañu euh, Bijou Ndiaye ma nga këram ndax cas suspect la waaye nee ci émission bi la bokk parce que ñun ñu jël risque ñëw yow doo laal dara yow yow Bijou Ndiaye allo. allo. allo. Pape Seex man la Fatou Sarr. yow la. Fatou na nga def fan ngay wootee. yëmbal. xanaa xëddëgoo moo tax ngay waxee nii. non non ba tey. macha allah ba xanaa xanaa bég nga. bég naa kontaan naa. am nañ caat bu tudd Cheikh Saad bu ci kër gi. wallahi kenn du moom. kenn du moom macha allah. wallahi wallahi ah yow kon duma la téye lu yàgg xanaa ma teel laa jox addiya Cheikh na Cheikh Saad bu. macha allah voilà jox la ñaar fukk yoo xamante ni rek daal moom ngay moom ngay moom ngay xëyee. macha allah macha yaa ko moom saar kontaan nañ ci yow ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup maa jërëjëf mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax bu leen ko nañu ko jël ci ginnaaw mën ko yónnee visières yi naa ci song <laughs> xeex nit ndax sama. collègues yi ci ginnaaw ñu ngi mel ni ay soudeur métallique feebar bi moo doy waar ñoom ñëpp a visière xamewu ma kenn même grand jamu âgé bi sax dama foogoon ne ci booy yi la dekk ak grand bee def visière nii oulala mais ça te va trop des visières ou des masques moom daa aj visière non tout vu gis naa ay masque cuir gis naa ay masque wax waaye moom Abdourahmane daa jël visière bi rek aj ko ci kaw affaire bi féete kaw mu jël masque am takke nii c'est c'est du style Euh, parce que parce que masque yi dafa xaw a austère ah maa dégg tubaab austère ko dégg dafa xaw a donc du rafetal ko tuuti euh, ça peut rendre <laughs> ça peut euh, xool bi ñu lay xool <laughs> di ndokkeel nag suma xarit bu baax bi di daa jaañ nit ku baax gi fekk nañ ko Suisse ba tey mu ñibbisi bëgg réewum lool ñu dénk ko nag yu bëri ca Sénélec xam naa dinañ ko seeti fan yi da koy jar rek <laughs> sacrifice rek ay sacrifice ay ay rek ay sacrifice yu ñuy def rek di ndokkeel nag suma papa monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye nga xam ne dafa jege woon lool Cheikh Ousmane Diagne euh, moom euh, tey yaramam daw na ci euh, taxawaayu maître Dior Diagne ak njabootu Cheikh Ousmane Diagne yëpp donc mu ngi féliciter te remercier maître Dior Diagne ci taxawaay bi Chérif Abdallah Aydara bu Baya Euh, moom it euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye euh, mu ngi koy gërëm di ko ndokkeel moom bokk na ci njabootu Cheikh Ousmane ñun xam nañ ci dara ndax ci doon nañu daal ñu fekke yu bëri xëy na léegi la mbir yi jaxasoo rek ba ku ne bokk ci waaye fekke nañ yu bëri ci taxawaayu monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye ci digganteem ak Cheikh Ousmane Diagne donc loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax jóg leen waaj il est 4 heures 19 xam naa euh, balaa ñuy delloo kàddu gi euh, gu mujj gi ki nga xamante ni mooy euh, Ahmed Seck ndax am na ñu nekkaat ci ligne bi maxu nu ñuy def wax leen ma bu ko defee ma mën a dimbali maximum de téléspectateurs ci 88 628 76 76 wala 88 628 99 80 628 76 76 ci guddi gi ci télévision Futur Média tey ñëpp békk allo. allo. kooku. alo alo allo waaw def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm baax. seetal rek noo ma gisee. man maa ngi ci jàmm bëgguma ko ma koy wax. fan la te na ngeen def. ça va. waaw. waa ñuy kontaan bu baax ci ci ci waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi koy topp boobu ba léegi ñu ngi ko waxtaan lool dégg nañu ci lool. jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf. dégg nañu bu baax a baax a baax surtout nag ci euh, début nga xamee ni ñu doon jël siwaat ci dugub sëñ Ababacar si bu démb bi. di mm-hmm. euh, mu waxewaati nit ñu fexe ba nekk benn boole diine ji mag ñi ñu sàmm ndono ñu fi bàyyi woon. wallahi exemple. day lu am solo day doon lu rëyit nag. wallahi wallahi ndax diine ji mag ñëpp benn lan mm-hmm. eh, ñoo bokk yonent bi sallallahu la wa sallam ñoo bokk penk bi ñoo bokk waxtu yu juróom dëgg la waaw kon lépp loo xam ne luy xàjjale diine la na ko daw waaye comme dañu ne bu la noonoo kenn koo xam ne dégg nga ci làmmiñam wax putu baatub laa ilaha illallah boo kenn noonoo wallahi papa ndeysaan kon ñëpp ay ay ay jullit lañ ñun ñëpp yàlla suñu borom lañu yaakaar àjjana yi lépp àjjana yi suñu borom la nekk la ci yóbbu mm-hmm. waat nit ñi daal ñu nekk benn jaamu kenn ku ne fa nga féete nga féete fa rek loolu am solo. loolu am solo wallaahi. waaw dégg nañ ci nag lii vraiment dégg nañ ci lool moom dégg nañ ci trop trop trop dégg nañ ci. ah ñun de ñun de nañu papa yaa ngi wootee fan. maa ngi wootee Bambey. yaa ngi wootee Bambey taax wala séeréer. Euh, Bambey taax. Bambey taax waa kay yow day xanaa dama lay jox addi rek euh, bu toll ci ñaar fukki junni nga dimbali ci njaboot gi. d'accord waaw baax incha allah. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu yàlla yàlla dëgëral la. amin amin amin lii dafa dafa rafet lool dafa rafet trop. wallaay lii mooy Sénégal lii rek a ñu tax a jóg. waaw démb démb appelu sëñ sëñ Ababacar Sy Mansour doon koo seetaan mu daw yaram. loolu amatul loolu dootul amati. Euh, mu ngi ci anaan yi li am solo mooy la sëñ la sëñ dafa newoon Bamba sikku Maodo sikku ku na Bamba sikku Maodo sikku ku leen di sikkal yaa waaw te ñoo bokk ñoo bokk seen lépp maaram Mbacke meññ Thierno Fari Mbatu meññ Mati Mbacke euh, balaaji alaaji Malick Sow si maaram Mbacke meññ maam Bal meññ maam Anta Sène meññ Serigne Touba ko lépp kenn la. wallaahi. jërëjëf bég nañ ci lool nag bég nañ trop. jërëjëf jërëjëf jërëjëf nañu nuyul ñu euh, waa Bambey yëpp. Euh, ci woote bi ñu ngi la ciy gërëm bu baax donc ñaar fukki junn yooyu daal euh, yaa moom ñu ngi euh, la ci ndokkeel Adja Diallo Adja Inda suma mag la mbokk ndayam Binta Xuma Diop téléphone ba mujj naa fay yàlla baax na maa ngi koy ndokkeel beneen Adja jàllo bi itam suma yaay la ma nga Thiès mbokk ndayam maa fifi ak Rama Diallo ak toute la famille léegi ñu continuer rek ak woote yi permettre Assane Euh, Cheikh Mohamed def euh, kàddoom yu mujj bu ko defee ñu mën a euh, tàggatoo dellu siwaat xam naa ca ca kanam am na yeneen surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar ci prochain numéro bi xanaa rek ñu jël beneen appel allo allo allo. salaamaaleykum aleykum salaam aleykum salaam wa rahmatullah. waaw Cheikh Pape Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay fay papa kooku. man la Cheikh Khadim Diagne bu Cheikh Yacine Doucouré. ah laa ilaha illallah ay waay waay waay lu baax jibati na. waaw yàlla dogal tamit ñu nekk cheikh bi gën a ndaw ci réew mi. dëgg la cheikh bi. waaw di leen nuyu di leen ziar. rafetlu plateau bi. jërëjëf jërëjëf. waa mbir yi nag li jiitu tey li ci gën a neex mooy bërki démb boo dégloo ki nga recevoir mu toogal fa Cheikh Ibra Fall ah, wax bi ëpp pertinence ci lim wax mooy Cheikh Ibra yëkkati na alalam jox ko pour ñu dem siyaare ji Seydi Hadj Malick Baye Njaga Jóob démb bal bi dellu si yàlla dogal tamit ka fa toogal Seydi Hadj Malick wax ne xalif général Tidiane jox na ko ndigal ne ko boo demee ba mu mukaram nga xam ne foofu la aajo yépp di fajo dëgg la de sama bërëb ba bala ngay ñaanal kenn jiitalal sëñ Muntaxa Mbàkke kon mbir yi rafet na lool wallaay rafet na ba pare dama buggoon nag ñaan Cheikh Mouhamed Seck mu ñëwal ñu ci lenn ci ñun xaadar ndax Cheikh na Cheikh Saadul Abi bi mu ganee àdduna mhm. balaa bés bi di dellu si way juróom bu jigéen dafa gaañ mhm. baayam a ko nàmpal mhm. mu wax nu ko baayam nàmpal laa nekk tamit ci plateau bi jox naa leen un million àddiya te dinaa leen produire bu ñu génnee foofu bu leen boo leen bañu publicité bi sax ma wax leen fa ñuy dem ñu defal leen album ak clip lépp dinaa ko fay. moom Cheikh Boumi euh, dégg euh, Cheikh Cheikh Cheikh Modou man temps ibbi naa ay studio sax. moom de da koy def. Cheikh bi. kii da koy def incha allah kon Pape. Euh, kon kay sotti na. dof la kon sotti na incha allah. jërëjëf ci yow yow yaay def lépp nga wax ma kuu bi lan la. ñu ñu faj ko. très bien maa gën a gaaw ma dellu nuyuwaat suma waajur bu jigéen. jéem a ndax lëg bu lekkee alam na ko gërëm di jërëjëf jërëjëf. di gërëm seen xalifa baay Cheikh Saad bu Dukkure. di gërëm magam Cheikh Saliou Dukkure ak Cheikh Daati Dukkure seen Saad bu góor. jërëjëf. di gërëm Cheikh Cheikh Saad bu yi nekk Pikine yëpp waa Saabatu. ah waa kër Cheikh Fat Mbacke. allah. ak ñoo xamante ni nii ay taalibe Cheikh na Cheikh Fat bu lañ nekk Pikine xeertu xeertu di ñaan suñu xalifa Cheikh Aya. Mm, Cheikh Aya doomu Cheikh doomu Cheikh na Cheikh Fat bu. xeertu yàlla bàyyi ko fi. allahumma amiin maam gudd fan ak wér. allahumma amiin ndax ñun tamit. barilewuñu ko te loo bari ci àdduna danga koo war di sakkanal. wallahi wallahi wallahi ndax moo fi des ci doomu Cheikh taalibe wallaahi wallaahi. mag fekk ci ñi seex na Cheikh Sadbou. xayartu jur directement. ndeysaan. jërëjëf jërëjëf di delluwaat di santaat yàlla. Hmm. di wane ni mbir yëpp rafet na. wallaay lépp di ñaan yàlla mu dëgëral leen. amin barkeel leen bu baax a baax a baax. allahumma amin allahumma wàllu production bi nag bàyyi naa ko ci sa loxo moom kay suba bul naa leen ko. dina la yónnee kuu bi buñ jugee foofu incha allah. Euh, dinaa teg sa loxo si un million nga jox leen ko ci kàttanu yàlla. jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ko def addiya soxna Cheikh. incha allah kontaan nañu kon Cheikh Modou naa la convoqué yow sax yaay inauguré sama studio bu bees bi ma ibbi fan yi dina ma jaral dind matériel léegi ñaari micro rek juróom ñaari xiin rek éco ko. non mais parce que tonton mag dèjà mu ngi ma naan ah pour fàtte suñu studio ba ci Colobane Bouba wata wat tëj na. fort. <laughs> Oh, macha allah donc yàlla na yàlla na jàmm yàgg yi yëpp dafa neex li mooy wane rek ni Sénégal nii la ambiance bi euh, da ngay dem suñu kër par exemple sama papa day dañuy ta dañuy dañuy tànnaa sante bu ma ñëwee rek ne ne ko man waa Ndindi laa mu ne moom waa Tivaouane ñeneen ñi ñëw ne waa Xelkom lañu donc yii mooy neexal euh, euh, Sénégal te pourtant dafa yàgg am na lu ñu tuddee cousinage apparenté maa dégg tubaab moom nga plaisanterie moom ngeen tuddee kalante kalante dafa neex nga am sa kal di ko tooñ moom it mu lay tooñ day indi jàmm ci seen biir ah. tooñante bii ñuy tooñante rek dina tax ñuy éviter euh, di gën di xalaat euh, yenn ci ay stress yoo xamante ni ñoo ngi koy dund donc kilifa yi fii ñëw ma répété waat encore ni c'est toujours un plaisir de recevoir ay borom xam-xam ay conférenciers ay nit yoo xam ne dañuy ñëw ak euh, pédagogie boo xamante ni au sortir de chaque soir de chaque émission dañuy xam ni mag ñi rek fi ne te leneen nekk fi xale yi nañu ko xamee noonu et c'est bien ndax fan yi daa mel ni Sénégal daa am épidémie ni euh, tout le ko regarde jusqu'à 7 heures du matin c'est bien waaye liñ ciy jëlee itam ci quartier général dafa am solo ba nga xam ne ni euh, dëgg-dëgg amuñu fayuk euh, borom xam-xam yi nga xam ne ni ñooy jël risque euh, guddi gi ñëw toog ak ñun waxtaanee mag ñi tey nag ñu doon waxtaanee Cheikh na Cheikh Saad bu xayartu xam naa Cheikh Mohamed Seck kàddu yu mujj yi da nga koy dëxëñaaleeg li Cheikh bi laaj léegi waxtaanee ko ci ku tedd ki nii dafa teel ñàkk way juróom way juróom bu jigéen waaye nàmpal géeg na mu demee boo ko tënkee dinañu mën a jëriñ ci fajar gi tey ñu xëddaale ko waaw Pape Cheikh yàlla yàlla fay la allahumma min sek du ko nuyu moom xaadim sama soppe la nit ku baax la yàlla ko yàlla fay hmm. du nuyu seen waa kër di nuy soxna Daba Doucouré hmm. sama yaay sama xarit hmm. sànq wax naa la ko wax naa ne àddina ni cheikh na cheikh Saad bu dafa génn ci Mariama mm-hmm. ak Cheikh na Cheikh Mouhamed Vadul mm-hmm. ñaar ñii ñoo jur Cheikh na Cheikh Saad bu wax naa ne la Cheikh na bu Cheikh la mm-hmm. su aadu mooy Cheikh waaye laataa ñu koy ngénte moom Cheikh na Cheikh Saad bu ci la yaayam génn àddina ñu jël su aadu jox ko tantam uxnuuna tantam moo yoroon su aadu ñu jël Cheikh na Cheikh Saad bu jox ko Cheikh na Mouhamed Vadul baayam bu cheikh na cheikh Saad bu jooyee cheikh na cheikh Mouhamed Fadel day jël baaraamu taayaam bi baaraam bii muy taaya mhm. dugal ko ci gémminu cheikh na cheikh Saad bu soow di ci génne cheikh cheikh Saad bu namp ba doyal nelaw dégg mhm. cheikh na cheikh Saad bu jooyee cheikh Mouhamed Fadel day jël baaraam bii muy taaya dugal ko ci gémminu cheikh na cheikh Saad bu soow di ci génn cheikh na cheikh Saad bu nampu ba nelaw. maanaam cheikh na Mouhamed Vadul ibnu Mamin. Mhm. moo yar cheikh na cheikh sad bu. Mhm. moo jàngal cheikh na cheikh Saad bu. mooy sëriñu cheikh na cheikh Saad cheikh na cheikh Saad bu moom la tarbiya. moo tax. keroog ba Cheikh na Cheikh Saad bu woowee ñaari taalibe mi mhm. da leen la billaahi laa tajzaa fi kulli nazilatin mhm. fa cheikhu qutbul wara man zaarahu rabiha mhm. laa tajzaa innani arakuma abada falaa yaxaafa wala yaxaafu man najaha yéen samay ñaari taalibe Cheikh na Mouhamed Fadil mi ngi Casamance yéen a ngi Dakar maa ngi leen di yóbbu yónni Casamance pour ngeen dégg dem leen ngeen jox ko addiye ji te tiit da di dox Dakar ba Casamance bu tiit foo leen di traversé man Cheikh na Cheikh ngi nekk ak yéen sama bët du teggee ko ci yéen macha allah Oustaz mhm. fi may daaneele mooy mhm. ñu xam ni rek cheikh na cheikh Sadbu yàlla moo ko jox kun mhm. wa amriya amrullahi muskaana amriya mbiru cheikh na cheikh Sadbu ak mbiru yàlla benn la cheikh na cheikh Sadbu lijjanti na ba wax ci affaire science. Mhm. Cheikh na Cheikh Saad bu wax na ci am affaire économique. Mhm. Cheikh na Cheikh Saad bu jàngale na société bi ni muy doxee. Mhm. Cheikh na Cheikh Saad bu jàngale na ci laa ilaha illallah. Cheikh na Cheikh Saad bu jàngale na ci bëgg Seydina Muhammad. te fii lii mu jàngale yépp moom Cheikh na Cheikh Saad bu. munoon ni ci biir école la jàng la jànge munoon ni kii moo ko jàngal. lii mooy kéemtaanu Cheikh na Cheikh Saad bu. macha allah bind na 66 téere. moom Cheikh na Cheikh Saad bu. li mu bind ci xasida nag kenn xamul nu mu toll. ndax 4 ans la commencé bind. ba 70 ans chaque jour mu bind. macha allah 4 ba 70 ans. macha allah munoo na Cheikh Saad bu kii moo ko jàngal. lii mooy kéemtaanu Cheikh na Cheikh Saad Bou yàlla may ñu ko muy suñu chance alhamdulilah yàlla may ñu ko mu ñëw Sénégal alhamdulilah texeel ñu waa Sénégal alhamdulilah dimbali ñu ñaanal ñu waa Sénégal alhamdulilah amoon kóllëre ak Serigne Touba radiyallahu Serigne Touba ni ko salaamun ala cheikhi shuyuuxi mhm. alladi lahu maqaamun rafiun wa laysa yubara mhm. maa ngi nuyu yu sëriñ si nga xamante ni maqaamam dafa kawe ci yàlla ba kenn mënta dendook moom te mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou maam Seydi Hadji Malick ni ko juziitum kufiitum ahla bayt bayti rasulillahi fa minkum xatta alxayratu wa rushdu wa saadu mhm. aya saadu saadu diin chamsu zamanihi yow cheikh na cheikh saad bu yaay sansu diine ji yaay sa jant jamono mhm. kon relation bi nga xamante ne dafa rafet ci diggante góor yàlla yi muy Serigne Touba di Seydi Hadji Malick di cheikh na cheikh saad bu mhm. relation boobu la ñuy doxaat ndax ñun ci wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu la ñu cheikh na cheikh saad bu yar diine l'islam benn la amul parparloo ngoy leen ci yéen a bokk Seydina Muhammad maa ngi nuyu fépp fu sama soppe nekk mhm. ndax lii dafa neex mhm. doon xale di yëngu ci diine mhm. di yëngu ci yàlla ak Seydina Muhammad cheikh na cheikh Saad bu defar sa maam cheikh Yir mu ndumbaan ñu suul ko ba mu am fukki fan ak ñaar sulli ko muy ñaq fii ci Tiwaawan cheikh na cheikh Saad bu ni ko sa sët boo am dina mokkal alquran bul watooti ndax ëllëg yowmal xiyaam karaw bu nekk dina ram mu nit dugal ci àjjana macha allah na cheikh saad boo ko garanti woon suñu maam cheikh irim dumbaan mm-hmm. kon ñun mënuñu fay cheikh na cheikh saad bu maa ngi sama soppe yëpp mm-hmm. di fàttali rek mm-hmm. ni man ci la maa ngi nuyu waa Pouss yëpp di nuyu sama directeur général bi Balde di nuyu ñaar ñi ma àndal muy cheikh Modou Mbuub Mm-hmm. di Cheikh Abdou Ndiaye ak ñi mu àndal. Mm-hmm. di nuyu sama receveur Keba mm-hmm. Kabir jén ak direction poste di nuyu samay soxna. ndax yàlla dafa ma dénk ay soxna. ñu ñu baax ci man. macha allah yaru. macha allah ma leen di nuyu di leen ñaanal yàlla. di nuyu suñu suñu kër kër Cheikh Rimdou Bane. di nuyu kër Cheikhu Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp. waaye nag di nuyu waa kër Cheikh Ahmed Ndiaye. ndax samay soppe lañ samay xarit lañ. di nuyu waa kër Cheikh Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp. Mhm. Pape Cheikh. waaw di waa TFM. Mhm. ndax ñoom ñoo ñu may occasion. Mhm. ba ñu mën a expliquer kan mooy la chance divine. c'est normal muy Cheikh na Cheikh Saadu. c'est normal wasalaatu wasalaam ala rasulillah. wa sallam. waaw euh, gis nga mu ngi nii de. Zou lii la almaktum radiyallahu anhu doon wax. nee na tant que nitu diine ki demul si biroom liggéeyi ñëw waxtaanee diine rek kon diine ji avancé wul. mu ngi liggéey waaye teewul tey ku bu waxul woon ñu bari dañuy defe ne si euh, euh, diina ji rek la nekk kon li mooy l'islam avancement la li mooy l'islam jàng la laaj man daal li ma si mën a décortiquer si si lu gàtt mooy ku yebu wutil xam-xam ndax jamono xam-xam la ñu nekk Baye Cheikh. jërëjëf yi aw saas ñu ngi lay gërëm bu euh, baax rendez-vous ak yow xam naa. Euh, lundi suba la ñu ngi lundi suba suba waaw ñu ngi dèjà wareef Ramadan. waaw wareef Ramadan di sonn oustaz Pape moom daa teel a tëddi. waaw sant yàlla oustaz Pape An ak la na ma fi tey la ma fi mais sant yàlla. dafa teel a tëddi parce que daa am lu muy enregistré léegi nii ci beneen studio bi en fait. waaw loolu moo tax mu dem foofu noonu. waaw parce que dañu koy diffuser ay côté 6 heures du matin. waaw waaw xam nga ñun ñun rakkam ndax hmm. wax dëgg yàlla. Euh, te rek loolu rek la war a mën a magal mënal magam kon sant yàlla bu baax a baax a baax macha allah euh, ziar soxna Khady Cissé madame Lo yor franco arabe Nourou Salam fële ca Mbour ak frère am Khoudia Cissé rendez-vous incha allah 11h ak Seyda Fat Bintou incha allah oustaz Mor Thiam ci wareefu Ramadan guddi gi ñu ñëwaat si carte générale incha allah Baye Cheikh mu ngoog jërëjëf yaa oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax euh, kon mu ngoog Modou Ndiaye ñu libéré la yow itam ah incha allah tey gërëm fan sa club beeg yooyu. ñëpp ñëpp <laughs> di gërëm ñëpp. <laughs> di daje ba ci kanam ñu ñëwaat incha allah 22h incha allah incha allah Ablaye. kontaan yàlla na yàlla jàmm bi rafet na de. jërëjëf ah, ah. roy ci yow rek. macha allah. <laughs> merci euh, Thioro jërëjëf. Hmm? naata. xeertu macha allah naan la fekk yéen ñi kontaan en tout cas on a reçu pas mal de messages mun ñu lire yëpp mais ñun tamit kontaan nañu bu baax Maya Sy Euh, moom mi ngi depuis Kër Suuf Rufisque moo jàppee ci tenu bi il est joignable au à Soxna Fët ma koy waxee commencé moom mooy bi mm. moom également il est joignable au 77 334 42 51 Pierre Kébé yow tamit kontaan nañu merci beaucoup et à tout à l'heure incha allah. incha allah merci beaucoup ñaatam Seck yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax ba nga sant xëdd ngay jooy mais bon euh, on a encore le temps 4h37 amaat nañu oustaz defe naa amaat nañu une heure de temps ah 4h37 moo moo jot euh, salaatu bi 5h. 5h28 la ñuy arrêté. voilà donc amaat nañu 5 40 et quelques minutes. Euh, on a le temps ah, on a le temps quand même yàlla baax na am nañu temps am ngeen temps am nañu temps le temps de. le temps de de le temps de xëdd merci ñaatam Seck. merci beaucoup Baye Cheikh amoon mbégte trop bokk ci la famille Sagna du côté des HLM 6 di remercier Tata Anta yi bëri nañu macha allah waaye itam maa ngi sant euh, bijouterie la solution ñoom ñoo euh, takkal euh, di remercier madame Niang et monsieur Niang ñoo ngi nag au 77 554 58 62. Adji Thiam mais également Adji Thiam nit ku baax. macha allah Euh, euh, euh, di ko remercier moom moo ma tëggal alliance. waaw. Eh, euh, raffiné trop macha allah ci li muy jaay mais également Minata Création ñoom ñoo ma defaral robe bi ñu ngi Mermoz elle est au 77 645 85 85 ba beneen yoon Pape Cheikh. incha allah merci beaucoup ñaatam Ndeye Malle yow it ñu ngi lay gërëm bu baax Madeleine. oui bonheur donc maa ngi remercier Serigne Bakke Seck donc nag moom moo di. sama caméraman bi may bunge rek moom itam au passage may félicité waa vision thiessoise donc ñoom it organisé nañ benn journée de solidarité tey fële ca Thiès du ñàkk dinañ ko woon mbokk téléspectateurs yi ndax ay jeune rek nañu macha allah mais ñi ngi def lu lemel ñi ngi leen di encouragé di remercier waat nag bu baax sama benn cousine boo xamante ne Aminata Ablaye Mbaye ñoo bokk benn papa donc euh, maa ngi koy remercier ci message d' encouragement yi ci noonu may nuyu waa Podor gi ma bokk rawatina waa Thiofi ah, ak sama papa yi fa nekk yëpp ku lim juum donc di remercier sama sponsor officiel comme ni ma koy waxee joignable au 77 442 29 16 Baye Cheikh et puis di nuyuwaat bu baax Chérif Ibrahim fee ca Mauritanie Baye Cheikh. mu ngoog kon ñu jeexal ak euh, Cheikh Modou Mboup xam naa di nga ci euh, euh, sànni ñaari baat rek mënul ñàkk ndax lii sa yéene la woon ñu def ko tey mu neex sénégalais yi lool et pourtant détaillé wuñu sax des na ndax ku tedd ki loo war wax ci moom desal. waaye tey defe naa kontaan nañu lool boobu ba tey yaa ngi ciy daw euh, ñu lay euh, gërëm bu baax euh, Cheikh Modou yow itam. Baye Cheikh jërëjëf ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa di sant sunu xalifa général Cheikh Aya doomu Cheikh Talib Boye di ko ñaanal yàlla gudd fan. allahumma amiin ak wér barke Cheikh na Cheikh Saad Maam. di sant bu baax xadara Boye di nguraan. te ko ko jiite tey di xalifa Cheikh day calaw di Cheikh naa Mamadou Seck. Mhm. doomu Cheikh Mamadou Cheikh doomu Cheikh day calaw mhm. waaye ak porte parole kër ga di sunu baay di sunu wasila di sunu lépp ñu koy ñaanal yàlla muy alaaji Cheikh Makhtar Seck borom yàlla nee na mhm. di gërëm sunu yaay Adja Thiassine waaye sunu baay ajaratu Cheikh Mboup alaaji Cheikh Mboup di gërëm nag bu baax a baax a baax a baax famille Cheikh day calaw yëpp maam Fatou sa xarit ca ah, Amérique ca Amérique ndeysaan moom ma tëggaloon reer bu mag ba ca New York maam Borsa Faye As maam Cheikh day calaw waa kër soxna xadijatu yëpp ku lim da ngay juum mhm. waa kër cheikh Saad bu yëpp cheikh Youssou yëpp ku lim da ngay juum mhm. waa kër cheikh Alioune yëpp waa kër mamadou cheikh yëpp waa kër mamadou antama Ndiaye yëpp bàyyi wunu kenn ami cheikh Diagne bu shérif ba nee na mi ngi lay nuyu mhm. eh, di wax joyeux anniversaire sama xarit Badara Gadiaga tey jii la anniversaire am ñu ko Badara Gadiaga waaw diaspora bi yëpp nag ñu ngi leen di gërëm eh. au nom de Cheikh Makhète Diop eh. mu yóbbaaleel ñu diaspora bi yëpp mm-hmm. ndax ñoom ñoo ñuy invité ñu dem foofu di leen taggal yonent bi mm-hmm. waaye di ziar bu baax waa kër soppe El Hadji Cheikh Modou Mboup yëpp bàyyiwunu kenn mm-hmm. mais Pape Cheikh di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kii nga xamante ni si ah, mooy sunu lépp di sunu xarit di sunu soppe di sunu lépp muy yow moomu toog ci plateau bi yow sama soppe nga maa la fonk loolu yàllaa ko dogal waaw maa la bëgg lool waaw loolu la yàllaa ko dogal ah. yàlla na la yàlla jàppale allahumma amin yàlla yokku la képp ku woote ñu ngi koy ñu waaye di bu baax Cheikh Mouhamed Lamine doomu Cheikh Mouhamed Cheybet macha allah doomu Cheikh na Cheikh mhm. di ziar bu baax Chérif Alwali Maane Ndiaye mhm. yóbbante bi ba bi bi la Mouhamed wax bu mel noonu la ma yóbbante ci yow mm-hmm. ne ma lu baax lu nekk waxal ma ko sama lépp la sama lépp la sa lépp la ah. di ñaanal bu baax a baax a baax kii génn àddina muy Cheikh xalifa Khalifa mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla na xippee aljana ci barke allahumma amin borom gëléem gi sallallahu alayhi wa sallam amin amin Cheikh Mahfou Ansar ñu ngi koy allahumma amin Cheikh Saad bu jor bàyyiwul kenn bu ñu limee rek di leen wallaay ku lim képp ku Cheikh na Cheikh Saad bu njaboote rek mm-hmm. ñu ngi lay ziar Chérif Alwali doomu Cheikh bu nan na sama xarit maa ngi koy ziar maa ngi ziar ñëpp ñëpp ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf jërëjëf Modou xaa di nga benn benn benn kii rek comme dama war a dañu war a dem studio ñu répété rek loo xam ni moom la ñuy tëjee mais ndokkeel ndokkeel suma benn yaay Adja Alimatu Mbay euh, moom nag wëllëre ay waajuru Cheikh Mohamed Seck la voilà moom mi ngi mu ngi mu ngi mu ngi lay seetaan depuis sànq la yónnee yóbbante ma yéex ko ma yéex koo wax euh, donc Adja Alimatu Mbay mu euh, Ndey Sufi Mbay ca Thiès moo la moo la sax voilà moom suma yaay la Euh, fonk lool euh, euh, njabootu Adja Ndeye Soxna Mbuub donc ñu ngi koy gërëm bu baax di remercier Mame Fatou Seck ca New York moom itam yónnee na lu bëri yóbbante la bu jógee ci Cheikh Yacine Doucouré Ale Kodog Alassane ak ñi nga xamante ni ñoo àndandoo woon ak ñun tey merci à mag Mac pour cette belle réalisation équipe yi nekk ci ginnaaw Kulim Dioum mais ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm coordination beeg liggéey bu rafet bi ñu ci gërëm bu baax Ibrahima Cissé gërëm tamit Mao Cissé xamee ni moom it euh, dafay euh, jàpp ci liggéey bi Bouba Ndour mi ko produire Corombaar Ndiaye Mamadou Ndiaye Bijou si euh, ci rédaction bu quartier général ainsi que yeneen journalistes yeeg animateurs yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal effectif bi nga xamante ni ñoom la ñu sélectionné pour ñu liggéey ci période de crise bi ci quartier général ñoom Petit Ndoy Mbay Diouf mu Penda Mbay gërëm tamit Abdourahmane Toog mu Serigne Fallou Abdourahmane ñu ngi koy gërëm bu baax Moussa Sène ci kaw gërëm tamit monteurs yi ñoom Mame Ngalaña équipe reportage yi ñoom it ñu ngi ci def liggéey bu am solo euh, technicien yi tout ce qui est caméraman waa décoration lumière ñoom Grand Dia ak euh, ñoom euh, Mansour lamin Bayo ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm pour yow kenn amul sa fay yow bi bi nga ànd ak Youssou Ndour du tey kon tey boo taxawoo équipe yi di ñu yóbbu n'importe quelle heure fu waay dëkk nga dem ak moom euh, ci ay sacrifice yooyu def euh, ñun mënuñu dul rafetlu ko donc Poulo euh, ñu ngi lay gërëm bu baax tase na maak sa ay tey sa ay sa jigéen yu yàgg ndeysaan ah pour ne pas sa ay sa sa gel njëkk yi les premiers go <laughs> les premiers go de Poulo non loolu lu yàgg la c'était il y quelques années mais voilà kon ñu jeexal gërëm ñëpp sant ñëpp on va se retrouver tout à l'heure du ñu wax suba puisqu'il est euh, euh, puisque nekk nañu déjà euh, lundi euh, lundi 11 mai 11 euh, mai nag bis bu garaaw la pour xale yi waa kër Bob Marley yi waaye dafa tombé koor ren 11 mai di ngeen réglé on sera là bu 22 jotee ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal jërëjëf Cheikh Modou. waaw Pape Cheikh. Lavandaria Faramareen. Mhm. Euh, waa immigré bu nekk Lekko. Lekko taxawal ko fii ci jàkkaarloog le virage. Mhm. nee na may na équipe bu quartier général bi fóotu incha allah un mois. jërëjëf Lavandaria Faramareen. Lavandaria fóotu kaay la. waaw. pressing la ah, boo xanaa xale yi leen seen yére tilim yi yow Abdourahmane sa sabadoor bi saf na ndox mokk na saf na bulo indi ma yóbbul la ko la waa ndar yaa mu beesat yaa ngi dégg ma yow bàyyi ña sa yëre bu biir yi bu ko boole ci yëre yu tilim yi Cheikh Modou gërëmal ñu ko bu baax kon ayca ñu bàyyi la nga euh, tëjal ñu ci fajar gi Cheikh Demba wilaaya daa su ma saana jóg di déggal néew ya Cheikh wali yoo nga nguraan de wilaaya fu mu saana jóg di dekkali néew yaa Cheikh naa lay woo seetaan TFM waaw waaw Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel